surtout les jeunes entraînés jàpp ils visent les grandes dames li nga gis nga xamante ni elles n'ont pas de mari ces jeunes là ñoom la ñuy repérer dafa bëri léegi Sénégal Dakar du fi jeex Mamadou Ndoye ban li nit ñi du ngungunee ci seen i ci grand place ci bureau yi ak ci mbedd yi yow nga ne ko wax jeunes nga gis ñu nekk salle di jeunes entraînés tout ça ils ne cherchent que des c'est des dames qui bu ñuy ñibi ñu jox leen xaalis góor boo demee bay mbaraan yow dafay nekk loo xam ne dafay gën a naturel gën a neex parce que li nga wër ci xale jigéen ñi da nga koy am. semaine dikkati na. ci li ko gën a accentuer mooy les mères diriyanke yi nga xam ni. 90 pour cent yi kenn saytu ci dañu tax bëgg ay xale yu frais. mais il faut nga leen di nga nga yor lan di leen jox moo leen. waaw la plupart loolu parce que dëkk bi moo metti léegi. boo amulee liggéey amoo xëy amoo dara. soo gisee loolu da ngay daw bu fakk. thème de la semaine. maire bu tooy si dañuy gis yor oto yor appartement am kenn xam kenn xamul lu muy ñu amee ñetti gel dañuy seet ko lañ ca gën a mën a jox xaalis ñu ànd ak moom. mais nag li dig góor jigul jigéen. dafa war a yem ci benn góor. nekkul góor yëpp am na góor yi nga xamante ne dangay ànd ak ñoom ñu lay defal lool ak lool te du am ci yow dara am na ñi nga xamante ne nag ñoom bul sonn munoo lekk seen cent francs te duñ am ci yow. waaw ñooñu mosoo cee daje kenn. Ah. mosuma cee daje kenn te yàlla bu ma cee daje kenn man kenn dama yàlla di baaxee may daje. naxa naxa yi non non. mooy sama coof bi kii laa bëgg kii laay mbaraan mbaraan mooy lan fii kenn joxatul sa xaalis ci Mali Port. Uh-huh. Uh-huh. waaw loo bëgg a xool gii nag. sa compagnie gii. Uh-huh. waaw sa compagnie gii kenn na joxewu ci xaalisam ci noonu ku lay mbaraan xam nga ko. ma ne ko sama sa njaayam fonde bi zéro fête dara deful dara tey ci laay te nga jaar sama appartement dama koy wax loolu pourtant man dama doon caaxaan terewul guddi gi fekk sama ndigal lal booy bi jaaxaan Messi jafandu jafandu jafandu dee ko ñaari loxo naan ko lor cëkkul ndigg wala cëkkul ndigg mel ne saa noxo Yes, Pagoti, represent Watcha Clan. Yes, yo. xibaar yu ñuy jalgat si laay bëgg a nettali maan yaa dëgg neexul lii du bla bla du tonton Adama si la muñal ñaawteef yi ma gis ci jamono ji moo ma jaaxal wala life bi mooy bëgg a jeex ay waxal gis naa jabaru sëriñ buy xeesal ibaadu bu ñu biiral baay buy sëy doomam doobu jiitle nangu jëkkëru yaayam famille entière dëkk ci jàmmaarloo jàkkaarloo mag moom di xeexoo ko xuloo constaté naa doomu biiral yi ni ñu yokkoo gis naa gaayin bu laal yaayam ba noppi xaru te borom kër gi bàyyi mi ndaan mi mi noggatu <laughs> gis ko am kes jabar jabaru kilifa yu organiser kafet ci sabar ñii di falsifier foo bien ngir yokk seen koom-koom fii la jàngale kap daara bi yekkoon ci ay dongom. nit këpp na kees ba noppi ñu ko fi woowee kilifa gis sëriñ bu daan taalibeem jox ma sa jabar adiya iliman buy détourné asaka sëriñ buy saaga temps yi le passé amoon na gaa yu taaloon benn jàkka ok yes Paco jàngat ci lay bëgg a nettali ci bi lay jaar mu neex wala mu naqari xibaaru ñuy jàngat ci lay bëgg a ci digg bi lay jaar mu neex wala mu xibaaru ñuy jàngat ci lay bëgg a ci digg bi lay jaar mu neex wala mu naqari xibaaru ñuy jàngat ci lay bëgg a ci digg bi am na agence Senelec ñi ñuy dàq ñu dugg ci kër yi tiriyande ak ñi koppar jaral ñuy tay la seen dom ci ay jinne ñaata sëriñ la seen talibé nekk ci biir jël bi sa doom mo leen të waxatu la kasso borom bi fat la ñu ko muy dara boy bu la gëna tuuti mo mëna a sa furu fara bay diw barki démb dañ ko rend dugal ko ci foosam da fayé ko dugg car ñu delu posam naa ay nit yi dem ba màkk di taxuwaate juge yoo xam ni bu ñu màndiwul duñu mën a àtte am nit ñi dugg ci morgue hôpital yi te dee néew yi maire yoo xam ni seen job mooy dugg ci kër yi taxe yi am ay commerçant Yu jox sen bopp duwaañ yi ngir rawale sen marchandise Ken gëm te yees kii parce jabaram fek mu ngi ëmb ba diis d'accord maak waa da amul Rawati rawatina sama sura bali bi tardé ay ndax wër gel yu bëri dañuy tàggoo daayira Wiri dem sen kër far sama àdduna dafa fay ba ma gisee trafiquant de rein yàlla rëbb na waji am jabar ba noppi di doxaan taskara ñeel na gel bi am jekar ba noppi di mbaraan yes pakoti dëgg neexul xibaaru ñuy jalgati lay bëgg a nettali ci digg bi jaar mu neex wala mu naqari xibaar yi ñuy jalgati laa bëgg a nettali ca digg balaay jaar mu neex wala mu naqari il est exactement 23 heures 24 minutes thème de la semaine ngeen di déglu jamono ji ngeen ci ànd ak Mamadou Ndoye Bane ki ganam Baara ki ganam Moussa Ndaw ki ganam tey dégg ngeen na ni ko ndem si yàlla sa pakoti waxee ñu koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana kon Baara. mbaraan mi nag tey du góor jigéen ñi rek de ci côté bépp lañ koy waxee am na ci góor ñoo xam ne fi mu nii sol nañ seen dàll yi ñoo dàq mbaraan ñi nga xam ne ñoom ñoo di euh, ñoom ñoo di euh, ñoo ñoo ñoo dàq mbaraan ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen ñi donc yow lan nga lan nga lan nga mën a euh, wooye mbaraan fi mu nii waaw xam nga mbaraan dafa bëri dafa bëri façon parce que mbaraan am na jeeg yuy mbaraan mooy ñoo xam ne ñi ngi ci sëy boobu gën a garaaw ba pare di mbaraan ci côté bi am xale yu jigéen yoo xam ne xale yu ndaw mbojo mbojo ju sew ji di maraan tonton yi ak papa yi nga xam ne ñoom dañ ne comme paa yi du ñu dóor du ñu weq du ñu saaga mën nañ leen a dem naxtaan leen am ci ñoom dara ñenn ñi beneen euh, xeetu mbaraan bi mooy euh, maire diryanke yi nga xam ne peut-être amatuñu jëkkër seen as am na fu mu egg am nañ koom-koom di ut ñoo xam ne ñoo leen di satisfaire sexuellement mais actuellement nii mbaraan bi nga xam ne moo fi nekk mooy benn jigéen boo xam ne am na fukki far ak juróom mu ñi ñu ko mën a tudde mooy caga clandestin parce que caga professionnel bi day am kartam osé na moom am kartam dem di ñu koy seet yaramam xam ne moom mii kat lii métier la loolu lay liggéey keneen ki nga xam ne dafa am fukki far ak juróom pour moom du caga day dem ci kii mu jox ko mu dem ci kee mu jox ko mu dem ci kee mu jox ko wa léegi eh, ki nga xam ni mom leer na ko bu gennon dem jël professionnel bi da koy fay faj soxlam dem yonam yow nga ñew ak anytime bu bu eh, bu mu bëgg nga ñew ko kërëm da nga fay ñew kërëm nga ne da ngay ñew rek waxtaan mu jox la li nga soxla nga dem mana ci deg deg sax mana am goor ño xamne ñom seen problème yëpp mooy nañ entraîné ba ciéné daw ci géej gi gis benn koo xam ne yor na tuuti xaalis ñu ne dañ koy jéem satisfaire sexuellement pour di am ci moom xaalis am ñoo xam ne ay genre jaaytaar lañ ànd ak gel am na gel yoo xam li ñu bëgg ànd ak xale bu jantal ci ni niñ koy waxee jantal sax tekkiwul loolu waaye ànd ak xale bu jantal mu nice nga dem di ko présenter sama far bi moo nekk nii sama coof bi comme nice na nga koy fi nga koy financer kooku nekk ku tayal nga xam ne dootul def dara moom li muy soxla ci jigéen ñi rek la koy wut mën na ko am benn fii am ko ñaar fi am ko ñett fee léegi jouru feet mu xool ki nga xam moo ëpp lu mu ko jox mu ànd ak moom góor ñi la wax de dañ koy def mais euh, fi mu nekk nii bu jigéen ñi dañoo am ay chef de gang nga xam ne comme ni ñu am équipe de football da tey am na ay femmes yoo xam ne ñoom koo ci dégg ñu naan la sama góor moytu leen sama góor sama càmmañ no sama góor léegi lañ xewal bàyyi nañ càmmañ mhm. <laughs> sama góor la ñu ngi lay xeelu de <laughs> léegi ay sama càmmañ ak yooyu yooyu moom bàyyi mhm. nañ langage boobu léegi sama góor lañ xewal léegi ñooñu ñaan sama góor léeg-léeg dañ lay karkaral xam nga buñ gisee am Moussa Ndaw nga xam bi muy jàng mhm. moom duggul fee dugg fee li doonoon objectif am rek mooy na jàng am xaalis am ay diplôme am am liggéeyam nga xam ne daanaka yenn yi nga xam ne ñun e, sama classe gi yooyu la ñuy def dugg ci ruq yi xam yi ñoom xamuñu ko léegi nag ñooñu naan ko sama góor mhm. gis nga bis buñ dof doloo ba karkaral ko bu yóbbu ko ci benn place mhm. <laughs> te léeg-léeg li ci gën a kii mooy buñ la fa yóbboo xale bu jigéen bi day génn benn jës ne ne la paa bi yow laa ko jënd loon jëndaloon foog naa marocain sax dina baax pour yow. Mhm. fekk boobu. Mhm. dañ lay ootal. investissement la la. Mhm. gis nga boo jëlee kii bi noonu c'est joli xam nga rek tubaab yi ñuul la. <laughs> ñoom Moussa Ndaw ah. <laughs> mais c'est euh, c'est léegi nag ñu commencé ah kii euh, euh, kii bu mag nga xam ne mooy chef de gang bi. Mhm. mooy commencé naan ah kii diw dafa baax wallaay Mariama mii ni mu baaxee. Mhm. man di kii boo xale koñ bi yëpp. Mhm. vraiment kii kii dafa baax yem benn place du wax su ko defee marraine bi bu ko defee xale bi moom day toog sëgg mel ni moom xamul dara fekk day toj monde bi léegi nag xam nga classe googu nga xam ay tubaab ñuul la xamuñu dara boo dof dof la ba takk jabaru tubaab bu ñuul nag yow sa bopp hmm. dootoo xam ca ngay gën a doon gannax léegi soo génnee ba tase classe su ñoom jaynaba yi ba am fu fuñ la dugal ëf sa nopp yi da ngay foog bi fa la yem hmm. loo amati xëpp ko fa hmm. léegi na moo am yeneen góoru mbaraaneur yoo xam ne ay ay intellectuel lañ comme ñëpp de dañuy cotiser léegi luye seen kër ñu jël appartement parce que appartement dañ koy bokk ak ay nit. mais kër gi lañuy ñuy jël. d' accord euh, euh, euh, mami def d' accord nga ci ci dégg li li li li Baara wax. man nag baax bi ma koy jéglu eh. nii. Uh-huh. dafa mel ni man beneen. <laughs> beneen nit ngi gis moom da laa nekk. ah lu tax. <laughs> non Baara dafa aay torop. <laughs> nu mu def ba xam affaire yi. non non mais mais nag baara franchement gaa moom jëg la mbaraan mi moom dafa doy waar te ci côté bu ne bu ne côté bu ne la ñuy fële mhm. soo dul nandite dëgg dañ lay jóor nga daanu mais nag ci góor ñi la comme ci jigéen ñi mhm. góor ñi dañuy mbaraan jigéen ñi jigéen ñi dañuy mbaraan muur mhm. mais man xam nga lan mooy sama problème man bugguma aussi lu ñëw lu ñëw rek ñu ne mbaraan la ñu ne kii dafay mbaraan gëmul mu non non xanaa kon anam ana kon ana mbëggeel kon ana mbëggeel ta lan ngeen war a accepter yéen aussi jigéen boo nekkee moom hmm? yaa le minimum yaa le minimum dañoo am suñuy soxla nekk magum jëmm suñu parents yi jur ñu fañ ñu war a juree. Mhm. yor ñu ba heure bii ñu mel ni ñu neex ku ñu gis léegi wax ñoo bëgg kooku ni def ñoo bëgg. Mhm. kooku dafa war a def ci ñun. mais rek ngeen bëgg. may leen ma. déglu ko may leen ma. ku bañ ku la ku bañ sa sa copine ji mbaaraan mhm. yow melal ni nga war a mel gérer ko normal mhm. gis nga nag soo ko gérer normal nga gis nga nag moom muy def leneen mu nekk ci ñeneen mhm. laa nag foofu mais xam nga nag xool aussi mooy ko mën nga ko di ko gérer normal mu ne ci leneen te doo ko xam waaw boo ko xamee laa la wax ah, soo ko xamee noo koy xamee ah yow fii lee yow lu dul lu lu dul dëgg du yàgg de. ah non non lu dul dëgg un jour. Ah. yow bu fekkente ne rek intention bu baax nga am ci kii te yaa ngi koy defal lu baax non yàlla du du loolu. un jour viendra di ci teg nii jaxran sa bët di ci am lu la leer parce que wor moo baaxul te man loolu wor laa ko tuddee man du ma nangu ki ma nekkal mu gën ma gore mais nag su fekkente ne dama nekk magum jigéen lu mu tuuti tuuti tuuti bu weer deewee am na lu mu soxla. xanaa dinañ jënd suñu pat ana ndayam xanaa de ana ndayam ndayam ndayam da koo yor fa mu ko war a yoree waaw jur ko ba mu ko waree ju fa mu war a juree yor ko fa mu ko waree ba léegi mu nekk magum jëmm uh-huh. ngeen gis ko bëgg ko kon ndayam wàccoo naak moom waaw wàccoo ak moom te sax te sax désormais xale yu jigéen yi yéen ñëpp maa ngi wax ak yéen boo leen amacee copain bu leen munula laal su leen lan <laughs> bu leen mënalalul dara ah nañ leen jël teg leen fële su boobaa su boobaa yow loo koy mënal yow lu ma koy mënal waaw jaar bàyyi yow da bëgg daal yow yow am jéeju yor la jéeju yor la lu mu fayee ko weeru dee di la jëndali yére di la jëleli dàll déglu ma rek li nga soxla yëpp mu la koy defar ah di séentu ci yow peut-être takk waaw su la takkul nag su keneen ñëwee. su say parents xëy suba tey ji imagineel nga génne gée jéeju cinq ans jéeju ba ci sam njàng sax mi mi mi mi ngi ciy dugal loxoom loo sol correcté ak tabaski moo ko jënd. ñu xëy suba rek sa papa ak sa yaay ni ko ni la du la may jéeju may la keneen. nga ànd ca ndooy laal nga foo am import gis nga lii bu ñu bu émission bi jeexoon te waxuloo ko. waxuñu ci lii léegi nag loolu investissement boobu wóorul de. waa jéglu ma dara wóoru lu ma ndooy. gis nga yàlla. waaw da koy gëm óolu ko. waaw lépp may ma. wax nga may ma. c' est que yàlla waxi yàlla day. ma rek ba ma pare. ndooy may ma. Mhm. parce que il faut ñu wax yàlla parce que affaire sëy yow yaa tudd ñu xëy un nga koy defal lim nga xëy un ñu may la keneen. yow yaa ko fi tudd te loolu. ci domaine ci sunu borom la. xam nga lan mooy l' bi ñu may ko keneen léegi. non taxawal xam nga lan mooy l' bi yéen ñaax bi ngeen nekke ah. xam nga ndax ndaw si bëgg na la. wala bugg la. Ah. gaayin bi xam nga ndax bëgg na la. Ah. wala bugg Say mom ci leneen la. waaw yéen bi gën a garaaw yéen. déedéet tontu sama question bala ngay dem ci bu gën a garaaw. bëgg nga bëgg nga jéeju jéeju bëgg na la. waaw. bëgg nga booy saaliw booy saaliw bëgg na la. waaw xëy suba sa papa ni la mayu la ko. waaw sa yaay ni la mayu la ko. nga ànd ak sa ci nga d' waxi kilifa. dem ànd ci la sa papa wax. waaw bàyyi ki nga xam ne cinq ans ngi nii mi ngi doon investir ci yow. def na ci yow plus de cinquante millions ci yow. waa léegi loolu noo koy tuddee. nu ma koy tuddee. ah sama lu sama wërsëg la ci yow bi sama wërsëg jeexee si sa loxo. Eh, eh, eh, léegi non non non may leen ma nag non ndooy non non doo leen. xoolal xoolal xoolal doo leen ma lii te xoolal. xoolal déglu leen ma doo leen doo leen ma ban doo ma xaw ma lan sax sa doo de may leen ma di ngeen ma may ma tontu de. di ma may ma euh, durant cinq ans yooyu noonu ñoo ànd. mais doo ñëw rek di ma tuur sa alal coog noonu. waaw nooy def nu def. non non dina sama temps bi nga may yàqal. moom amul luy amul ta dañ ko séq leen na xool leen bu leen la bu leen tuur la bu leen lëre nit ñi nit ñi ah, dofuñu ñi ñuy déglu dofuñu mhm. temps boobu maak yow dañoo bëggante woon waaw yàlla moo tuddul say mais dañoo bëggante woon da nga daan ñëw di ma seet ñuy waxtaan di kaf di waaw euh, bu ma toogee fii ci ci ci télé bi ñëpp di ma ci rajo bi ñëpp di ma déglu maanaam da ngay ñëw toog ça va ça va ça va nit ñi dinañ kii elle fos waaw du de du du ma wax wa waxal waaw xam nga li góor li copain copain nag laa wax de waxuma jëkk copain ak copine li ñu seq yëpp yéen ñaar ji mooy lan yaa ma ndoye. déedéet daxal mu reer fii amul lu ñuy nëbbu waxal lépp. non non. Ah, lan non non. lan loolu am na loo xamante ne lu ne fàng kenn du ko ji. mooy fàng lu ñu fa non copain ak copine li ñuy seq dinañ ànd. waaw bu ñu waree dem resto dinañ dem resto. lu ñu uti dinañ waxtaan dinañ kaf dinañ re. lu ñuy uti resto. waaw ree distraire wu ji. waaw bu ñu buggee dem plage dinañ dem distraire. xam ngeen luy loolu lépp ci poosu waa ji la. ci poche waa ji ak man ci sama ci sama sama jot sama temps sama lépp. jotu waa ji waa ji nag jota. waa ji loolu la bëgg ma bëgg ko. waaw foofu perte maa amu fa. waa léegi ñu xëy suba maye la waa ji pertu ñu xëy suba du pe du pertement loolu loolu la ko yàlla foofu la waroon a yem loo gis si àdduna fay jeex dund ndegam bakke lay ah, jeex. ndegam dund mooy jeex maas ak relation. ndegam dund mooy jeex maas ak relation xoola eh, doole buñ buñ ko nangu de. buñ ko nangu ñu lii ñu de gis nga. dama aay de ay questions yu garaaw laa yor. waaw fi mu fekk question bi de fi mu nii amoo réponse. <laughs> Euh, alors Mariama yow loo wax ci loolu ñoom gën a garaaw. ñoo jaxasoo waaw. léegi euh, Mariama laaj bi ma ko laaj noo ko gisee. moom mais moom li mu wax dëgg la. ñun ci lan. ah su fekkee da ngaa nekk nit ki. waaw xanaa le minimum des choses mën nga ko def xaar. waaw d' léegi yaa ngi ànd ak booy saaliw mooy sa morom booy xam nga booy saaliw booy fi duggoon léegi booy booy saaliw. Mm-hmm. moo fi sa morom saaliw mi ngi ñëw di liggéey fi dir média di fay ku weer wu dee. Mm-hmm. saaliw dina participer ci sa njàng. Mm-hmm. fay école ba su dee cinquante mille la lu bon bon dina ci joxe vingt mille su feet amee. saliw dina la la ngay sol ci kaw bu ci suuf mbaraan nga ko saliw bam jox la ko saaliw kai, mooy saaliw. loolu du mbaraan. joxala kay kay saliw kay nak lu am saliw ci weccetam su ndaw ci ko ci alsan sambo djub di fay ki lay ciopati di la jox. wa lolou yoon la non wa la panda bam mat 5 ans. wa parce que ki moo ni andi jigen dang ko war di defal. waaw bien sûr. d'accord saliw di def di def di def ba sen ànd bi am juromi at sa papa xamna saliw sa yaay xam na saaliw waa koñ bi xamee nañ la ak saaliw mhm. nga xëy suba sa papa ak sa yaay ni la duñ la may saaliw njaga jongo ma ca Espagne lañ lay may nga ànd ca sa ànd ca la sa yaay wax. ngeen trahir saaliw saaliw perte na walla pertul. pertul. lu mu gañe lu mu gañe waaw. du ma wax gañ lu mu gañe sax. waaw ah, mais moment boobu ñu nekk yëpp. waaw. xam nga ne Saliou du xool koo xamante ne mooy loolu. mu ciy dugg waaw. ah waaw. Saliou heure bu bëggee génn ma ànd ak moom sañ sa ba jekk. waaw ku mu romb mu respecté ko. waaw ah ah du la respecté yow. may moom ma ñëw. waaw. bu fekkee ne dañuy ànd kay. yéen da ngeen di tiitaroo seen xarit. ñoom ñoo ñuy tiitaroo déedéet ñoom ñoo ñuy tiitaroo parce que ñoom duñu xool koo xamante ne waya waya la ñuy ñi koy dem di ko mais yéen du ngeen xool waya waya di ci dugg waaw mi ngi noonu ku nekk sa intérêt bopp la rek non mais yéen da ngeen di tiitaroo fari ay naan sama coof naan sama coof bi mais ki nga bëgg kooku ngay tiitaroo dañ ko bëgg mu bëgg ñu dañ koy tiitaroo heure bu ñu àndee ah nga sañ sa ba jekk def sa rob bu baax wala nga def sa liggéey sa bu baax ngeen ànd waaw loolu pertement la fu ñu romb ñu respecté moom moom mu def mais ànd bi moo demee moom tam mu def jas neeram bu bu buy niin leen di xeeñ. waaw. yor yor yor kalpeem yor def ci lu bari bari. waaw looloo di la sagal ci sa biiri morom. jigéen boo ànd ak moom da koy sagal. waaw yow loo koy sagale yow. lu ma koy sagalee. waaw ànd sa ba jëkk ànd ak moom ku ko gis respecté kon kon loolu dong la ci am. non chéri bëgg ko. bëgg bi amuñu amuñu fay bi. way bëggoo ko woon yow da nga wax affaire parents. <laughs> waaw parents yi maye ko xam nga parents yi bu ñu waxee yow mënoo too mënoo too ci mënoo too ci répliquer. waaw mënoo mënoo bañ a def li ñu wax. léegi Salim lu mu gaañ moom. Ah, kay jarul ah, bëgg mu tudd yàlla. mu mu mu perte te tudd yàlla mu jàpp yàlla. waaw. Ah. kon feeñ ngeen. baan baan baan gis nga nii. dem demal ci kee. feeñ ngeen bilaay bilaay boy moo taxit mani leen. sama boy damay toog ak moom ma naan ñu ma dégg dégg ñuy wax man leen boy ku ci am ab gel te takko goko jappal ni ne ko bok ba keroog ngay tak doxal ku ci yaakaar ni sa gel yow dongu yow dongu ya ko ki ni yaangi nax sa bop de doxal. wa man nag tondo ndoy li nga tuddé maran tuddé ma ko question bi mo poser gaay lo ci xam. question bi nga poser man li ni wax ci la and ñoo ci and li tax ma and ci waw ah. xam nga moo tax mooy solidarité. Ah. jigen la ah. te ba pare cuuj day xam lekam daf ci am gor ñoo xamne la yalla xam doyna yaa ma gën a xam jekk sa kanam yi ma gisee la xam benn tali nga a yow man jigéen waaw man sama kaadu critique ah. may xool koo xamante ni ah, ni kaam dafa critique may dugg ci moom da ngay xaal ku la mën ta nekk ñaari cas social daal mënoo xëy ndekkee ruy añee bi xool koo xamante ne nii day poñ sa nga bëgg a àndal moom sonal daf lay sonal xamal li ma la. garab bu ma ngi la laaj. lim ma la may ker. léegi moom yow loo koy may. dara comme li ñuy wax rek. parce nit ki nga bëgg ko rek loolu déjà moom amatul lu mu la mën a fayee. waaw bëgg rek moom dafa. kon daal yéen gars yi dañuy ñëw di leen verser noonu rek. ci garab nit booy ànd ak moom jigéen danga koy defal. waaw su fekkoon dëggin sax moom doo ngeen di. àndal ànd bi ngay ànd ak moom comme li kii wax. dëgg la eh. yow ànd ak góor nga sañ sa ba rafet. waaw mel na nga war a mel. waaw nga ànd ak moom. waaw romb ay moroomam. waaw moom mu kontaan. waaw moo moo déglu may déglu may moo déglu ma déglu ma moom it mu yor otoom bu sedd guy. déglu ma déglu ma dugal la ca. sol lu rafet di romb ak ngay romb say morom yoo xam ni amuñu far bu am oto bu sedd guy ña nga yëg ci kaar yi buuxante ko sagal moromam. ñun ñaan ñëpp a sagalante <laughs> ñëpp a sagalante. ah ñëpp a jigéen ñi ni ñuy mbaraanee góor ñi noonu la ñuy mbaraanee. loolu dinañ ci ñëw mais tey jii yow kon waa ji daal suñu mariam yi ñu suñu xëyee suba rek Binta mbay may ko may ko keneen rek. kon Saliou daal perte na. lii kii wax rek day fekk wër euh, diggante ba foofu la war a yem. kon Saliou nan naan ndox mu sedd te puus. te lambi leneen. <laughs> Eh, mais li ma ci jaaxal li ma ci jaaxal yéen da ngeen di am technicien rajo ci tabaski gi mu joxe vingt cinq mille ngeen am animateur mu joxe cinquante mille ngeen anub tëyër mu ñawal leen te doo leen fay ci seen far yi la bokk ngeen am jaaykatu dal mu ngeen dem mu jox leen dàll li ak cheveux ngeen am jaaykatu cheveux mu jox leen cheveux han ah? ngeen am man bu leen di déposer ci ñooñu <laughs> ah mais li ma leen wax xam ngeen ko baax a baax taximan yaa ngi déglu gaa yi ñi ci bari duñ yóbbaale versement. fii daal ku ñu maan yow la surtout maan yi. man doo ma ci utal bokk parce que man affaire yi kon daf ma raw de. Ah. man li ngeen di wax neexa doo ma utal bokk kon si ñoom <laughs> mais su fekkee ci ab école nga ne nga wut ab mu seen ndaw mu jël la te doo fay. yooyu yëpp dafay am may ko bourse yooyu dañ ko fi gis uh-huh. mais yooyu yëpp ci mbaraan mi la bokk. man affaire yi raw na ma échappé na ma. mais mais mais mais mais waxal ma a waajoo ndaw soo dëkk benn tali xam na li ma koy wax. man kañ li ngay wax xaw ma ko benn tali mbaraan amu fa. ak ñaari tali mbaraan ma gisuma kuy mbaraan. ñaari tali amu fa. gisuma ko. Grand Dakar nag. gisuma ko te dégguma ko Biscuiterie nag. gisuma ko gisuma kuy mbaraan. monsieur Ndaw dégg nga ñoom ñëpp def nañ benn tour de table monsieur Ndaw noo jàngate mbir mi. lu doy waar lu yéeme mooy li ma la wax rek luñ ci wax rek ci askan wi la nekk waaye day suñu rôle nag di suñu devoir muy tout un chacun ñu toog ci waxtaan ci su ko defee wax li nga xam ne moo xew ba ñu nëbbante waaye suñu leeralee li xew ba noppi nag daal ci apporter ay solution ba nga xam ne kenn ku ci nekk la nga nekkoon te baaxul nga jéem a joyandiku nekk ci lu baax yow ma nekkoon ci lu baax nga daal di wóyale su ko defee daal di lépp daal di jaar yoon lii di baatu mbaran muy lu doy waar li koy waral lenn la mu jigéen ju toll ci sëy amagul borom kër am na droit dox ànd dox ànd mooy góor goo xam ne xool na la sopp la ñëw wax la ko nga nangul ko la nga xam ne wax na la ko ngeen nekk ci ngor nekk ci ngor ànd ca na leen ko diina maye ngeen necca ba sëy war caa am mu adaat ci am waajur daat ci ànd loolu lañ doon wooyee doxaan bu njëkk waaye mbaraan nag soo ko déggee mooy jigéen ji nga xam ne mbëggeel nekkul ci xolam ndax fu mbaraan am rek mbëggeel jeex na fa ndax mbëggeel moom lu sax lay doon lu dëggu lay doon lu nit ki gëm lay doon mu di ko dund ba yàlla def li nga xam ne moo gën ci ñoom kanta mbaraan nag ki ko jóge def ko ci xolam jug ne lii rek a ma tax a jóg mbëggeel jeex na ca xol ba te ku képp koo xam ne mbëggeel jeex na sa xol doo def lu jub su ko defee nga daal dajale comme ni nga ko waxee secteur bu ne mu am fa ab kenn koo xam ne dara taxu kaa jóg lu sincère lu dul lam ca am muy intérêt baatu intérêt bi ma dégg ci plateau bi muy lu ma métti muy lu doy loo xam ne nii xajul ci diggante ñaar ñu bëggante intére xaju ci intérêt fu mu dugg rek mbëggeel jeex na fa ndax mbëggeel intérêt lalu ko waaye luy sax moo ko lal donc mbarankat mooy jigéen ji jóg dara taxu ko jóg lu am fukk fukk ak juróomi far juróom benn far ñaari far te lam cay dund daray dëgg nekku ca góor gi nga xam ne dafa jóg mal intentionné moom tamit war mën a dem wuti soxna defu ko di jël benn ñaar ñett ba juróomi jigéen kenn ku ne muy séentu ci yow loo ko defar mhm. kooki ñoo yem atte mhm. loolu dañ koy ñaawlu ba ci kanamu yàlla amul sens mhm. jigéen soo tollee ki sëy fexeel gis góor gu la bëgg ngeen nekk te nag dafa am loo xam dafa jaaduwul ci waajur yi laay jëm directement munoo yor sa doom mu nekk ci kër gi am lu ëpp fukki at ak juróom benn góor jóge ci àll ba di def ci moom njàngam moo yor. Mm. feebaree mooy faj. Mm-hmm. solo moom la. Mm. léppam moom la. Mm. te yow mi nga xam ne yaay waajuram mu leer na lii yow la waroon. fii de koo fi lekk kaañam foo jaar nga ne ko. kaañam góor googu su ñëwee nga dalal ko ci salon. nuyu ko laaj ko ay waajuram <laughs> mu toog di jàpp espoir comme quoi kii muy ñëw di ko seet si war naa mën a nekk soxnaam. Mm-hmm. ngeen jël li mu yoroon lépp. ab mhm. ndoy baan jógee fële jógee extérieur maa mu yor oto ak xaalisam ñëw ñaan ci xale bi ngeen fàtte lépp loo xam ne nii mhm. monsieur Ndaw defoon na ko ca wala Baara defoon na ko ca mhm. ngor loolu fa la ngor nekk fa la dignité nekk fa la diina nekk su ko defee kooku ba terminal li nga wax léegi dafa am solo fay nga wax léegi dafa am solo cinq ans la ndax xam nga moo tax diini ak ngor nekkul ci kër googu noonu gis nga gis nga gis nga même ma yeggali gis nga kilifa gu mat li mu doon Ndaw nga de kilifa gu mat li mu su góor na carax ci sa biir kër mm. da ngay ñëw nuyu ko dem toog su ñëwaatee na ñëw nuyoo nga dem toog su ñettee nga woo ko mm. luy say tànk diw mu ne la nga ne na nga def man sa waa kër man kat gis naa la sama kër gi ñaar tey la ñetteel bi ma woo la ngir xam loo fiy def mm-hmm. nga ne man kat sa doom jéem a tax a jóg ma ne la bul yeggali ana yaayam mu ñëw toog ma toog ana diw mu ñëw toog ci ñu toog ñun ñeent mën na la dellu ci li nga waxoon sa doom ji laa wër ba bëgganteeg moom di ko seet sa kër gii Mariama bëgg nga ko. Hmm? nga ne ma papa bëgg naa ko. ma na la diw est-ce sa doom ji di Mariama xam nga ne mook diw mi ñi ngi nekk. nga ne waaw loolu de moom Mariama mii moo ma ko wax si moo ma présenté xale bi xale bi nag xam naa yaayam mooy diw bàyyam mooy diw ci famille bu baax la bokk wax dëgg yàlla te borom jom la mi ngi liggéey. mën hmm. na baax na dox leen ànd ba ca su fekkee ne jikkoom na la soo ñëwee ma soo leen defee juróom benn weer ñetti weer ba juróom benn weer moom su fekkee ko di mais dalal góor ci këram may ko confiance may ko accès muy di génn sa di sol jiinu 15000 comme hmm. cher. bu baax cher. Hmm. jënd jox nit mu sol sa doom di sol bu soldats lui yu cher cheveux yo xamne 400 à 500 portable bo xamne 350 à 700 francs mhm. sa dom diko yor nga un intellectuel nga baña a intellectuel nga xamne li mu yor matériel la d'abord mhm. góor moko ko jox mhm. te góor boobu diko ko jox xam nga ko xam nga ndayam xam nga bayam ñew ndoy fele ak alalam nga xagn mako jox ko su amee far ëllëg am jëkkër am far yaa côté te nag lu ci ëpp nag lu ci ëpp nag suñ koy def di ko def ci bu jigéen bi lu ci ëpp bu jigéen bi day bëgg bay bëgg lu ci ëpp nag laa wax nag lu ci ëpp. Mhm. waaye waajur yi dootuñu xool mbëggeelu xale bu jigéen bi. Mhm. dañ koy forcer. intérêt bi. intérêt bi la ñuy ñëw teg. waa léegi bu fekkee ne moom jaral na ko bëgg na ko bu mu koy defaral loolu yëpp. Mhm. lan lay xool ba kenn di ko fa jiitu. non non non non non kooku. kooku dafa ñëw ñaan si sax maanaam nekkul ne dafa ñëw ñaan si ñu ne ko mayuñu la wala mu xoole ba waa ñëw takk ko te moom takkul déedéet. kiy def ci yow loolu. la ca gën a ndaw mën na la takk. waaye léegi bu fekkee yow jaral yow jaral nga ko loolu yëpp. Mhm. loolu yëpp mi ngi la koy def defaral. Mhm. lan moo ci des. xanaa mu lay jox dépense chaque jour. non non non xam nga waajur yi lan la ñuy wax Mariama may ko mu pare jàng. Mhm. xam nga ko góor kiy def ci yow benn daal quinze mille su góorgóorloo lu mu ca teg mën na can ñu may la ko. donc donc newul ñaan gi. xoolal donc nekkul ñaan si xam nga lan la. day ñëw di la jël fekk yaa ngi def seconde. yaay papa amna la ah sa ñew bi de rafetlu nañ ko waye suñu sañoon nga may ñu ba mu ba mu am bagam. non mais bi muy ñew sa projet ngeen tek yeen ñaar. te yeen ñaar xam ngeen. lan mo nek lan mo nek jiite ji waaye fekk na bobu xam nga solo ci wax ji lan la sa wajuri xam nañu depuis le premier jour que ne ñom duñ la ko may. ñom wutal fofu lañu wax kan xam nga lolu moy mbaran bi gëna bon. c'est que problème bi mooy Moussa Ndaw musa Ndaw musa Ndaw. waaw waa su fekkoon kenn kok rek la. Mm-hmm. ñu mëna wax mais du kok rek xam nga kooku sax mooy. mooy kooku rek de mooy ndooy dama dugg ci benn élément. élément boobu mooy. Hmm? nit bi nga xam ne ñëw na di investir da nga tudd léegi benn tour muy tour wu sell. Hmm? nga ne kooku dafa am lu mu bëgg ci ndaw si bëgg ko ci ndaw si. <laughs> mooy booy saali waaw xam nga ba mu ba mu demee nee na ni. waaw ah. waajur njuuy ko. Hmm. foofu laa dugg di wane la responsabilité des parents la responsabilité de la fille et la responsabilité de l'homme non mën na bañ a nekk de la fille. beneen cas bi non nee naa la parfois à 80 pour cent fille bi day bëgg. mais mais dañ koy forcer. te diina nag may na ko mu bañ forcé boobu nag dem sëy ak waa ji. Mhm. diina may na ko lool. waaw ah, su ci bàyyam àndul nag du barkeel. non xam xam nga barkeel mais suñ ah, uh-huh. mm. sabab lu dafa am. <laughs> loo sabab ya sëy dinañ ko takk ñeent fukki guddi ci aras avant muy wàcc. bu yàlla ne kii mooy sa borom kër moo koy nekk. non fekk dafa tuddoo diine. moo tax ma ne bu dee ci loolu kese la moom. waaw xam nga su ñuy wax diine. su fekkee ne dañuy dugg ci diine rek. Mm. ndax su fekkoon dañuy dugg ci diina rek débat bi du yaatu ndax ndox ànd dafa am fu mu yem. Hmm. waroo gunge góor sa génn sa buntu kër. dëgg la c'est sa sagaru karaw bi waru koo gis. c'est vrai dalaa fekk nga war a mel ni jigéeni jullit di mel. kon suñu duggee ci diina rek débat bi tëj. Hmm. mais dañ koy boros yenn saa yi. Hmm. boros gi mooy fàttali kilifa yi seen wareef. delloo si waat leen tuuti ñu mën a xam fi ñu bokk fan la. d'accord léegi monsieur Ndaw. waaw xam nga yow ki ngay wax déglul Ndaw si li mu wax. ñu toj ko rapidement balaa heure bii di jot. xale jigéen yi mbaraan gi ñu nekk rawatina tabaski bii di jub ëpp na ëpp na ëpp na cheveux naturel daal dafa ñëw gàddoo itam daal waaw def leen jiital nag xoolal mel ni gis nga pël ni muy gàddoo itam jiitali nagam noonu la yoree itam rek jiital leen di leen ko caw rek fu mu leen fii la rek xoolal ñu dem nañ ko am rek parce que man doy baan mënu ma comprendre nga teg cheveux bu 200000 ci sa bopp sol daal luy jar 25000 yu ak pochetam sol jasneer boo xam ne 4 mètres kaw ba suuf ndooy daami na ko fay ñëw ay 70 mille ndooy te fa sa yaay dëkk bu ngelaw lu uppee mu daanu bu tawee mu inondé bu weer deyee day lijjanti fay lu yaas su bët setee day lijjanti ndékki day lijjanti añ day lijjanti dépense yow ngay wër di mbaraan ah bu événement ñëwee nga sol valeur 500000 yor téléphone buy jël 300000 te gis sa yaay situation yi muy daj di kër yi indi te xëyoo gontoo loolu yaay ji moo la war a dëj laaj la yow lii ngay def fu mu tegoo foo ko jëlee tabaski yemut ci ren yemut ci déwén yemut ci benn fan yemut ci ñaari fan à vie la. ngeen loolu baara dégg nga ndaw si li wax. lii kuy jigéen gu baax. war nga koo déglu. te li mu wax ci téléphone bi neew naa la te quand yi passé. comme ñi ñëw ci buntu rajo bi rek. benn xale bu jigéen dafa ñëw ndeysaan ma nga yaayam daa feebar mu ànd ak yaay ji ñëw. indil ma kayitu hôpital kayitu hôpital bi li koy faj 200 et quelques mille la mu yor iPhone 6 bi mi wax ak man mi ngi taxaw ak man yor iPhone 6 solo ba rafet ma déglu ko paré man ko man quoi ki salal la mun ma sama yaay man la man ko mon ko junwa man ko lola téré jaay téléphone bi dem faj sa yaay mm-hmm. sa téléphone bi dafa yow ñoo la mom la yore iPhone 6 jamono yow mako indil fii jamono yooyu iPhone 6 wàccoon na ba cinq cent mille yow sa yaay deux cent yi quelques mille la koy faj demal fee ville léegi nga jaay iPhone 6 bi trois cent mille dem faj sa yaay. Mm-hmm. mu ni xuj yaay ji xamul woon téléphone doom ji ñaata la xamul mm-hmm. gis na ni téléphone la rek mm-hmm. maire yi xamuñu seen téléphone doom yi nii nii nii que ni téléphone doom seen doom yi seen téléphone yi ñu yore fay na location wu juróomi weer jënd na trente saaku ceeb seen téléphone yooyu ñu yor jën na juróomi xari tabaski wala lu ko ëpp sax. entreprise la. entreprise seen portable yi. li ciy li ciy dem xale yi jigéen ñi seen crédit yi crédit yi ñuy dugal seen portable par weer. Mhm. ci at mi. tabax na ba mu bâtiment bi rasé. Mhm. parce que dañuy woo baaram mu yónnee la crédit vingt mille cinq cent. ndoy baan yónnee la bu cinq Ndaw yónnee la bu dix mille ah. semaine bi soo dajalee li nga dugal ci crédit sa portable dundal na waa kër gi yëpp keroog maa ngi koy wax kër goo dem di ko fa fekk dix téléphones dix personnes Sénégal nit ñuy dëkkee kër goo dem am na dix personnes dix personnes yi ku nekk am na portable ku ci nekk sa téléphone su ndawee wa ndaw di ci dugal crédit téeméer par jour donc crédit portable yi li muy lekk nit ñi lekkuñu ko. xaw ma ndax si <laughs> nit ñi seetlu nañ la. Mm-hmm. li portable bi di lekk nit ñi lekkuñu ko. Mm-hmm. xam nga Sénégal dëkk la boo xam dañuy wax rek. Mhm. tubaab bi indi ñu téléphone pour ñu gën a mën a wax. Mhm. ba pare indi ay carte crédit di ñu ko jaay pour ñu gën a mën a wax. indi seddoo yombal ko. indi seddoo yombal ñu ko pour ñu gën a mën a mën a mën a mën a wax. <laughs> lii nag daal di fàtte suñu bopp duñu lekk du naan. Mhm. gis nga loolu est-ce gis nga nax bi ñu tubaab bi di nax noonu. ah. gis nga calcul boobu. donc ci ni. léegi dara demutu ca lépp ma ngay dem ca téléphone ba xale bu jigéen bu ci muus wala ñetti xale yu jigéen maire bu ci am ñetti doom yi jigéen suñ bëggee dootoo xiif wala dootoo feebarate du dootu la dal parce que li ñuy mbaraan ci àll bi wala li ñuy def ci seen portable suñ ko doon def ci yow kon heure bi dootoo namm dara et puis ñoom fi ñu ko teg sax moo yomb quoi ñoom baara xam nga ñoom fi ñu ko teg dafa yomb muy Dieyna muy Mariama muy euh, euh, mami muy que ne man daal na ànd ak yow rek sagla ci yow. non sama ñax mbootaay non boobu ànd ma ci. non na ànd ak yow sagla ci yow. c'est que aussi sama sama sama ñax la wërsëg la ci man non mais gu góor gi nag wërsëg moom lan la. voilà c'est fi ndoy baan ñëw nii. ci fi ndoy baan ñëw nii ci mbaraanu mm-hmm. tabaski bi xam nga tabaski gi gars yi dañ dañu jiital fête bi. Mm-hmm. fàtte jaamu yàlla bi. fàtte nañ ne xar mi ñi xar mi dem mbaraani ko. Mm-hmm. pour jënd ko. fàtte nañ ne xar mi doomu jàmbur la te dañ koo nar a rendi ko te yaa ngi bàyyi sa doom ci gannaaw fàtte nañu ne lii ngay def nii. histoire bi histoire bi hmm. li tax. Hmm. nga xam ne tey bu fekkoon ne kooko reyoon nañ ko ko ñun nii boobu am na ci ñoo xam ne moom dem nañ te xar mi di dee avec fierte yow nga dem te am na ñoo xam ne li ma ci gën a metti mooy sa parent yi dañuy xam ne da ngay mbaraan amu ci maire yi xamuñu ko de ki ngay ñëw nuyu ko mun la diwa ngi ci biir jàllal ci biir. moom mi ngi ci ëtt bi de ne la diwa ngi ci biir jàllal ci biir wala ngeen nuyu ko mun la jàll leen ci biir kooku xam na ne doomam day mbaran def nga fii sa benn auditeur lu la wax mhm. damaa toog yoruma lu ñu reere suñu kër mhm, mhm, nit ñëw nuyu ma sama yaay ne ko diwa ci biir ci biir néeg bi mu ngi ca biir néeg ba maire bi ne ci ëtt bi ne maire bi ne ci ëtt bi ne ko diwa ci biir jàllal ci biir mu dugg ci biir jëflanteeg moom la muy jëflanteeg moom may ko quinze mille génn may maire bi 5000 moom mu génn dem jënd dibi jënd waay eh, gunge waay jëndaal dibi ñëw mu reer ba pare soog réfléchir moom li mu def toog di jooy loolooy mbaraan dëggantaan. Mhm. toog di jooy seen gis nga fii seen. parents yi di doog a xel réfléchir ni. waaw daa tëdd waa ji ba pare. waa ji jox ko soog ko soog ko may 15000. rombaat maire bi ci biti jox ko 5000. waaw muy gunge waa ji dem jënd di bi indaale. ci seen biir kër ci biir kër. waaw yaaye ma ko ne di mën naa bañ a yëg lu xew. waaw mais ndaw si moom seen biir kër moom ndaw si xam na li def yaay moom yëgu ko. xamu ko na li mu def. même su nekkul woon seen biir kër. non mais ma ne xam na moom li mu def ndaw si xam na kay li def. yaay moom du xam. non non ba dafa xewee ci biir kër ga tax. Mm-hmm. mais waa ji mënoon na ko ñëw jël si ñu defee ji ko feneen. waaw sa doom day c'est la même chose ah. ban sa doom da ngay toog ba vingt trois heures wala ba minuit. mu sangu romb la nga ne ko demal yàlla na saw yoon neex. yàlla na yoon neex doom. nga toog ba deux heures du matin di ñibbi si jëndaaleel sa yaay reer yóbbu. Mhm. te yaa ngi dégg oto bi ko déposé. ci ah. buntu kër gi. Mhm. nga jëndaaleel sa yaay reer yóbbu sa yaay du nelaw de day toog di la xaar parce que mm. dibi la bëgg a reer te booy ñëw di nga koy indaale. fekkee paa bi daa ragal maire bi moom du wax. paa bi du wax. doo dégg mu paa bi ubbi gémmiñam wax te mbaraan mi ci biir kër gi lay xewe te ñoom xam nañ ko c'est que mbaraan moom moo gën a garaaw saaliwongu xam nga receleurs yi nag mooy maire yi nga xam ne ñoom mooy mooy chef de gang yi receleurs yi nga xam ne loo mbaraan loo mbaraan mosal lenti ñooy ñi nga xam ne mm-hmm. dañ cee nekkoon doyaluñu mm-hmm. far sëy dab leen mm-hmm. léegi nag ñooñu dañoo am seeni xale yàlla nañ ci yàlla di placé Mm-hmm. naan kii sama góor la mm-hmm. koo dégg sama góor la xamal na mi ngi dee mm-hmm. loolu loolu loolu ñooñu ñooy ñooñu ñooy receleurs yu mag yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy encadré mbaraan mi waaw ñoom ñooy xam nga kat yi makarokat yi nag ay góor a ci ëpp de góor ñi ñoo ëpp ci makarokat yi xam nga c'est que gis góor goo xam ne am yambar lay doon moo xam ne foo ko fekk ay jigéen rek lay àndal am yambar lay doon góor góor ñi euh, euh, Euh, euh, xam nga mbaraankat yu góor yi daf ci am ñoom ay makaro lañ te makaro yi ñi koy def genn wàll gi yëpp ay góor lañ. lan mooy hmm. ñooy jël ndóoy baan boole koog. yooyu jay na ba ginnaaw day <laughs> ba mu nekk étudiant xaw nañ ko rey. bar ñi da daan jóge di ñëw ñëw di ñëw Ndakaar waaye lu ko lu ko yaayam jox rek. mbaran ko ko fi ci dëkk bi ba muy ba ba muy xaw ba muy ba mu xaw a kon bok sama gaay yene gi déglu seen émission thème de la semaine jamono ji tay ji ñuy nuyu tailleur yi ah tailleur yëpp ñi ngi leen di ziar ñi ci réew mi ah ñëpp ñi ngi leen di béggee ñi ca marché HLM sama mbaay gaay yi tailleur ña ci tailleur ci Pire ah wa Pire ñu ngi leen di ziar bu baax baax sama grand Dan Fall Dan grand Dan ñi ngi leen ziar bu baax baax di ziar ñëpp ñi nga xam ñi ngi ñuy déglu ak fu ñu mënti ne rek ñi leen di béggee bu baax baax baax di kontaan ci ñoom ci léegi ci kanam dina leen ubbil téléphone bi ci 88 628 14 14. dawala daw. joxoñ na joxoñ na la jesner bi waaye dafa am lu làqu ci ginnaaw jesner bi. jox na la cheveux naturel bi waaye am na lum ca la lum ca lëmës. jox na la njëgu dàll waaye am na lum ca lum lum ca lëmës. te avance su Gaston ku ko lekk di nga bëre. wala bu bu Aziz Ndiaye. avance moom gars yi kenn euh, Mbaye Diouf moom kenn du lekk xaalisam ci dara Mbaye Diouf Mbaye Diouf mais ca azalem moom bëgg bëre bañ bëre waaw waaw Mbaye Diouf Mbaye Diouf ak Daawur moom ko lekk seen wala ku ñu ñawal dégg nga dégg nga leen fay moom non marsa salama ngay toj waaw ku moom tey ri marsa aslem moom ku ñu ñawal di nga leen fay Roq Njallo waaw mi ngi noonu de <laughs> Roq Njallo <laughs> ak yéen ñëpp ku ci nekk na concentré wu ci reportage bi ngeen déglu ko attentivement première partie bi lañ leen jox ngeen déglu li nit ñi wax jigéen ñi wax nañu góor ñi wax nañu ñu déglu góor ñee fi dàq mbaxat ndax man gis naa yooyu ba tey góor bu la ci dàq fen mu moo la ci dàq mbaraat comme par exemple dañu ñëw dund ak yow ne la yow kase la aw ma beneen gel affaire yooyu noonu nga gëm ko te boo demee ba ci biir dafa du ci nekk soit nga dem këram fekk mu nekk ak keneen comme xam nga wala ñu nga di ko dégg ci yeneen yoo xamante ne nii da ngay xam ne dafa mbaraan ah parce que boo gisee boo yemee ci kenn ça dépend ngay wër ba gis koo xamante ni moom nga bëgg xama mu wan la sincérité et tout ça doo am problème yooyu daal. Mhm. mais comme par exemple ni jigéen ñi di mbaxaane tamit noonu la góor ñi di mbaxaane. Mhm. loolu moo tax mbaxaan bi bëri. l' exemple que je peux donner man gis des hommes ils vont faire la cour à une fille parce que cette fille a de l'avenir. wala ils s'intéressent à une fille parce que c'est une fille bien calée niveau bi fille bi am ak fi mu war a jëm ñoom xam nañ ni sera quelqu'un wala elle sera calée des des hommes dañuy nekk ak je prends l'exemple sur moi parce que actuellement a discuté discuter tout à l'heure un homme oui pour établir il il sait pertinemment que ni voilà dafa am lu muy xaar si man si côté intellectuel et peut-être dans le futur et tout ça il sait que on n'a pas le même niveau il peut pas mais il fait tout daf koy jaral mu def mu dem devant dem si marabu dem si sëriñ wala dara def lépp pour nga topp ko. yow nga daje benn góor boo xam ni loolu lay jouer ak yow. waaw il nous avons connu, par exemple. ko nañu fortuitement on s'est connu il a commencé à me faire la cour nee naa ne franchement je peux pas te dire que man nag yow mën nañu parce que nit bi balaa ngay génn ak moom di ko étudier je sortais d'une déception loolu c'est autre chose donc je m'en mënuma engagé wu ak yow mais une deux fois ñu toog je vois que ni c'est pas mon type parce que bokkuñu idée beaucoup fi ñuy gisee dans mes relations j'aime bien avoir quelqu'un bi nga peut-être un échange culturel et tout ça Beaucoup de niveau c'est son domaine qui ko intéressé au fur et à mesure que nous dem si ay discussion mooy gis que ni ce qu'il attend de moi peut-être c'est que ma monde ko pousser dans sa vie dans son travail mbaraan parce que pour les santé, nii man du ma parce que pour les santé. mais sûr que ni am un lu muy xaar ci man voilà nee na bu jigéen bi xam ni par exemple la fois passée war na ma ni ma yow di peut-être j'ai besoin xam fi ma bëgg a jëm soxla naa jigéen bi nga xamante les calé jang tout ça peut-être pour gérer ma pour gérer ma son entreprise une petite entreprise daa tout tuddee non non du ma entreprise sax peut-être buloom daal mhm. peut-être quelqu'un qui peut me pousser qui, de nga xamante ni dina ma ce travail là il sait que moi je suis pas une fille bu kuy dépendre du musuma ko ni maye ma je n'attends rien de lui dans vie damay wax chaque jour que ni lu ma un franc ma dama ko bëgg a sama bopp donc kooku am na intérêt bu muy xaar si man dina ni kat kii peut un jour bu nekkee sama jabar du mu sonn ci moom parce que elle va sortir gagner sa vie du mbaraan mais genre mbaraan parce que euh, am na yeneen fii yu mu mën a jël mais xoolul loolu parce que daf koy wax carrément li ko kii carrément mooy man bëggatuma jigéen buy toog ci kër jigéen buy dem di liggéey laa bëgg góor ñëpp noonu la visualiser léegi góor ñi noonu la gisee mm. jigéen boo mënalul sa bopp dara wala jigéen bu liggéey y a des hommes yoo xam ne li nga génn la jamais une fille qui travaille pas wala une fille ku liggéey duñ la ko defal bëgguñu ko jigéen bu liggéey mën a gérer boppam la bëgg pour dépenser moins wala peut-être sax mu ñëw épauler leen góor ñu bari bu ñuy takk duñu dem fekk ku takk ku ku amul métier léegi bari na si am góor ñi duñu takk jigéen bu amul métier jigéen bu liggéeyul gañewul vie mën leen soutenir si kër gi duñ ko takk je trouve que te c'est nouvelle forme de benn concept bu bees bu génn léegi que ni les hommes duñu se mettent plus avec des des filles amul dara gis naa ko daal c'est que ni mënu gisaguma gisaguma exemple concret am na xam nga jigéen ko ko ko bëgg a takk ku ne depuis quoi qu'on puisse dire ñun Afrique lañ nekk on a nos réalités on a nos réalités donc fi ñun luñu xam nos parents dañu yor suñu mère yi dañ ñoo yor bien vrai que ñun bu dem man je me dis que je me bats euh, dans la vie pour moi et pour mes enfants peut-être pour pour mes futurs enfants les que je ma je vais me battre pour ça c'est c'est une peut-être am nañu modernisme bi nga xamante ne mën may si suñu ménage peut-être ñu mën épauler suñu jëkkër mais bëgguma góor ñi mettre donc bëgguma man góor bi mettre trop en avant ça donc il m'a perdu dès l'instant que mu gis que ni kii su ma naroon def ak dans une relation sérieuse du ko parce que je me gis li mu figé trop moins, ah cette fille là elle sera quelqu'un parce qu'elle sait que ni déjà pour un rien je me bats que je je vais continuer mes études que quand ma quitté tôt ou tard man ma je vais le caler et pour rien au monde dépendre de moi, tout te monde ma se dépendre de moi. donc loolu booster na que mu écarter ñu bëri <laughs> hein quitter ma kan non il a mais fi muy xoolee mooy que ni kii kat dina ma intérêt la daal intérêt la intérêt la sûr que ni du ma gën man je peux dire que ni du ma gën la parce qu'il dit que kii kat dina ma mën a épauler dina ma mën a gérer parce que eh, am na benn secrétaire déjà su mu noonu wax keroog li ma comprendre que dafa bëgg écarter secret du sax mais déjà daal intérêt am na ci intérêt moom lu ma wóor ba moom mooy am na intérêt ah. bu ci gisul intérêt du ma toog commencé nañu génn hmm. en tout cas c'est un prétendant qui est là il a ses intentions je sais où il veut aller donc c'est discuter c'est pour y mettre un point parce que si vous veut user un moins mystique peut-être pour me contrer mon na nest ma lu ma ci leer am ci preuve yu leer nañ xale yu jigéen yi mbaraan gi ñu nekk rawatina tabaski bii di jub ëpp na ëpp na ëpp na cheveux naturel daal dafa ñëw gàddoo tam daal waaw def leen jiital nag xoolal mel ni gis nga pël ni muy gàddoo itam jiitali nagam noonu la yoree itam rek jiital leen di leen ko caw rek fu mu leen fii la rek xoolal ñu dem nañ ko am rek parce que man doy baan mënu ma comprendre nga teg cheveux bu deux cent mille ci sa bopp sol daal luy jar vingt cinq mille yu ak pochetam sol jasneer boo xam ne 4 mètres kaw ba suuf ndooy daami na ko fay ñëw ay 70 mille ndooy te fa sa yaay dëkk bu ngelaw lu uppee mu daanu bu tawee mu inondé bu weer deyee day lijjanti fay lu yaas su bët setee day lijjanti ndékki day lijjanti añ day lijjanti dépense yow ngay wër di mbaraan ah bu événement ñëwee nga sol valeur u 500000 yor téléphone buy jël 300000 te gis sa yaay situation yi muy daj di kër kër yi indi te loolu yaay ji moo la war a dëj laaj la yow lii ngay def fu mu tegoo foo ko jëlee tabaski yemut ci ren yemut ci déwén yemut ci benn fan yemut ci ñaari fan à vie la nañ ñaan yàlla rek may ñu ci fan bu gudd ak wér loo ci mébét te góorgóorlu takk sa ndigg lii fas yéene koo teg ci yoon yàlla mën na la koo may mais kal ko rek ci góor ñi xoolal ni ko ndaw si waxee woon rek doon moi je te donne nga fi ne nag ay jigéen la ñun ñëpp a xamante bu ñu nax suñu bopp. mbaraan fii ci Sénégal. Euh, ci ay dimension yoo xam kenn mënu koo natt ñiy maraan ñi ngi gën a garaawe ci diriyànke yi ndax diriyànke yi ñoom dañ leen di mën a xaajale ci ñaari ci ñaar ci ñaari catégorie am na diriyànke yoo xam ne dañoo nekk ci déficit de plaisir ak diriyànke yoo xam ne ñoom du problème mu xaalis du problème mu dara mais ñi nga xam ni nag ñoom ñoo nekk déficit de plaisir ñoo ñoo am problème ñoo ñoo am ay mbaraan yoo xam lim leen li li ñu leen jaral déficit de plaisir mooy nga am borom kër nekkul Sénégal wala mu nekk Sénégal nga xam ne yow boo defoon sa coefficient de plaisir bi nga am ak sa borom kër boobu ci fukki at wala ñaar kër sëy boo ko cumulé woon yëpp matul sax maanaam un mois ci ay at bu ñëwee jóge bitim réew ñëw def yow weer dem juróomi at ci diggante bi nga am fi ay fréquentation yore internet dugg ci ay site dégg ay waxtaanu ay nit nga fanaane di xoole ba bës set léeg nga am ci ci invité yi ci say ci ci say xarit ñoo xam ne dugg na guddi na yow nekk ay magub saay-saay wala ay mag kese ngeen di waxtaan waxtaan yu yu doy waar yoo da dem ba doo xamante ni am nga jëkkër wala ba jëkkër am na ci ñoo xam ne tey bu seen yaay ak seen baay déggoo yi ñuy wax guddi ci téléphone boo leen ko tegalee seen yaay jooju dina am AVC wala mu jaaree fa tension mu jóg wala mu dee wala bàyyi bi def du sama tool loolu nag daañu koy ko moom laa lay wax ni dama ci am dama ciy liggéey am ci quand même euh, di dox ndax dafa am suñu may liggéey di wax ak ñoom am na ci biir enquête bu ma wax de bés fekk jëkkëram génn àdduna mu def breuvage ba dem cinq à sept ans du ko amaat un autre nga xamee ne am na beneen mari bi ne ma man mas day maa ngi naan sama borom kër waaye daal yàlla ko yàlla yërëm mais musuma xam ne jigéen dina dina egg fii ci bànneex ka mu amoon moom it jamonoy dem ñu taxali ko mais kooku ba mu jaaree ci moom bu jóge fa mootul téye boppam ma nga ca int foo ko fekk mi ngi connecté même deux heures du matin une heure du matin six heures du matin moom du nelaw beneen catégorie mbaraaneuse bi am euh, dafa concerner euh, les jeunes filles euh, yi nga xam ne aussi defuñu ko ngir ndax kon saay-saay mais politique de survie la ndax léeg-léeg nga maraat parce que xam nga kër yi doxatuñu reer am ñoo xam ne bu ñu añee la ñuy jógee ëllëg xam nga góor li mu mën a bokkal jigéen des c'est pour c'est pour un sandwich wala xëy suba am loo xëy ndekki nga fexe téeméer am ñeenti far wala juróom yoo xam ne du ñu sax ay far ay ay connaissance lañ yoo xam ne xëy na alors euh, boo fa demee ñu may la ñaar téeméer ñu may la téeméer ñu la ñaar fukk nga xëy suba daal di defar kay parce que jigéen les jeunes filles là xëy suba du ñu ndekki alors ñooñu man seen kaas mais lii doy waar daal mooy euh, mbaraan pour arnaquer am na ñoo xam aussi dañuy mbaraan pour arnaquer euh, des mbaraneuses yoo xam ne dañuy mbaraan pour arnaquer alors euh, dañu ay chantage ba xam il aussi ci benn catégorie mbaraaneuse mais aussi ñoo xam ni bu ñuy mbaraan ci ciy boole loo xam ni xëy na bokk ci ndax jigéen bu ñëwee tey yi nga seetsi la ñaari yoon ñetti yoon nga may ko xaalis baax may ko xaalis xam ne kii eltrag difficulté yaayam sonn na ñi la ñu dundee et tout ça mu ñëw di la seet di ko may xaalis moom bés mooy ci boppam ni yow war moom war la mën defal teranga léeg-léeg ñëw ne la teranga teranga ñoo moo koy fay daal di am nu mu comporté wook yow ñi nga dal ci kawam parce que nit nit la rek loolu aussi cas la yoo xam ne jigéen ñi elles sont souvent victimes de ces comportements léeg-léeg ngay defaral jigéen xale mag ndaw doxal waaw ah, tonton wala góor gi nii ngay may moom mooy xëy benn suba wala benn ngoon ñëw ay si la teraanga teraanga booy bopp ngir nga gën a yokk it la nga daan def te it ku ne xam na ni euh, plaisir moom du dee bànneex du dee euh, màggat sax daa bëgg bànneex baneex du dee ci euh, nit simple du dee ci ñooñ ñuy tuddee ah nit yi nga xam ne ñooñu xaw a féete kaw tuuti yi ñu am ñu leen tudde du dee fenn am fu la foo xam ni laal nañ la fa te mosuñu la foon woon laal na ay yenn marandeuses yoo xam ni yëpp la di jaay mu si gën a dangereuse danañ ci gis koo xam ne dafa am jëkkër am borom kër mais amatul bànneex amatul bànneex bànneex bu sëy laay wax ngi añ ngi reer ngi am ay gasneer am na tout ce qu'elle veut mais physiquement ci wàllu sëy ya ya ya ya ka waroon a defal bànneex yooyu ca borom kër tey nag yëpp amatul doole am na cholestérol am na diabète feebar na ay système lâché na à certain niveau ba xëy na amatul doole boobu te nu yàlla ne yenn jeeg yi yenn diraanke yoo xam ni yi ñu soxla du loolu soxlawuñu rek lekk naan alors ngeen am benn seq benn mbir bu deux minutes trois minutes nga daal di pare na fas yéene nelaw semaine bi yëpp yooyu nekk moo tax ñuy def ay découverte di am ñu ñuy xam ñoo xam ne elles sont euh, ñu xaw a sori tuuti ñoo xam ni xëy na euh, ña nga pële nekk benn waay ñuy waxtaan ak moom ci Facebook waxtaan ak moom ci WhatsApp ci WhatsApp ci WhatsApp ba mu am rencontre euh, bu ñu amee rencontre mu am benn bis boo xam kaddu kaddu day dina dina jur dina dina dina indi bànneex yu rëy rëy di nga am yooyu dégg yoo xam ni nga am yooyu yëpp ak yooyu def yoo xam ni c'est c'est c'est inconnu da nga dem ba doo mën a sama sa bopp nga def nga def nga def découverte bi yow laa fa parce que des fois généralement c'est c'est lianke bi mooy déplacé wu dem à des niveaux insoupçonnés euh, ba am lu mu séq ak koo xam ne yàgg na wax ak moom ci WhatsApp et tout ça ñu am fu ñu jaar mu jeex na parce que des jigéen dès que vous découvrez son intimité maanaam dugg ci intimité ba atteindre ci egg ci benn stade kooku moom daanaka dafay mel ni comme benn esclave sans bipartisme alors mu am yeen ñu mu xam ñoo xam ni élevage la nit ñu duñu nelaw di connecté ba seen bopp seen bopp yii ma lay wax na yu ma yu ma yu may ma xam la am ñoo xam ni aussi euh, may waxtaan ak ñoom ñu bare bare bare bare euh, jigéen ñi daal bari nañu ay façon les maraneuses catégorie yu bari lañu mais bi ci gën a doy waar yóbbu palme bi fii ci Sénégal mooy Irak ñi nga xam ne am na nañu jëkkër fàttali ko ak ñi nga xam ne turu jëkkër rek la ñu am am nañu jëkkër mais amuñu jëkkër parce que jëkkër yoo xam ni taxul ñuy wax Sénégal ndax léegi bu njëkk ba bu njëkk ba daan am diine ak ngor mais léegi ngor ka naaw na diine gi naaw na ci diggante ci biir sëy ndax ngor jiitu diine ngor moo jiitu diine yii nag fii la fekk ngor ndax bu jëkk ba ba am werante dañ naan ndax ngor te def waaye am na ñoo xam ne diine du ngor ah waa ji yàq ci yow def ci yow xaalis marié la di kër te dem ba mënatoo a ba xam mënatul moom daal di fexe ay mécanisme mécanisme yi mooy ay voies rek di maraan di léegi jógee fii dem ba Thiès jigéen ci wala mu jógee fii dem ba ba ba wala mu jógee fii dem ngir benn mbaraanam moom tamit yendu fa bu jant sooyee mu ñëw wala boog yàlla euh, nit ñi daal ñoom ñoo yóbbu yi. supanateur ñuy wax nii loolu am dama yore am. Mhm. yàlla xam na ni police dama police man damay arrangé tout le temps dañ may woo parce que nit ki bokk na ci sama sama association foog ma jóg man ma damay ma intervenir dañu dem jëli chef naturel ñu ko jël ko borom chef naturel garde ko man la yóbbu police ñu lay obligé man woo pour ñu dugalante dugalante kamaanam tabaski korité yooyu ñooy tax même bu dul tabaski ak korité cheveux naturel en personne mi ngi toj dëkk bi mi ngi toj dëkk bi kañ la cheveux naturel léegi la cheveux naturel dañ koy leb wéer ko ci mbaraan dañ koy leb wéer ko ci mbaraan dañ koy lépp wéer ko ci ka jaay commerçante la day bëgg instant mu récupérer xaalisam bi ngeen waxante bu taxaw la dégg leen dégg man tout temps dama ci tout temps tout temps ñu mm. parce que ah tout temps ñu woo ma génn ma situation waxal kii yow pour ñu wax man maa leen man pour ñu wax man maa maa koy fay daal maa maa jëloon affaire bi xam nga parce que da koy jox ma pour ma man mën naa obligé dugg pour calmer affaire bi le temps mu mën a doo daaxka tuuti pour fay cheveux naturel mu ngi tax dëkk am léegi lañ naan cheveux naturel nii am na cheveux yu fi nekkoon gënoon ko metti yéen nit ku ñun mooy jëlee est ce que ñun mooy jëlee. man système mu mbaraan yi nga xam ne jigéen ñi dañ koy teg système am na ay système yu mbaraan ay teg diin yu garaaw yu ñu teg par exemple. bu baax a baax a baax a baax loolu baax buñ la bëggulee non jigéen dafa dangereuse ah jigéen bu la bëggulee ndax ma yàlla baal jigéen laa. mais des fois damay am lu ma daan waroon lu tax nekkuma góor man en personne ñuy gis jigéen bu la bëggulee yor nga lu bari dama ciy lekk lekk lekk lekk ba doy dem jëli sama benn xarit boo xam maa ngi noonu nii tegal ko dil bi ni ka lekkal ci feddo mm-hmm. nekk nga am ci li mu am ci li xal ni naka naka la koy passé xarit bi numéro la ngay jox léegi yow wax nga numéro yi alors dama gis sa numéro sama portable yow la kan ah kon dama jum gis sa numéro pourtant nga gis di genre pourtant nga gis di genre façon baraan bu nekk mbir ba am na ci àdduna eh, façon de kon kon góor gee yomb day hmm. fekk eh, góor gi yomb góor gi day yomb hmm. góor gi tam dafa yomb mais am na ñoo xamante dara hmm. dara xamuñu dara pour ñoom lii doomu aadama lu mës a xalaat lii ba koy def te jigéen lu mu lal xal nga koo laal mais mm-hmm. da ngeen doon naan bi si dëggantaan jaay pour laali loolu maa ngi gis man ku am luy daan valeur dañu perdre ay valeur morale dañu perdre amatuñu valeur ñun ma ko yàlla baal mais bu jigéen doon jar tey tey ay million léegi jigéen mi ngi jar ay wéccet ah. ah. yaay ku ci joxe sa bopp yaa cay def yaa cay def pare man dama gis ne waa mbaraan boo ko defee ba pare après nag ngay xoola waaye ci biir intérieurement bu fekkee jigéen bu baax nga yow sa bopp boo xoolee jigéen nga mosoo ko def la mbaraan mhm. dëgg nag non je me respecte dama respecte sama bopp mos ma mbaraan ba ma ba ma nekkee ba ma juddoo ba tool nii ma tool nii mhm. ah ñeent lañu yoo xamante mun naa ko waax ak nii nga mel nii ak nii nga mel nii moo tax je respecte xam nga tax dama teel nekk responsable te dama doon am loo xam ne dama ko doon tere ak sama ñi nga xamante ne maa leen yore te ñu mu mag ma am ñoo xam ne maa leen mag am ñoo xam ne ma ci mag ma leen koy tere di leen tere ay far donc loolu ma leen doon tere bëgguma man ma leen koy tere far di ko def loolu moo tax yàlla daf ma nattoo am ay faru ñoo nekk extérieur gis nga ki may nekk moom laay nekkal pendant des années xam nga mhm. kooku du fi nekk jéem rek du nekk Sénégal mu nekk mais pour man ma génn ma dem xew damay woo dama koy woo ba mu ma tàgg ko naka maa ngi dem dama bëgg dem xew mu bàyyi mama dem mu bàyyiwu ma ma toog donc ci loolu laa màggaale daf ki ma ki ma njëkk a génn lañ yag génn lool la lool la dem ba ma tam habitude boobu non moo tax xaw ma xaw gis na bonon baran tay mo tay adna tax parce que lima xam ci dëkk bi mo don baran doy baran li xalé ci jigéen def mu ko def ay prétendant mom bari na ko te ño xam ay kilif lañ dëkk bi lañ dëkk bari na ay prétendant mom ay prétendant mom bari na naa ko moom allah ay kilifa lañuy doon ay kilifa yu mag mag lañuy doon doy baran gis nga ma leen tuddoon sa émission bi bu mm-hmm. subaa fa lañ lay fekk ne da coppet yóbbu xam nga te loolu laay dañ donc nañ ko yemale foofu ñooñu lu tax noo boole non mënuma leen nopp xam nga tam nobeel maam yàlla da ngay gis nit ki nopp ko te yàlla tax mm-hmm. mais noboo ko te yàlla tax kon bàyyi ko mu dem ñoom est-ce que loolu dañ la topp nit topp na ma Ndoye Bane pendant des années nit topp na ma quinze ans ma nekk calci booy nekk lu ndaw gérer sama life gérer sama liggéey may top ban léegi may waxante may top fa la te bobu bobu ta yu eh, ki fa la ba sama lay léegi tay man ma ngi yore sama nit di liggéey maa ngi nek sama sama sama liggéeykaay di liggéey mhm. ba ndukk bi mam yalla nañu sutura rek hmm hmm nek mam yalla def sutura rek mais doy na waar trop ñii am ni ñi bañ nak ñi ñu ngi koy bañ ba léegi mais am na ñu mbaraan ba pare am na ñu xam ne mbara am na ñu mbaraan ba effectivement maanaam effectivement eh, mbaraan nga am sa benn mbaraan bu am xaalis mu ñu la coppe fii yóbbu pare samedi mooy kilifa loolu mooy kilifay yi nuñ lay nu ñuy def kilifa yi noonu mhm. duñu ñu xoolal Sénégal fii duñ fi mbaraan parce que pour raison de sécurité seen seen ak seen image lañuy sàmm mhm. ne daggal bi ngeen yëg ñi jaar ni Maroc di jaar pare weekend lay doon tax tax nga ñëwaat. tax tax non moom mooy moom mooy ñëwaat yow mën nga fa defaat quelques quelques jours. te kenn du nand kenn muy kuy nand iya. dagg sa avion bokk bokkule avion ya ngeen day day dagg lay daggal bi. jigéen ñi nga jaar dem moom nee la jaar dem. fa ngeen daje mooy fa ngeen nekk. gel yow gelu ci gelu VIP yi nekk Dakar ci nga bokk yow gelu VIP yi nag diri ak diriyanke VIP yi dinañ baral. bu baax mais rek boo gis na am na exception. bu baax a baax kan a baax a baax ñooñu dañ koy def ak. ñu ñooy mën naa ne sax na ma ko yàlla baax mais nañ koy defee salte ñoom dafa salte dafa salte dafa salte te am nañ ñoo xam ne jigéen ñoo xam ne seen bopp yi wayul seen bopp yee feesul mbuy baan ni jigéen ñi paasante góor ñi noonu la góor ñi di paasante ñu loolu comme ni nga tudd muy gel VIP yi noonu lañ leen paasante moo tax tey tey seetal yow nante nga ci dëkk bi nga dëkk koo ci tudd ñaareel ñu ngi ci respecté bëriwul xam nga ñi nga xamante ne xam nañ leen dëgg xam nañ leen dëgg am na ñoo xam ne suuf ah, discrétion lañ koy defee ñoom mais ñi nga xamante ne ñi ci xam nañ leen dëgg respect góor gu respecté wuñ leen parce que xam nañ ni ñuy def vi benn vice dañu am alors ñoom loolu mooy àddina. mooy fii mooy ñi ñuy gis ci télé yi di leen gis ci journaux yi. waaw parce que ñooñu ni def moom laa lay yi ñee leen. moom laa lay wax noonu jaruñoo ñee nag. jaruñoo neeg nit da ngay gëm sa bopp ku ci nekk gëmal sa bopp man bu ma gisee nit di jooy pour benn artiste. damay toog di la xool ngay xattaraayu artiste ba jënd yore sol nga jënd yore sol te artiste kooku nga tuddee VIP bu xamoon li nekk ci am li mu mën a defar ak li mu mën a yàq. xale yi xale yi léegi minette yi ndaw ndaw ndaw ngay gis ñu ay coca ay champagne loolu lañ def comme si mooy moo moo xew moo moo nekk daal bu fekk ne ñu ngi xale yi xale ba âge bu dafa yomb. côté woy bi côté fecc lépp côté bi côté ñi tudd ni ay star Sénégal amu fi. Sénégal amuñu star ay vedette daf nekk ay vedette lañu am amuñu ay star parce que benn cercle la boo xamante ni boo yorul bokkoo moo yoru bokkoo donc góor ñi góor ñi nga xam ne yoruñu xam nañ seen bopp xanaa ko am fit ku mel ne yow ndoy baat mi yaay yaay la kii nii nii moo yoru bokkoo de seen garaam bu bu eh, ndoy baat dañ ne gis nga dafa wax ne bu guddi jékki-jékki woon doon bëccëg léegi bëccëg lañ koy def nit ñi dañuy ndékki ji xam bëccëg mhm. dañuy ndékki ji am na koo xamante ni moom Medina dina de xam kooku ñëpp ko xam moom moom këram la jël moom boo juumee ba dugg fa xam nga mu jën parce que lañuy dund dañuy ràcc ay mat laa lañ fa sànni parce que kilifa yi rek fay dugg heure de pause nit ñi doxanante doxanante ñu guddé guddé kenn dama tu doxani doxaani bëccëg ma bi ci hôtel bi avant bureau wala nga dem ba ci nga ñew def déjeuner wa jaar 5 heures ma bi non pare nga ci bu guddé do génn sa kess jabar waa sa jabar fogg ni mo ak sa jabar naan man de su laaj bi wo dama sen tek ki tek na dekk bi limuy def boko xamone ma maa day taali mhm. dañuy ndékki ji. ndékki ndékki bee xew dañuy ndékki ndékki ndékki waat. ku ci sa jëkkër teel a yeewu fajar génn topp ko àggul biro wala léegi wala ñoo dugg seen biro yi ba dee 9h ñu ñëw ndékki si fajar 7h 8h jamono jii nag lay gën a. jaar fa xale jigéen yi ñoo góor ñi àkk guddi ñu toll nii góor ñi àkk te ñu xale jigéen ñi bari ñu ngi tëdd pen bi te man tëdd pen bi daal ma man. tëdd pen bi ma mooy tëdd pen bi boo lekkee am na nante yu mel ne yow sa genre gi nii boo lekkee seen xaar da ngay tëdd pen bi boo bo donaa donaa la donne moi je te donne kese loolu moo fi am foo wala njoxe day tëdd pen bi am na xale jigéen yoo xam ne loolu la ñuy dund am na ñoo xam ne nee nañ dañ dañuy xaar ba nga jox leen ñu daw mënul nekk c'est pas vrai c'est pas vrai mu ne daw mel ni dañuy ku la ne daf mbaraan naa te dox te kii dama koy mbaraan daf may jox xaalisam defalu ma ko danay wax lu ko nii xale jigéen léegi ñoom leneen la dund après suñu toogee dañ koy dañuy waxtaan dañ koy waxtaan dañ koy waxtaan suñu biir dañ koy waxtaan dañ koy waxtaan am ci man sama bopp boo xam ne lii barke rasulullah ki jox ki dafa am jëkkër te da doon dem di jour boobu te benn ci yam xool dem na ba nga xamante ndigal AES la koy dund naturel c'est naturel ah c'est naturel ah, léegi groupe yëpp ñi ci am conducteur yëpp loolu la dund dañ lay takk doo ko tey dañ lay takk mais nag sëriñ bi daf leen di wax ne bu na ne ni baat mi denc na ko ci banque ba ngeen ko denc na ko wóor na ne denc na ko ci këram wala denc na ko ci ngeen ko denc na ko que bu ko defee moom noo def da ngay danga boo amul xaalis sax da ngay uti xaalis ñu jox leen donc boo amul xaalis doo mën a tranquille donc foog nga jox ko parce que dañ lay fa sëriñ baax lañu fii Thiès dañ lay sëriñ daneen fas bu ñëwee rek jaxaar ndoy baat jox ma saa dañ la dinañ la jéem duñ ñëw rek direct ne la jox ma mais dinañ la fóon dafa lay affaire am nga ne la jox ma loo yor dañ leen koy jox temps bi ñu la wax dañ koy teg seen loxo loolu preuve laa ci am dina la xam la ñuy def mais moom dinañ ñëw ni ma xaalis baa ngi nii man dama cee gis ay jigéen ñu am jëkkër bien am jëkkër am waxuma la benn far de xam nga na Sénégal doy na waa léegi dañ ci am ay ay ay ay far ay ay ba pare naan la kii woo fi may yegg. waa léeg nga dugg kër ñuy kompaloo soo yorul dara duñ la faale. Mhm. soo yoree nag ñu ne la yaay seef boo ñëwee ñu dalal la. Mhm. mooy dajale ay far rek. nga bàyyi kële topp ki utiwaat kee pour bëgg tàngal ceeb mais ku góor kooku ma war a yeew. Mhm. parce que xam na ne bàyyi na la mu xaar ba feeti di jege si mu ñëw ànd ak yow. pour am ci yow dara mais yow yaa war a boo bëggee ni di ko defal lu nekk. nga ni mbaraano moom nga bëgg. da nga sincère mais na la takk ngeen sëy bu dee lim lay defal ci doxaan bi dina la ko defal ci takk bi. Mhm. man su ma amee loolu jël. xanaa nag sëy du benn de. waaw mais nu mënti doon rek comme bëgg nga ko mbëggeel moom moo laal yëpp boo ko bëggee moom mun di taximan yi te am na ci taximan yoo xam ne yéen may dégg bu baax a baax déglu leen baax li ma leen wax taximan yi da ngay arrêté taxi bi wax ak moom soo leen demee ba yegg fi ngeen jëm nga ne ko soo bëggee ñu egg ci biir nga bëggee dem loolu mooy pay gi am na ci ñoo xam ne sax dañuy def abonnement abonnement xale bu jigéen dañuy am ñetti gel yoo xam ne fu ñu jëm leen yóbbu waaye yow heure boo <laughs> xooñee dem ñu ñu ñu defal la ngeen ngeen ndax ba mu neex loolu xale yi jigéen ñi dañ koy def abonnement abonnement la ko taximaan yi tudde heure bu bëggee génn nga ñëw jël si ko këram bala ngeen a génn ngeen bëggee soo ko wër su wëree dëkk bi ba pare ba dem fi muy dem ba pare nga indiwaat ko déposé ko nga bëggee daal di dem continuer dem liggéey si ndaxte gars yi abonnement lañ ko tuddee fi mu nii dëkk bi yëngu na yëngu na nag te tey te day day gën a yëngu parents yi xam nañ ni dëkk bi yëngu na am na ñoo xam ne yàlla na soo yoon neex doom yooyu lañ koy ñaanal ñu mu xëy dem am na ci ñoo xam ne fi nii nii dañuy xëy suba 9h ñu gàddu seen saak aw yoonu ndakaaru dangi dangi ba ngoon jot ñu ñëw toog suba ñu xëyaat tegaat ko ci ginnaaw suba ñu xëyaat tegaat ko ci ñoom xale yu jigéen xale bu jigéen bi ci kër gi mooy réglé xottu xotti mbasin ba baayam di sol ba yaayam di sol mooy seefu kër gi mooy solal kër gi yëpp te xale bu jigéen bi liggéeyul tey na fi góor ñi tamit góor ñi tamit nga bàyyi sag njaboot baara njaboot ni mu foore nga bàyyi sa njaboot sa soxna soluwul ak li muy ci yow di la toggal di la yàkkal nekk ci kër gi ay gàddee xale yi ah nga am loo war a mën a def ci kër gi defar kër gi ba nga jël xaalis ba nga waroon def ci kër gi dem jox ko xale yi jigéen yi ci mbedd mi dégg naa sax am na ci ñoo xam ne euh, suñu toogee ba affaire yi naroy jaral na leen ñu jël seen numéro am na ci ñoo xam seen papa dafa am alal dañuy jël seen numéro papa jox ko seen benn copine mu dox dox bi te léeg-léeg da nga ñaan parents ñu bañ nga ne sama xarit bi kaa ñu teg dil ma jox la sama numéro papa nga gérer mais boo amee danga may cër. waa parce que kooku jàppalewul yaayam moom ni ku mbaraan papaam jox ko. loolu la bëgg parce que parent boobu noonu def loolu nangu mënoon na ko jox doomam parce que doomam am na soxla jabaram mi ngi ci kër gi soxla mais duñ ko jox lépp góor ñi la rek parce que ñun lu nekk ci ñun yëpp góor ñi ñoo ko def ci ñun ndax sa jaba dalay ñaan nga bañ nga am benn xale nga xemmeem ko topp ko mu laaj la lu ne nga jox ko ko da ngay xuloog say jabar sa jabar sax nax moom loolu pour lan la sa doom da koy xam bàyyi ko ci biir bu demee nag ba ba xam ne ne papa ji def na lii wala laa rek après mu commencé respect bi wàññeeku dootu ko faale wala di ko jéem a diire mang wala mu wax mu ne ko man du sama kilifa wala yi toog mm. yax fii daal lépp fi am. moi je ne crois pas à ça nga. Uh-huh. man gëmuma mbaraan c'est-à-dire dans une situation sociale boo xam ne. Uh-huh. je crois que toute personne consciente war nga xam ne. Uh-huh. war nga xam ne kenn mënalul kenn dara ku nekk say soxla doy na la sëkk. pour toute personne consciente. léegi nag ñi nekk ñii foog naa ne toog ba léegi di xalaat mbaraan.

c'est pas c'est pas c'est pas euh, c'est pas un donna donna c'est-à-dire euh, dans le côté financier ma relation amoureuse euh, c'est une relation naturelle. non non affaire film mais dafa am devant. ñuy dem orientation mais kuy for sa xaalis nga am da ngay dox di for soo fexe nga sànni ko parce que comment dirais je. Euh, am nga waaw euh, non en fait sànni la quoi parce que vraiment yow do euh, sànni la parce que tu les encourages à aller travailler doo leen dimbale pour ñu soppi doo leen dimbale pour ñu liggéey doo leen dimbale si dara ñoom dañuy foog ne loolu loolu mooy bëggee benn jigéen di ko defal bëgg nga wax bëgg ah mbaraan dafa ute kuy ñëw di mbaraan bëggul xaalis lay ut donc il faut que ku góor ki doo xam ne kii xaalis lay wut. waaw mais nit ñi doxuñu ñoom ñoo foog ne xanaa moo tax man la mbaraan ngaa kay la ngaa kay ñoo ko moom. parce que koo bëgg ngay wax mais ku kuy mbaraan du bëgg a mbaraan genre benn loi donnaa donnaa la jox ma xaalis ma jox la sam bopp. xam nga loolu c'est très vilain c'est très vilain c'est moche. c'est donc man je crois que ñii di jël xaalis bi di leen ko jox ñoo leen di dimbale si loolu mais lii cest à dafa di loo xam ne liggéey boo xam ne xaw ma liggéey la xaw ma nu ma koy tuddee du wéy ça ne peut continuer parce que nit ki aussi il faut nga nga gëm sa bopp nga gëm ne yàlla ñëpp lay jox mun na la jox yow comme mun na la jox keneen balaa nga koy yaakaar si kenn nga yaakaar ko sa bopp moi je préfère avoir une une femme une copine kuy def bon di gañ a xaalisam honnêtement que kuy wër di ñaanaatu di di mbaraan tu as compris j'ai remarqué que léegi ñëpp géwél lañu ku si gis mu ngi ñaan ñaan ñaan mais loolu rafet ñii nekk si baar yi ñoo leen tane parce que ñoom sax am am nañ sax ñaata ko joxe ko ci ku am mooy joxe su mu ne ne dëkk bi du dara doxul waaw waaw tous tous dara doxul léegi la laaj ñu la dara ah mais ku ma la tam da ngay sonal sa bopp ndax ma amul mu joxe ko amul jox sa ko ko amul loo jox sa njaboot am nga soxna am naa soxna kay am nga am nga gel ah waaw naa benn waxaale. ah waaw joxu ko ko dara moom. tous kay tous joxuma ko. am nga jëkkër. déedéet aw ma jëkkër. da liggéey. déedéet liggéey damay jàng. looy liggéey fooy jëlee lool. ah ma fari rek. ma fari yoroo benn. déedéet mbaraani tamit si la si la tamit di. waaw. noo koy doxalee lool. ah xaa ku ñëw jox ma ma la aw nga jox ma. nga jox ko. ma ko lan. mu ku ñëw ne nga nga ne ko aw ma. bu ko nee aw ma mu jox ma xaalis ma ñaata moo lay day ma wax mu jox ma xaalis ma dem jëndi. ku njëkk ki ñaata la la jox. njëkk yi am na ku ma jox yow cinquante mille. keneen ki jox la ñaata. keneen ki joxaguma. joxaguma moom laay xaar déedéet. Mhm. ñaar lañu kon wala ñett. bëri nañ de. waaw ñaar la wala ñett ku nekk lu ñaata nga koy laaj. li ma laaj moromam rek laaj. cinquante mille waaw. waaw ñoom nag ñoom. dara. kenn du la laaj dara loolu yomb na de. ah ngay laajte ñoom du la laaj dañ maa bëgg moo tax duñ ma laaj yow bëggoo leen ankay ñoom ñin ñoom ñëpp nga bëgg déedéet kenn ki laa bëgg ñooñu ay mbaraan rek lañu waaw waaw na ah, mais gars yi duñu joxe seen xaalis ci zéro waxal dëgg xoola wuyu ma ci dëkk bi nga dëkk ci dëkk bi laa dëkk ah. waaw peut am na ñoo xam ne dinañ la ñaan nga may leen am na ñoo xam ne doo leen may wa parce que mënoo lekk xaalis jàmm te doo leen may ay yàlla tere amul may maye ah aw yor nga looy maye kay yor déedéet soo yor woon looy maye ñoom duñ la jox seen xaalis ah ñoo xam ndax yor nañ seen jabar waaw ñëw topp xale yu jigéen yu ndaw yi lekk seen xaalis rek mu jeex tàkk waa kon da ngay lekk seen xaalis faale woo leen waa kenn ki daf laa faale ñaata lan ak lan nga jënd ko jënd naa gañ laa dafa fay ñëw cinquante mille francs jënd daal maa ngi bëgg a cheveux foog moom baraan pour am cheveux naturel comme xale yu jigéen yëpp sa yaay xa na loolu sama yaay ah su ma mayee dama na ko may nañ ma xaalis na soo mayee yow nag di nga ko wax maye naa. maye lu may maye aw ma lu may maye Modou. ah yor kay. aw ma paa yi ñooy guwaanaay ak ñoo mën a maye xaalis li kenn yi paa yi rek dañuy jox loolu ak loolu. waaw yow nag doo leen jox loolu ak loolu. yàlla foo yem ak ñoom foo yem ak ñoom. yem ak ñoom toog dem restaurant toog lekk pare ñibbi toog waxtaan jeex na kese. yomb ah, bi duñ la jéem a raay di la jéem a def yu neex yooyu. yàlla tere. lii paa yi dañuy yëkkati seen xaalis di la ko jox. waaw yaa bëgg rek moo tax. Hmm? waaw ñoo topp xale yu ndaw yi ah. ñoom duñ laaj dara xale yu ñoom loo leen di def. waaw xam day laaj ma bàyyi la la fi lekk sama wërsëg pare dama bàyyi la fi waaw soo woyee du ma la faale. mais mus nga ci am bés koo xam ne benn paa boo xam ne moom def na la yëfi bandi dëgg. déedéet. non yëfi bandi yoo xam ne foogee ko woon nga daw. déedéet amul. yow daal yaa ngi mbaraan di réussir rek. waaw benn paa mosagul la ci euh, dégg. yàlla tere dama lay napp dama lay jël jël bu njëkk avant. Hmm. waaw. kon paa yi ñooy guanaay. paa yi kay ñoo ko yor de. léegi jeunes yi dañu maye. paa yi rek kay maye dañu benn paa yi kay deux cent cent mille may la ko waaw. ñaata ëpp lu la mu ko may. ah. ah bëri na daal. li leen paa yi may rek ngeen wax mais li leen li ngeen may paa bi doo leen ko wax mu. ah amul moo tax ñu koy ndaw yi. paa yi ëpp yërmande rek. paa kaj. waaw ah. <laughs> ah, lu ñuy def ñu am jox la ko. lan mooy système bu paa yi ak ban heure la ñuy ñëw mbaraan seeti seen mbaraan yi. Hmm? heures. 6 heures. ba 8 heures dañuy ñëw ci kër gi wala suñu yoree oto ñu gaale bopp koñ. fu leen neex rek fu ñu xalaat rek. Uh-huh. Uh-huh. wala auberge boobu la waaw. Uh-huh. suñu ñëwee ci biir oto bi lu fay xaw di dina xumb wala du xumb. ay hmm. yi la neex na nax. neex nañ nax waaw. na waar ci ma ci jaaxal euh, paa yi après dañuy ñibbi kër ga laal si jaade ba julli sol seen blouson. toog naqari deret nag tey laaj reer. jël ñu reportage bi. waaw euh, Ndoye. donc liñ jot a dégg suñ ko xoolee bu baax a baax dangay gis ne. Euh, intérêt day ñëwaat. intérêt day ñëwaat et c'est injuste. Euh, ndax xale bu jigéen bu njëkk bi mi ngi wax ne. Euh, da ngay xool sa intérêt rek. waaw intérêt su duggee rek. donc dañuy wax ne mbëggeel amatu fa. ndax mbëggeel su ko intérêt lalee rek. du mujj fu baax. nit soo koy bëgg da nga koy bëgg te yàlla tax. sa objectif ak moom mu leer naññi. ngeen ànd dox. Mhm. la ca kanam. yàlla moo ko yor. Mhm. te soxna ko sababloo rek mu def ko nag. Mhm. te gis nañ ko fi ay yoon yoon yoon. Mhm. gis nañ ko fi def réussir. moom la gars yi di wax naan dernière euh, derrière sa grand homme y a une grande dame. grande dame boobu nag du ko xeesal toog ñu lay jox ay million ba mujj tàkkal déedéet da ngay ànd ak moom. trimé sonn daj jaar fu ne ba sa góor yor yenn poste de responsabilité yi su gersoo gis la day am fierté day xam fa ngeen jaaroon démb ak bërki démb mu la ca kaw. dama bëgg gañe gagné sama vie. Mhm. honnêtement waaw kooku nag dañuy ànd ak moom à cent pour cent jigéen la waaye dégg nga la mu wax. Mhm. ñi ngi koy def. xam mhm. naa ne ñu ngi koy def waaye man daal je préfère gagné sama vie honnêtement. waaw loolu moom dañ ko dégg rek fier ndax nit. ak loo mën a am noo mën a mel sa àdduna soo ko gañewul honnêtement bés dina jot yow rek kott dong nga toog ci nekk réccu ko am na ku wax ne góor ñi dañuy xool jigéen ñu nekk à l'aise waaw loolu dafa nekk phénomène boo xam ne ñu ngi koy commencé gis ci biir réew mi. Mhm. waaye góor gu ñàkk jom rek ko koy def nag. Mhm. su fekkee dañu tëngu nag tuuti ci diine. Mhm. dañ ne sa jabar ju njëkk. na bokk ci famille bu am diine. mu ne sa ñaareel na ko tànn ci mu bokk ci famille boo xam ne dañu xaw a nekk à l'aise. loolu diine may na la ko. waaye waxu la nga topp intérêt. waxu la loolu de. jigéen dina nekk ci famille bu nekk à l'aise ba pare mbëggal. dox sa diggante ak moom. Mhm. waaye xale bu jigéen bi day dem Dubai. Mhm. day dem Chine yor na ñetti cantine ma ngay jaay benn mbëggeel taxulaa jóg cantine ba nga gis Dubai nga gis Chine nga gis moo tax nga dugg ca loolu ta barkel compte ba nga xool. compte ba nga xool. Mhm. te nag góor. moo war a dëkkal. dëkkoo. faj dundal. wodd. loolu lépp su ko ndaw si yore. nga dem toog. yow yaay jabar ji. ñu lay dëkkal. Hmm. dëkkoo moom xëy na yaa koy def. am na góor ñoo xam ne ay jabar lañ. waaw su ko defee ya nga xam ne moo ca tegu. Hmm. nga war koo def muy wareef ci yow. Hmm. nga bàyyi ña la koy defal. a ah, nekkatoo ci diine nag. yaa ngi problème loolu problème te loolu it du mujj fu baax. am ku ne. jigéen ñi léegi. li leen tax a jug rek mooy matériel. xale bi nga jël léegi wax na ko. man de jënd naa sama jesnaar. fay naa cinquante mille ña ngay ñëw. Hmm. dàll ya mat na. Hmm. li ma dese mooy cheveux ya. Hmm. damay dem mbaraani ko. nga ne ko est ce que di nga wax sa yaay ne dañ la ko da ko koo mbaraan. mu ne ku ma may xaalis ma ne yaay. may nañ ma nga ko est ce que soo mayee di nga ko wax mu ne du ma maye. xanaa ay xale lay waxal. na loxoom ci ëkk. na loxoom ci safara su cooy. ndax soo fekkee mag ñu màgget ba dew toog. jigéen ñaa ngi lay xeelu de. ngay wax loo xam ne nii ku ko dégg xam ne li teguwul. Mhm. ak quatre-vingt pour cent. Mm. ndax suñuy wax yi dañuy estimer. juróomi góor ku ne jox la cinquante mille. xam nga benn benn mag daf a wax ne ma. Mm. góor ñi li ñuy joxe fañ ko lëmas baaxul. ah baaxul de. ndax soo jëlee rek. Ah. dajag la sa nekk. te soo moom musiba am. donc moom loolu lañ koy tontu. mooy avance gaston rek suñu xoolee loolu yëpp dafa am ku wax lu am solo. Mm. góor gi mujjee euh, génn noonu. Mm-hmm. dafa indi aspect pauvreté. Mm-hmm. et c'est important. Mhm. gis nga êtes dans une population pauvre. Mhm. Motax euh, ngor. Mhm. Euh, dafa am solo gis nga gore. ak euh, yooyu dafa am solo ak dëkk bi lu met dafa am solo mais gis nga pauvreté day yóbbu nit ci pauvreté ak yàlla ñàkk baaxul. baaxul du su su su gone gone yee suñ leen yarul lool ci diine. dootul am kàddu dootu am kàddu ci biir kër gi. xoolal li nga wax léegi ci ci ki ndaw si. Mm-hmm. bëgg a fande moog yaayam. Mm-hmm. góor dugg yaay gi na ko ma nga ci biir. Mm-hmm. mu jàll def la muy def jox ko ñett. génn jox yaay ja benn. ànd ak moom mu jënd ndawal ñëw yaay ja lekk ca. mu toog ba si dellusiwaat mu jooy. ok. xam ne la mu lekk. Mm. la ko ko may. Mm. daganul diine. Mm-hmm. bëgg ko waaye. Mm. la mu ñàkk ko ko teg. Mm-hmm. kon gis nga aspect pauvreté suñ ko dugalee rek. Mm-hmm. daanaka yi ñuy wax nii lépp. mi ngi mi nekk ci pays yi nga xam ne dañoo am pauvreté. donc aspect boobu aussi dafa am solo. li ñuy wax daal mooy. ak lu mën a xew. ak lu mën a am. mbaraan. du loo xam ne mbëggee la ko lal sa bakkan nga koy teg am sa soxla am sa objectif ak sa intérêt di ko dox képp mm. nag kuy dox ci kaw jaan. Mm. bés dina jot sa tànk néew yi. waaw mais jigéen ñi ci plateau bi d'accord ñu ni comme li nga wax ni ndaw si gars yi jox nañ ko waaye joxewu fa dara mm-hmm. mami d'accord. Euh, kii nag monsieur Ndao ah. yu bari moom macha allah d'accord naa ci ak yow. Mm. gis nga reportage bi nii li mu wax yëpp yëpp yëpp dëgg la dafa am. posi ñii wax positivement dafa am ñii wax. négatif de am euh, mbaraan maa ngi tas dëkk bi wax lu wax parce que je wax lu raw li reportage bi wax wax na lépp. te des na di. lépp lépp lépp lépp lépp mi mais xam nga man lan sama problème man turu cheveux naturel cheveux naturel sama sañ bi nii nii man man cheveux naturel loolu moo ma metti dëggantax gis nga su ma toogee fii waxee neneen nu nii rek ñi ma xam mom meen njëy wali mami mi normalul parce que moom moom nan la mën a di conseiller nit ñi parce que man loolu ci sama métier la bokk nan la mën di conseiller nit ñi ci lu baax mu ñëw toog ci rajo di waxee neneen loo leen wax ci mbaraan dëgg la am mhm. mais cheveux naturel mhm. dafa am yoo xamante ni Moussa Ndaw ci fii la ci bopp la ci ci ci bopp la ci mentalité la hmm. parce que damay mbaraan pour jënd cheveux naturel damay mbaraan pour jënd pour sañse damay mbaraan ndax tabaski bi hmm. loolu ku amul xalaatu aduna, ko amul ben. responsabilité waaw koku moo koy moo koy xalaat xam nga juyoon ma toog hmm. ci ci rajo bi di wax man ci sama bopp mais nag am na des fois yoo xamante ne boo wax il faut xam nga nit li mu dund li dund loolu loolu la mën a wax carrément loolu la mën a wax dëggantaan monsieur Ndaw est-ce que xam nga man xam nga lan moo tax ma xam ne tabaski am na ma xam ne tabaski dafay ñëw. Hmm. parce que xar daf ma war. Hmm. man maay pap ji yaay. Hmm. xar daf ma war defal samay doom daf daf ma war. ca may pap ji yaay. xam nga ak. yàlla ndeysaan dafa def ma nekk xale ma gën a tuuti suñu famille. Hmm. xam nga. Hmm. mais macha allah samay mag samay mag yu jigéen ñëpp ñoom ñëpp samay xarit lañ. Hmm. te du dama leen ëppale aw ma dara au contraire sax xëñ na ñoom mais dama tàmma dama am cër boobu ci ñoom bu lu jot dama naan lii samay mag ñoo ko moom. loolu dafa nekk fii sonal ma. su ma ko amulee dafay dafay doy waar. man bu ma defee loolu bu ma amee xar samay doom sama li ma war a def après man damay damay damay mhm. mais su ma ko amul damay damay am problème te yaakaaruma ko nag ci kenn rajo lay waxee ñi may dégg xam nañ ma ak ku ma ko mës a séqal na oote ci rajo bi mu ne mami mës na maa ñaan. ci mhm. pourtant nag c'est pas normal gis nga nit boo dee nekk ak moom bu dee benn dërëm la weer wu dee danga ko ko war a may. lu fuñ ko bind non non may ma rek may ma. non non non non am na loo xam ne soo ko waxee day ni force la. non ma non may ma rek may ma xoola bu ma déstabiliser s'il may ma rek. <laughs> parce que li gën a cher. ci jigéen. Mm. Mm. jigéen moo gën a cher àdduna ak li ci biiram. Mm-hmm. te yéen góor ñi da ngeen di nekk ak jigéen di ko demandé loolo mm-hmm. te munoo leen ñu defal yéen lu ñu gën a cher ñun. c'est impossible. ah góor it am na lu gën a cher de. ngeen yore lu gën a cher noonu lu góor yore lu cher. xam nga. yéen góor def ni góor xam nga maan encouragé wu ma lii mais dëgg tam dañ koy wax mm. dëgg dañ koy wax bu jotee mm. xam nga yéen mm. eh. soo leen nekkeeg jigéen mm-hmm. boo leen sañoon bu jig ku jigéen ki bu nangoo moom boo leen sañoon première jour sax ngeen def ko ko mm-hmm. te day ngeen coucher ak moom coucher ak moom te da ngeen di nekk moom mu koy bañ di ko bañ dëggantaan ba nga xamante ne kii dundul lii buggul lii mm-hmm. mais toujours teewul da ngeen ko ciy force ba après loo leen ca am ngeen jël. Mhm. xam nga. Mhm. léegi lan moo tax ak loolu ni mu chéré nit ni ni boppam chéré. Mhm. ni jigéen chéré nit en général lay wax mais surtout nag jigéen. parce que jigéen ndeysaan am lu am lu dul boppam. am lu dul honneur. léegi yéen ngeen koy forcer ci loolu te yéen waru leen yéen we mais am na loo xamante ne sax gàcce la yow nga nekk ak jigéen. musu la ñaan du la ñaan. lu mu am am am am jom mhm. yow des fois wer mën naa dee nga yëkkati dara mhm. wala même bu dul weer dee des fois sa marchandaire nga nga defal ko benn surtout nga xamante ni kii ak responsabilité bi. mais loolu jigéen gu ko jar lañ koy defal. pas jigéen goo xam ne maçon ba. su ma dee wax jigéen bu man d'accorduma ak mbaraankat yi parce que mbaraankat ndooyu ñu wax ko. Mhm. xam nga loolu lan la Baara wax na ko sànq. de la prostitution prostitution non d'accorduma ci du tout nee len suma toge fi di encouragé lolu ñima xam deug mhm. dinañ ñi mais mami mi moom lan la tay ndooy dafa am ben question bu mu la pose bu am solo def na la mhm. weer dee na mhm. nga ne waref la ci man ma jël touti ci sama mbir may la sama copar ndax dama nek yow ngey jigéen du deug ak sa responsabilité fu mu toll ndooy na la fa lañ ko bind est ce que c'est une obligation taxawal du obligation mais mm. yéen mm. bii moo gën a cher bii moo gën a garaaw yéen jigéen bi ngeen di wax bi ngeen di topp pour dama dama bëgg a euh, ak yow dama bëgg a ak yow dama bëgg a ak yow mais xaalis yéen yéen mënoo leen ñu jënd amul leen suñu njëg. saa yu dëgg dégg xoola heure bi sax guddi guddi na yooyu mën nañ ko cee coof tuuti mais loolu plaisir partage la. yéen a ko bokk yooyu nañ non non non plaisir partagé bu ko ah. nit ki nango mais yéen da ngeen di nekk ak sax ni du ko nangu du ko nangu ah. ngeen ko ciy force di ko ci force di ah. ko ci force ba loo leen ci am après jël non xam nga ndooy góor bi nga xam ne loolu moo ko taxawal ma non dama bëggoon sax non baara baara xam nga góor góor bi nga xam ne loolu moo ko non loolu nag moo am hmm? loolu mooy am waaw mami mami non dafay am mami mami non baara déedéet bu xam naa li may wax non non day fekk fii lépp am na fi baara fii day fekk non bul wax loolu non bul wax ñu ñu avancé. waaw li nga jéggi foofu te avancé. xam nga xam nga xam nga man fu may ñëw mooy. Hmm. Euh, gis nga xel mu ñu yarul grand Ousmane Dramé. xel mu ñu yarul dafa garaaw géttum xar la day jaay xar. gis nga xel bu bakkan bu xas. xam dara xanaa déggoo li mu wax. Ousmane Dramé day jaay lan. sunu grand. waaw bu ñu wàccee jaar fa mu jox. ñaari gétt la yor de. <laughs> bu ñu wàccee jaar fa lu mu guddi guddi kay. waaw du Seye borom ah. taw feex ñu ngi koy nuyu. moom day jaay xar. ah xuma lay jaaxar de waaye xam naa ne ñu ngi koy nuyu daal <laughs> mais taw feex war nañ ko dagg ngeen ma de dagg ngeen ma de su tawee rek feex mi ñëw waaw ay waaw <laughs> waa gis nga xel mu ñu yarul mhm. xel mu ñu yarul dafa garaaw gis nga euh, mu ngi mel ni nit kiy tux bëgg a bàyyi tux mhm. ni muy bëre bakkanam ñu naan ko non bu fa nekki nicotine bi nekkee foo jaar day muy xeex rek ba génn ci mhm. gis nga xel soo ko yaree Euh, orientation yi mu lay jëmale. Mhm. yow yaay xeex ak moom. gis nga euh, mbaraan bi bi ñuy wax nii. Mhm. du ay ngoro. Mhm. gis nga soo demee Gana. dalay mbëggeel newu ca. déedéet gis nga boo demee Gana. foofu moo njëkk am caga professionnel ci Afrique yëpp Gana moo ko fi njëkk am. te boo demee foofu man li ma jaaxal man caga yi nekk côté yooyu. dañuy tabax ay étages. am ay tabax ay am ay magasin Mhm. mais caga yi nekk senegal mhm. ab dara duñ ko yor. mais baat boobu fan la jógee baat boobu nga wax léegi. caga mhm. baatu caga. caga moom ñi ngi ko xamee woon ci ku ba tas lañ doon wax caga. loolu naan ab caga. ah loolu nag xëy na dinañ ko gëstuwaat ci ñoom professeur Massamba ñu wax ñu lu baat bi di tekki. mais. ay ku sëy ba tas rek lañu wax waaw ku sëy ba tas daal lañ doon wax. mooy mooy mooy wolofal. wolof la quoi du woon woon pour. du woon pour saaga nit kii du woon pour wax. ah du woon lu bon daal waaw du woon lu leeral waaw leeral la woon. léegi nag gis nga. Euh, euh, mhm. soo demee ci dëkk yooyu. Mhm. ñoom dañ naan la money for hand back for ground. mooy xaalis ci loxo bi rek. Mhm. sama gannaaw ci suuf tëdd na parce que ñoom dañ lay wax lu leer dañ naan la euh, man lii laa bëgg. Mhm. damay mbaraan parce que damay jàng te damay fay sama jàng bu ma pare pare naa ci dem liggéey mais ñii dañuy mbaraan mbaraan goo xam ne liñ ci soxla yëpp mooy jënd ci cheveux naturel bu seer jënd ci dàll yu seer mhm. ñaw ci ñaw bu seer mhm. yor ci téléphone bu seer pose ci ay weeg boo taxawee nii ngay def nii la ñuy def di cekki-cekki ci télé bi naan nii kenn du yëg kenn du yëg comprendre nga léegi nag loolu ñu bëgg noonu gis nga bëgg-bëgg bu bëri te sa xel yaroo ko toujours moo lay dugal ci yeneen orientation yi parce que lu tax mooy euh, da ngay fréquenter milieu yoo xam ne peut-être mm. yow da nga ne mm. euh, sa capacité de finance ak yooyu yëpp waru fa woon egg mm. waroo woon mën a accéder ci milieu yu mel noonu mais télévision yaa ngi la koy won te sa xel yaruloo ko waxu la ne fii du sa milieu mais dala ne nii lañ koy defee te boo defee noonu di nga ko am nga génn taseeg benn mami fële wala benn jay na ba fële mu lam naa sama góor gu baax dama la koy présenté yow tamit xam nga gis nga bul buñ la xasee dugal ci réseau bi ba nga dugg ci hmm. yow léegi kay da ngay dugalaate mais yow doo génn doo génnati parce que ki la ci dugal kooku dafa mbaraan xam na ni mu demee xam na ni mu demee ba pare am jëkkër mbalaan ba retraité kay ñoo ñooñu retraité nag am jëkkër ñoo ñoo gën a garaaw ñooy formé gone yi dañoo am jëkkër ba pare ñoom ñooy placé seeni i gone. ay receleurs lañ ñoom ñoo receleurs yi. c'est que dañuy am jëkkër ba pare. waaw seen far yu njëkk ya. seen far yu njëkk ya la ñuy présenté. gars yi dañuy présenté gars yi. dossier bi la dossier bi la ñuy joxe la. waaw dossier bi voilà. li daan déggoon ñu naan état continuité la. voilà moom la voilà c'est ça. dossier bi la ñuy jëm jay jay na ba mi fi nekk nii. bu fekkee ne jay na ba mi ngeeg ay mbaraanam yu bari. far ci diggante bi rek. mu am jëkkër wërsëgu jëkkër ne ko sarax. waaw. te doyul won ci mbaran nga te bëggu ta moy légui nak ñom mariama lay jël légui da jël compétence yoy dar koy transfert kene mariama lay jël ñu ci bari nak lay yor ah, te day xam gaay nak te heure boko wowe nak muy guddi muy daan la buma wo heure nangam sama jëkër da fi nekk dañ koy dil heure boo ko mu jox la ben numéro na la wo mariama la muy dil te te ñu ci bari ah. dañuy am ñaari pis ba ñett ba ñett pis numéro bu ci nekk am kala kala ci wo lay jox ben ben soir ni ni hmm. ni waji. waji dafa am dafa dafa am dafa am mooy sama dox bi xam nga waaye dafa am xale bu jigéen. mooy sama dof bi. xoolal mbaraan un deux. xoolal kii dafa am dafa am xale bu waa ñaari jabar la mm-hmm. am am benn xale mbojo mbojo ju sew ji. léegi bi mu ko amee jëndal ko portable defal ko ci defal ko ci connexion un mois ak piisam ak euh, euh, carte euh, carte mémoire am def ci ay son xale bu jigéen pare bloqué ko. Mm-hmm. filtre numéro bi bloqué ko WhatsApp. Mm-hmm. waa ji di ko karkar di ko karkar ba ne ko nuus <laughs> nangu téléphone bi. wàcc mm-hmm. piisam delloo ko. Mm-hmm. xam nga noonu la noonu la. ma ma Mariama déggal déggale sa ba léegi mi ngi lu ne mi koy def mënu cee jot. waaw mais paasante bi ñu jox joxal ma bu booy booy benn eh, tali. Eh, eh, paasante bi. est-ce que jox ko casque bi paasante bi est-ce que lu am la. paasante far yi mbaraan nit ba nga xam ne yow mi mënatoo dem nga paas ko nga paas ko keneen. waa paasante bi lu am la. Mm-hmm. xam moo tax mu am. man dama jàpp ne ñi koy def dañu gëmul seen bopp. xamal ni ma la wax. Mm-hmm. gëmuñu seen bopp wala boog ci ci jigéen ñi gëmuñu seen bopp daal. Mm-hmm. parce que yow mun am sa copain nga génn ak moom ba ak moom jël sa xarit jox ko ko. Mm-hmm. ma am man am lu ma la nettali loolu man man mii la dal. sama benn copine. am copain yam ñuy génn ba bàyyante ñoom ñaar. copain bi di ma laaj sama numéro. joxuma ko ko. mu koy laajte di ko laajte di ba am sama numéro. woo ma. bi ma ne ma dama la soxla. bi ma ne dama la soxla. ma woo copine am bi wax ko ko. Mhm. mu ne ma xam naa daf lay doxaan mais bu la doxaanee nangul. Mhm. ma ne ko xalaat ma loolu. nangul lu tax mu bëgg mu bëgg a nangu. xëy na moom moo ko xam. dafa yor weccet xanaa. xam na xëy na dafa yor weccet. mais mhm. man gëmuma loolu. man ba ma ko xëy dama ko ne du ma ko nangu. waaw mais li comme reportage fi mu jaar. Euh, mam yi nag ndaw si nee na moom diw da koy jox cinquante mille diw jox ko cent cinquante mille keneen diw jox ko mille mais noonu dañ leen koy gars yi leen koy jox noonu rek ci merci noonu lay demee. déedéet de. xale yu góor yi mayeetuñu ci merci ni jigéen ñi di mbaraanee góor ñi noonu la ñuy mbaraanee. Hmm. te góor ñu ci bari ñoom ñoo tax jigéen ñi di leen mbaraan. Hmm. lu tax. waaw Mm-hmm. yow da ngay ñëw fekk jigéen nga doxaan ko. Mm-hmm. ne dama bëgg a génn ak yow. Mm-hmm. mu wax la lu leer ne la mënuma génn ak yow dafa am ku ma nekkal. xam nga ciy tegal. siis bi daa bëgg su ma xamoon ne keneen nekku fi. du ma ñëw. man lu kenn bëggul du ma soxlawu ma ko. mooy wax ñoom baara. xam li ma la wax. mu wax insister nga ne ko mënuma génn ak yow dafa am ku may génnal. mu ne la su ma xam leeroon ne kenn nekku fi duma ñëw. xam li ma la wax. xam nga ni soo bëggee dara ci jigéen. Eh, di nga def dara mhm. léeg-léeg mu ñëw bàyyi la weccit mhm. ñëwaat bàyyi la dara mhm. léegi su ko defee nga naan comme kii man nee naa ko bugguma moom mu dëgër bopp bàyyi ma mbaraan mais est ce que loolu mi ngi amati am na euh, ba tey de doxaan benn xale bu jigéen di ci topp gi nga ñun bi nekkee bi amee ay ay ay ay 17 ans 18 ans jàpp 20 ans di jël ci xale yi nii daan ngeen topp xale bu jigéen bi deux ans trois ans du la nopp. loolu amatul. léegi léegi xale bu jigéen bu la nangoo jox numéro téléphone mooy d' accord na moom. mi ngi noonu. moom moom koo ci laaj numéro moom mu jox la ko moom. mooy moom moom d' accord na moom. mais am na ci jigéen ñoo xam ne dañ lay ah, wax lu leer. Ah. mënu ma ko dafa am ku fi nekk lañ lay wax yow nga dëgër bopp di insister topp ko. doo ko may jàmm doo ko may salaam waaw léegi nga ni xaaral ma mbara gel bi daa ni xaaral ma mbaraat ko benn mi noonu waa mbaraan bi nu muy demee noo leen koy lale tey ji soo bëggee nit ki jox la sa fa sa fa naturel noo koy nooy tojee bopp waa ji man moom du ma mbaraan moom waaw mais système bi xam nga système bi c'est que da ngay toog fii à la place ki mbaraan waaw waaw ya xam nga nu muy demee kenn ku ci nekk da nga toog à la place de quelqu'un waaye yéen ñëpp ko xam moo tax mënu maa xam nu ñuy mbaraan yéen a ko xam loolu yàgg na yow daan nga mbaraan mais itam c'est clair que ku nekk am nga sa par exemple benn benn proche boo xamante ne daf koy def. Mhm. wala genre yooyu. ya nu muy demee. góor yi. waaw ah. góor yi. waaw. peut-être kooku li mu wax mën mën mën na nekk mais. mënoo ci dal ñaata yoon. Uh-huh. parce que parce que góor mënoo ko mënoo ko nax ñaari yoon. Mm-hmm. c'est-à-dire. su fekkee ne jox na la premier mois noonu ci zéro. Mm-hmm. attends-toi à ce que deuxième fois bi mu proposer la quelque chose d'autre. Mm-hmm. par exemple. mën nga mënoo naxandoo góor yëpp. Mm-hmm. ñoom bu ñu waxee lool peut-être ñoom dañuy nax seen bopp. Mm-hmm. mais mënoon mënoon naxandoo góor yëpp benn à la ñoom ñëpp ñëpp jox la. Mm-hmm. te bu fekkee ne mën peut-être mën nga ci dal. mais du ñaar du ñett. parce que toujours bu ñu góor yi boog bu fekkee ne yow noonu ngay dundee ñoom tey kenn ñëw nga ne ko may ma cent mille wala genre nga ñaan ko yenn somme yooyu. c'est fort probable que moom dina am lu muy peut-être day investir di xaar yow nga def. du ñaar. benn bi sax boo ko amee nga jël. <laughs> mais ma chérie doguma la mais taxaw taxaw dafa am des des fois yéen jigéen ñi ngeen daje ngaaka ah. ngeen daje ngaaka wala kuy ngaaka ngaakalu. voilà wala kuy ngaaka mais des fois ngeen daje benn nga gis benn góor mu bëgg la nga xam ne waa ji dalaa bëgg dëggantaan triché wul. Mm-hmm. benn waay bëgg la trop day am. xam nga jigéen ñi damay faral di man de toog naa mënuma am jëkkër jigéen goo fi gis mënta am jëkkër am na benn góor bu ne ci àdduna bi bu ko nopp ba dof mais bëggu ko. Mm-hmm. su doon jëkkër rek la mu dem jàpp ci kooku te far damay faral di conseiller xale yi jigéen naan leen ba ci xale yu góor yi fexeel ba góor góorgóorlu ba am jëkkër ju la bëgg. trop koo xam ne dalaa bëgg ba dof. jigéen ku ko am yaay tuye penaar mais du bëgg du ñu bëgg kooku. en général fa ñuy sonne. fa la ñuy fa ñuy souffrir fa la ñuy dem. góor mais loolu xol la taxol taxol loo loolu nag moo leen di sonal léegi góor tamit la même chose da koy dal. Hmm. Euh, jigéen gu ko bëgg souvent daf koy négliger loolu affaire nit la. Hmm. mais des fois yéen ñi ngeen gis benn góor commerçant la tailleur la ak lu mu mënti doon yéene leen lu ne lu mu liggéey ñëw versé leen ko ngeen xam ni kii da leen a bëgg yàllaa ko dogal nattu ko mu bëgg leen mais doo leen ko bëgg. suñ ko mais da ngeen di ànd ak moom di ko encaissé. Mm-hmm. est nga. da ngeen ànd ak moom di ko encaissé. Mm-hmm. yow ki nga bëgg. benn tuxkatu yàmbaa la bu ne ci koñ. Ah. non non non <laughs> day am ki ngeen di bëgg. non soo ko bëggee rek. non non tabax non non defal ndànk rek waaw xaaral ma ñëw rek. ki nga bëgg benn tuxkatu bon la bu ne ci koñ bi xëyul gontul. Mhm. loo encaissé ci waaju séeréer yi nga xam ne da laa bëgg lool. Mhm. tuxkatu bi ci koñ bi nga koy. boobu laa d'accord. Mhm. non non loolu dafa dafay am. wala ka nga bokkal classe moom nga bëgg. wala euh, benn waay boo xam ne da ngeen di si ci ci yoonu école bi la ne kooku nga bëgg mais am na benn nit boo xam ni liggéeykat la góor gu am jom la am la ak fayda liggéey ñàq jariñu rek la la nekke yàlla natt ko ci yow nga bëgg ko lool genre góor yooyu da leen di mbaraan parce que xam ngeen ni kii sama dof bi ngeen koy tudd mais est-ce que kooku dina ñëw pour pour euh, takk kooku xam nga mën na nekk ak yow ni te day ñëw pour takk mais doo leen ko bëgg mais mu fort lui il y a un am soo sëy moom sëy bu neex ngay. pour lan nga cee am xam nga lu tax parce que lu xam nga lu tax. Mm. waa ji dalaa bëgg. waaw léegi torop. Ah. soo sëy moom du gëw mën nga gaaw a am lu la metti gis nga sooy sëy sëy mbëggeel la. sëy sëy déglu mbëggeel bi yàggu ci. ah non non si si. non am na ñoo xamante ne nag yooyu mënoo leen bëgg. xool non man su la bëggul moom bëgguma la. non man moom su ma la bëggul bëgguma la. waa ju baax ji leen bëgg noonu. Eh. comprendre naa la comprendre naa la mais dafa fekk ne xool mooy bëgg gis sëy gis nga sëy sëy gis mbëggeel yooyu noonu soo leen ci demee ba am doom amaat doom amaat doom affaire mbëggeel day tego ne max lan mooy ñëw jigéen di gën a bëgg a jëkkëram yéen yéen saay boo leen yeewoo seen amour ji gën a wàññeeku ci ñun defal nag loolu la c'est que da gone li mu la xamoo ko gis nga gis nga yërmande mm-hmm. couple day dem foo xam ni day toll foo xam ni mm-hmm. du ay mbëggeel moo koy doxal ngor ak yërmande moo fay xam li nga wax mais ci góor ñi lay doon du ci jigéen ñi baan gis nga gis nga waajooju mm-hmm. nga xam ne mooy ne ci bopp koñ bi ñoom ñu koy bëgg tey bala la doon jooyee jàpp nga laaj ko lu tax nga bëgg kii. du ko xam da ngay dégg man non kii suuréeram ba ma neex. <laughs> di xam nga yooyu lañ lay wax non ni moo ma neex. affaire di ko werse. muy solo moo ma neex. <laughs> comme lii daf la jàpp moo taxoon ma jëndal la ko. bi moo ma neex. wala wala soof lañ lay wax yoo xam lañ. naan la non mooy nekk biteeru nawetaan yi. waaw ASC bi ci koñ bi <laughs> mooy dugal bii. ASC bi ci koñ bi. mooy góol bi ñoom ñi non non xale parce que loolu. li ngeen wax ni yëpp xale ah, yow su ay bitoor bi ci koñ bi moo tax. yëpp ay biir nga. waaw moo tax ma ne la affaire xale ngeen di wax loolu affaire xale la da ngay gis xale bu jigéen boo xam ne tey jii. da ngay gis waa kilifa. mais ci xale la affaire yi commencé loolu am xoolal. dafa ndànk rek da ngay gis hmm? kilifa bëgg ko kilifa kilifa mooy nga gis nit ku responsable. Hmm. di xëy di gont nekk commerçant bu mag ci marché Sandaga bi wala mu nekk ci entreprise bu mag di liggéey nekk kilifa xam nga nekk mën nga nekk xale sax nekk kilifa. Hmm. mu nekk un jeune de de de de de de quarante ans nekk ci benn entre di liggéey liggéey ñu xam ni kii ko am jom la. yor ndeyam yor baayam am këram yor yor ay béem xam nga xam ni waa jii mën na laa takk mën na laa yor jigéen day wut jëkkër ju ko mën a yor. voilà. waaw dégg nga baax le ma mais nag dafa ndànk du ñu bëgg kooku. kii nekk ci koñ bi di football nawetaan nga xam ne nawetaan ba nawetaan lay liggéey waxuma ni boo yooyu baaxuñu de ay boo yu baax lañ mais ay xale lañu mais ñoom ci fan dañuy fan parce que waa ji buteur la waa ji mooy loolu bañ a nekk loolu ñëwal ci loolu loolu get feeling la affaire lan la gis nga conséquence mbaraan mooy mhm. da ngay dem ba da ngay tàmm poche yu bëri voilà doo mun a am satisfaction am naa copine boo xamante ne comme li nga expliqué nii un gars responsable bëgg ko lu nekk la koy defal lu nekk mhm. lu nekk. Mhm. la ko daan parce que actuellement d' après li ma wax bi voilà bàyyi na lu la ko mhm. mu mhm. tabaski pareil te du ko defaral mom rek de. da ko koy defaral moom ay magam. ay rakam famille yom ñëpp. engagé quoi carrément. waaj daf ko bëgg. bëgg ko bëgg ko bëgg ko vraiment. Uh-huh. mais moom. soo waxee da affaire de dama ko dama la bëgg affaire mu kii dafa ñaaw. Mhm. xale yu boo yi nekk fii. man may kii kii moom déedéet. waaw lang ñan la ñan la ko langal. moom daal xale bu góor bi na nga yor oto. Mhm. ah wala nga mën sañsee xaw a siiw tuuti ni ñi xam la. Mhm. moom daal na ngeen di ànd di taxawaalu. genre yooyu la bëgg genre yooyu lay bëgg moom genre yooyu lay bëgg. te le gars il est carrément engagé mais moom nee na bëggul. man mii wax naa ku nekk wax na. ku mais xale. xale sama morom la ñoo maase. mais kooku ñoo maase. xam nga déjà. non non da ko nobul non même bu dee noboo ko. gis nga nit da ngay réaliste en fait am na yenn moment yoo xamante ne boo ci tollee tu sais carrément que yow war nga mën a dugg si si si sëy parce que say morom ñooy sëy. yenn xale yu ndaw yéen xale yi xam ngeen loolu xam ngeen ni nit. bu tolloo fenn dafa am mais bien sûr mais bien sûr. gis nga ne que le gars bëgg na la. Mm-hmm. parce que fini, nii ku nekk xam ne miinante am. Mhm. peut-être di nga yag ak nit ki. Ah. c'est vrai que di nga am lu la neex ci mom c'est mhm. clair. Mhm. di nga am au moins ben affaire bu la neex ci mom mais au fur et à mesure ngeen di nekk di nga dem ba miin ko. minel bobu peut-être après moy indi nga bëgg ko. am yërmande ci mom etc etc mais ki bëgg na la pour man jigen bu nek da nga wara xol goor bi la bëgg. parce que bu fekkee bëgg na la. dina mën a supporter say caprice par exemple. loolu laa lu bëgg dina la dina la nangul yu bëri. Mhm. yow yow nag du mhm. moment moom mi ngi lay nangul loolu yëpp. Mhm. yow da ngay dem ba da ngay am ci moom yërmande parce que tu te dis kii mi ngi sonn ndax man lu ma bëgg da koy def. mi ngi nangu samay caprice et cetera et cetera. pourquoi pas nga nekk kooku. mais yow ngay xool koo xam ne yaa ko bëgg déjà yaa ciy sonn topp ci di daw mu lay jooyloo des fois nga jàpp ne que ngi lay. voilà di la dóor ci mbedd bi di la toroxal di la toroxal. mais jigéen dafa am xale yoo xam ne nag yu bon yooyu lañ bëgg. yooyu lañ bëgg xam nga ban jigéen xam nga ban jigéen moo jar a bëgg gis nga jigéen ah bu fekkee ne gis nga góor boo xamante ne bëgg na la. Mm-hmm. bëgg na sa waa famille respecté na la mu ngi accepté ñëw sa biir famille di ñëwxu ak ñoom nga xam ne kii c'est un responsable da ko war a jàpp. Mm-hmm. pour man mbaraan bii nii amul benn sens. Mm-hmm. parce que yow tey kii jox la lii tey suba kii kii suba kii lee suba kii lee nit ñi dofuñu. yow nga ñëw nga ne nga ne te te copine wala sa yaay wala sa dara kii de dafa maa may lee nii rek nii nii nii chaque jour mu lay jox même somme bi chaque jour chaque jour chaque jour. Mhm. loolu xel sax nangu ko. Mhm. mais ma chérie nag ci foofu bu fekkee ne loolu am na c'est parce que le gars il est engagé. waa léegi waa léegi man nga may ma doguma la yàlla bu la gis nga ci foofu noonu. Mhm. sànq ba léegi maa ngi ci bëgg euh, tontu. gis nga lu li ngeen wax nii am na de am na ñoo xamante ne du kenn du lekk seen ñaar ci noonu. mais kayitu kër. kayitu kër nit may ni ko nit te xamul lu mu oddoo. dëgg la waaw. Ah parce que loolu tam bàyyi leen ci xel. dëgg la parce que si li ko nit ki di wan la parce que yow bu fekkee ne nit ki dafa ñëw pour nekk ak yow. Mhm. nga tiit par exemple. di koy ne may ma lii may bu xamee ne da nga tiit mais dafay dafay dund ak yow li ngay dund ak moom. Mhm. mais bu fekkee yow dund nga ak moom wan ko ne man ni nga engagé pour nekk ak noonu laay def pareil nit bu la bëggee lu mu am yéene la ko mais d'accord nit mën nañoo bëgg la nga won ko leneen mu dund ak yow leneen dem yoonam mm-hmm. nit ki uude lu la gisee rek la lay ëwalee su fekkee da nga ko won ñàkk fayda lu ñàkk fayda lay dund ak yow dem mm-hmm. xale jigéen ñi ñoo war a def seen bopp yu ndox te xam lu ñu bëgg mm-hmm. xam seen valeur instant bi valeur jigéen amatu ko parce que samay morom ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo fiy nekk nekk ci dëkk bi lu nekk ñu def ko di dugg di génn. Mhm. ñàkk fayda. Mhm. ku ñëw ànd ak ñoom ba pare li ci gën a bon ah jarbaat bi waaye tàcc leen sunu jarbaat bi a dañ lay waxtaanee. Mhm. Ah. di la paasante. Ah. yow tamit dof bi nga foog ba pare di la jay. man loolu moom ci gën a. énervé mais c'est pertement rek après après ñooy perte. mais balaa ngay réaliser loolu. balaa ngay réaliser loolu fekk c'est trop tard. parce peut-être moment bi ngay nekk nii tu te dis que dara jomb la. Mm-hmm. mel nga ni nga war a mel jigéen nga voilà. Mm-hmm. mais le temps temps bi day passé du la xaar. Mm-hmm. temps bi jigéen dafa gaaw voilà. fii ngay nekk di foo ñu ànd ak yow foo. bu takk jotee ñu ne la fi. ñu wëcc la fi dem xool xale yi ndaw nga nga tardé déjà yow bu fekkee ne yow yàq nga sa bopp ba pare qu'est-ce que tu vas yaay nekk ñii di déguisé wu rek. di wëndeelu pare nekk pare nekk mais lay jay sa moroomi yaay ñoo lay jay de. ñoo lay jay. naan la diw mais dafa soxore yaay da ngay foog ne yaa ci nekk nga foog ne am solo ci loolu mhm. Mhm. parce que tey boo mhm. nekkee sa parent mu am yenn yu mu dugal ci yow yow tey dara du fees sa bët par exemple par man sama bopp laa koy laa koy jëlee tagguma sama bopp peut-être sama yaay laa nekkal et tout yarul jigéen la peut-être mais man am na yoo xamante ne jombale naa ko sama bopp man mooy ñàkk mooy ñàkk gëm sa bopp parce que am na yoo xamante ne man je me dis bu fekkee ne nekk naa ak kii tey ñu ñu ñu ñu wéet def lu ñu neex et tout xaw ma ndax moo may takk déwén xaw ma ndax moo may keneen mën na ma takk keneen mën na ma takk keneen mën na dëkk bi xat na xat boo xamante ne ñëpp xamante. Mm. léegi yow ngeen wéet def lu leen neex il te promet peut-être que du la du ko wax kenn soo génnee à la minute mu nettali ko yow àdduna di dox tey di dox di dox di dox di dox kan moo la wax ki la takk du nekk mbokam wala ku mu xam. wala et cetera et cetera tey mën nga dem ba am sa doom moom mu am doom seeni doom bëggante est ce que moom sa doom doomam bu waree takk sa doom dina ko nangu wala dina dina respecté non fofu sax sori na fofu do da boo ja am xay bo digënté bi jeex boo jàkkaarloo ak mom lan nga waaw voilà lan nga wara wax sa bop bu boba da ngay ak mom seug wa sëgg bobu nak gor bu nek war na ko bañ comme li nga wax sank rek lu ci bari ñun jigéen ñi ñoy ñoy ñoy subir conséquences yi c'est ça parce que imagine nga am sa copain ji li to ci jigéen yi mhm. lay lay nga jógee sa kër dem di fanaani këram mhm. tak jobar jot mu ne la fi ñuk ne yak bu nakar dem xol ka tok ca poju ndaya mu tak ko mhm. yaay perte yow bu fekkente ne am nga xel lool war na yé ok man gis na ko xamanteni dafa am copain di dem di fanani ci moom ba takku jote daf koo bàyyi dem takk keneen. Ah, waaw xam nga kooku bu doon nit la dina yeew wala mu am xel. mais defu ko. temps yi moom ñu baree ngi. fanaan ba fi yow nii. Mhm. copain bi moom bi moom mooy ñëw di fanaan si. di fanaan si fan. copain bi mooy fanaan si ci biir néegam. xanaa moom doo nga dëkk. moom dafa am ñu dëkk loon uh-huh. mais dafa fexe ba génne ñëpp. Uh-huh. dëkk moom kese. Uh-huh. te dèjà am na doom. moom doomam loolu bu ko gisee wala ñu wax ko ko dina nekk way boo xam ne du fay ba ci ay sëtam. Mhm, effectivement parce que jigéen danga naan lii jomb naa ko def wala rus naa. Mhm. nit dégg ne man maa def lii. mais ci kaw nag nga am jom. mais am na ñoo xam ne dara safu leen. Mhm. waaw boo boo xasee am njaboot dafa am nu bari noo xamante ne waratu monsieur Ndaw jigéen ñi wax nañu nag waaw looy euh, soo gisee booba léegi vraiment c'est fort soo gisee booba léegi ñu noppi thème boo gis dafay am commencement. Hmm. am critique am solution. tey ñu waral thème bi. Hmm. dañoo génne solution bi. Hmm. moo tax ñun ñi góor teg rek moo ñu war. léegi dama bëggoon ah. soo ma ko mayee ñu dugal auditeurs yi. ayca mën na nekk. fooy mujjee fooy mujjee moom. fooy mujjee moom fooy mujjee. lu jara bàyyi xel la. góor war koo bàyyi xel jigéen war koo bàyyi xel fooy mujjee. yàlla na ñu yàlla may mujj gu rafet fooy mujjee. maire boo fi gis jànq la woon faa boo fi gis booy la woon kon ku ci yàq sa tuq sa ngalam di nga riiti riiti mu tëla 88 628 14 14 allo allo. allo Ban maa ngi jaar. waa ñu ngi jaar kookan la. waaw benn waaye bu sopp rajo bi rek di déglu tout le temps. mbaa kenn mbaraanu la. bon. waxtaan bi neex na nag. neex na trop maa ngi waaw. mais sa jabaat bi daal macha daal. waaye sama jarbaat bi kay man tey man je suis vraiment. fier waaw naa ni daal moom moo résumé ne thème ah, moo ko ah, résumé. Ah, ah oui ah oui ah oui. Uh-huh. ko keneen ki nag wax ko bu mu ko dagg parce que moom dafa mel dañ ko xaw a laal ah. <laughs> kan ci la. mami mami. waaw waaw dafa mel ni ko xaw a parce que mu koy bëgg dagg moom mi ngi laal góom bi la laal dëgg. non c'est que génération yi ñoo bokkul. waaw mais lépp ngor ngor ngor amul génération. Mhm. ngor. Mhm. ngor amul génération te lépp ngor moo lal lépp. Mhm. nit moom bu ñàkkee ngor rek ñàkk na lépp bu amee ngor am na ko. yàgg naa ci émission nag euh, dama daan déglu rek mais tay moom sama yaram dafa tàng man il faut moo de. ah oui ah oui. waaw parce que te ni ngeen di dawal macha allah neex na te ni ngi jàngale quoi. te moom lépp looy gis njëriñ da nga ci war a di insister quoi pour am ci njëriñ. waaw rafet naa ñëpp baara sa monsieur Ndaw et cetera et cetera quoi bëgguma lim. jaajëf jaajëf. mais daal ji xale yi daal war nañu euh, am ngor quoi vraiment. jaajëf. parce que man dama jàpp ni daal lépp sabar bu tas la rek. Mm-hmm. sabar bu tas moom fu nekk da ngay jaar gauche jaar droite. Mm-hmm. te war nañ jël soit xel yi euh, dawal ngor. Mm-hmm. sérieux quoi mais nit soo ko bëggul bu lekk dërëmam. waaw mm-hmm. ah, loolu mooy ngor boo bëggul nit bu lekk dërëmam. lekk dë mais mais dañ lay duñ la bëgg ba pare di la di di la use. waaw dañ lay ruiner. waaw dañ lay ruiner de. waaw ruiner la ba nga nekk à terre ñu bëgg a ànd ak keneen mais nekk góor ñi yow. daanaka mm-hmm. am na part maris moom amul ay mbaraankat moom maris moom amu fa moom. ah waaw an maris ah, moom ay jigéen yu kii fa dëkk moom maris moom vraiment. waaw oh, moom xam nga affaire bi góom la te góom bi c'est social. dama ni maris moom amul ay mbaraankat moom aan maris moom. bon mun ma mun ma ko miin mun ma ko miin mun ma ko miin <laughs> waaw yaakaar naa daal c'est partout dans le Sénégal mais daal na nit ñi gore quoi bugguma guddal nag bugguma guddal may gars yi. ci jaajëf jaajëf ma ne maris de su doon mbaraan de su doon ministère ma ne directeur de cabinet moom maris la dëkk <laughs> nga ne la ah. bala ñuy luyee ci appartement yi xale yu jigéen ñi. 88 628 14 14. di nuyu bu baax a baax allo salaamaaleykum. waaw ah. sëñ bi maa ngi leen ziar bu baax. waaw ñu ngi lay ziar. waaw Ndoye Bane yaa Baara de. ñu ngi lay bégg bu baax waay. waaw oh daa dagg nag 88 628. di nuyu waa benn waa ñaari tali waa Grand Dakar foofu ay mbaraankat amu fa allo. <laughs> allo. Ndoye Bane. waaw kooku. waaye ki Pablo Touba. Pablo euh, Touba de moom moom foofu mbaraan moomu fa moom. ah doy na waat rek bi de. foofu moom jigéen ñi xaside yi rek. foofu moom xaside yi rek. waaye fépp lay ndewee suuse de xanaa a yaraat xale yi rek. déedéet. mbaraan mi. eggul ah. eggul mbàkke de. ah. moom daal du ñu wax waaye daal nañu yaraat xale yi daal. non mbaraan mi marché occas rek la yem ca marché occas ba fa la yem. yàlla <laughs> ah, na nu yàlla suturaal daal. amiin waaye yow am nga soxna hmm? ah waaw sama sama soxnaa yi nii nag. ah mbaa la rek. Ah? waxal lu leer de. ah de. <laughs> baax na baax na xanaa ab commerçant nga. ah non non kii réparateur machine la Touba. ah waaw yamal ci réparer rek de. ah. waaw ah, dégg nga. mais <laughs> ñu lay siyaare ñu ngi teewlu émission bu baax. jaajëf waay jaajëf. waaw te ñu te te ñu dimbalante rek ni ñuy dimbalante rek bañ ci def daal rokk mi rokk. jaajëf merci beaucoup 88 628 14 14 allo allo. allo waaw Ndoye. waaw na ngeen def waay. siyaar nañ rajo bi wàññi sa rajo bi. waaw wàññi rajo bi waaw. waaw. wàññil wàññil rajo bi wàññil rajo bi allo. allo rajo bi waaw. waaw man man maa ngi doog a maa leen di siyaar de yéen ñi fa foo dëkk yow. non damay leb tur bi. waaw mbaa mbaa mbaraanuñ la am nga soxna non man man moom mënuñu moom mbaraan parce que maa ngi ñoo ma yëpp. déet nga caat moomu noonu di wax noonu sa jarbaat boobu. waaw. kooku li muy wax lu nekk lay wax. waaye xam nga ñi ci des moom xam naa dañuy laal seen i moo tax ñaar ñee. maa la ko wax. <laughs> kon ay mbaraankat lañ la lay nirool. <laughs> ma gis nga dëkk bi li fi am. ah kenn ki Grand Dakar la dëkk de xaw ma ma ma dëkk bi li ko nettali. ah xale yu góor yu dofuñu de. ah tamit dofuñu booy yi dañuy wax lu yomb rek. yow lan lan la laaj. non man cinquante mille lañ ma laajoon. cinquante mille. waaw deux mille laa ko jox. <laughs> bëri na ñetti yoon ah. ah. na ñetti yoon de. bëri ñetti yoon. ah waaw. nga jox ko 2000 yow itam da ngay waaru de. ah yow laa bëgg. di la gëm loo affaire bu ñëwee sa nekk sa téléphone téléphone bi du coupé. waaw. waaw ku ne mu woo mu Moodu Paate Demba. waaw. ah sa waay da ngay xam ne yow ci ay naxe mbaay nga nekk rek. waaw nga noppi rek mel ni ku xamul. ah waaw da ngay noppi rek di def li liggéey nga bàyyi ñu liggéey liggéey liggéey xam nga ñoom dañ lay waaxu ci esprit. xam nga nga dox nga doxal nga doxal football muuma rek. waaw voilà football muuma ko xam ñoom dañ lay dawal esprit dañ lay jéem a wàññi ci ay mm, xel ak ay bët ak ay waxit. gone yi xamuñu football muuma. waaw dañ lay jéem a wàññi ci xel. Mm-hmm. la wàññi ci ay bët boo waxee sax ne la ñu xaw la arab da ngay noppi rek doo wax. Mm-hmm. Mm-hmm. ngay football sa football ba pare. waaw football moom amul wax. ki la bëgg kilo la bëgg gis la bëgg boo ko gisee da koy xam. boo ko nee jàkk da nga xam ne kii da la bëgg. te jigéen sax du bëgg en généralement góor mooy bëgg jigéen mhm. dafa am lu muy xool ci góor rek mu mhm. jigéen da ngay jéem a xool góor bu la mën a yor mhm. mais boo yi sol pain wak boo yi watu ay dabalaaw ak xam nga topp ci fecckat yeeg tëggkatu sabar yeeg après yow loolu da ngay xam ni sax doo dem léegi boo demee bu mënatoo am dara sacrifier nga sa life après nak ci ngay tourner nak léegi ngay mbaran parce que nga xamni ni am li nga bëgg. Mhm. kon daal yow da nga dem ba xamni mom euh, du du du du du do nga néewoo fa. koku dem na euh, mami de nga lim wax 2000 la ko jox parce que dem na ba xamni ni da ko bokk ak gaay ndoy hmm sank da ngeen dag sama wax lolu moo tax wax dafa bu nit ki di wax. Mhm. ngeen baye ko mu terminer da ci am solo. Mhm. ndax fay ki ci. day jaxata xel xaru ñu jël ki allo alaykum allo eh, ndoy ban mon ami. wa nu mu demee ça va. ah man la boy bi USA. waaw ya, ah, USA naka mu. ah ma ngi de nyala ya, naa yo dégg. waaw na yow mba kenn États-Unis amul ay kat mbaran fii mbaran yi lay jay ci whatsapp bi lañu mbarané ah Sénégal lañu tok di la mbaraan. waaw ah, mais mbaraan tamit nit ki mo koy nangou rek. waaw. bu góor -hmm. hmm, hmm. allo mm-hmm. allo. oui allo. dafay dafay dagg allo. waaw maa lay dégg. waaw résumé rapidement waaw. nga ni. waaw ma ne ku góor ki moo koy nangu rek. Mm-hmm. waaw parce que nit moom am na loo xam ne bu la waree lu bëri da koy moytu. Mm-hmm. waaw parce que nit aussi da ñëw fii yenn saa lu nekk dinañ la ñëwee ci yow mais yaay am xel rek. nga xam li la tax a jóg. Mhm. mais bu fekkee da nga yomb nga xam ne classe ñoom defar ñoom ñooñ leen toog defar ba mu baax bu ñu bu ñu la rek. Mhm. loolu liggéey nga yónnee leen ko. Mhm. di nga yéex a si wax. waaw yéen ñi nekk bitim réew de ñu ngi yéen ñi nekk bitim réew ñu ngi leen di xaw a rey ku fi am gel yaakaar ni sa gel bi ci yow rek la am yaa mi da ngay waaroon de. gaa yaa ngi fi tàng jër. ndooy waaw. ndooy am na looy wax lu am solo la. muy alalu golo ca ba de waaw waaw. waaw toll fee lu ne nga yónnee dama indi sama jabar mu nekk sama wet waaw moo gën de ndaxte xam nga Sénégal tamit lu fa nekk neexul ndax tamit nekk fii nga bëgganteeg nit mu mel mu ñu ko neex mhm. te classe ñoom Saliou boobu ñu nekk ci wetam ñoom Moussa Ndaw naan ko sa gaayan bi di ko waaw di ko gëmloo yenn wala l'africain sa mhm. baara voilà baara l'africain moo nami moom waaw waaw nga xam ne affaire bi plus ak moyen la bu yàggee rek tëf lay def. ah yow yàgg nga maa déglu. ah Ndoye Bal yàgg naa la tëf lay def tëf lay si <laughs> dara. <laughs> Ah, waaw wax nga dëgg de. maa ngi maa ngi remercier Baara moomu. waajëf waay jaajëf man man seen élève laa de. Ah, man seen élève laa bu baax. xam nañ loolu xam nañ loolu. Ah, après maa ngi remercier monsieur Ndaw aussi. nag moo waat ma amaat numéro bi incha allah. waaw incha allah incha allah ok merci nga nuyu ma Boubacar Diallo ak kii euh, Mouhamed Ndiaye. ok d' accord maa ngi merci beaucoup 88 628 14 14. di nuyu Ousmane Dramé bu baax a baax sunu waa ji xam naa ni. na ma ñetti dégg naa ñetti gétt xar la yor di jaay gétt gu ne am na deux cent cinquante xar 88 628 14 14 xam naa ni naa wuy abal baara mu jaayal la. Ah, <laughs> ma jox commission xar rek. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. ci loo ne. sant yàlla ak muñ ak matandiku rek de. jaajëf waay jaajëf jaajëf. jaajëf baan si nañ la bu baax a baax bu baax a baax waaw. thème wax dëgg fa am na solo trop trop sax. Mhm, yow am nga soxna non non aw ma soxna de yàlla dénk guma ko mbara mbaraana guñ la mbaraan ah yaakaar naa ni duñ ma ko def de ah lu ah jang jël leçon jang jàng leçon si xale yi jigéen rek ah maa la wax lii dañ lay gasal pax nga tëb waaye dañ may gasal pax ma tëb dama am sama benn jarbaat boo xam ne si lay jàngee maa la wax lii de jarbaat bu jigéen waaw wow ah nu lu tax nu mu la koy moom moom da moom daal daa mel ni daal dafa dajale fukki far ak juróom daal waaye ku ñëw daal day yaakaar nga yaakaar ni kii rek la bëgg fekk ni yow mooy loolu. Ah. te ku ñëw nag te ku ñëw rek moon la ni yow mii daal yow ko sa yaa nekk boo demee génnaat tuuti nga toog keneen ñëwaat moon ni yow tamit yow ko sa yaa fi nekk. yow kon fekk ni yow daal la mu rangale daal beneen affaire kon mi ngi def loolu ngay teg sa bët. ma ma ma siy teg sama mbët kay ma ne kon xale jigéen ñi kon nii lañ koy dundee nii muy def ñii tamit man tamit bu ma defee bu ma defee tamit loolu lañ may loolu lañ may digal man tamit. bilaay <laughs> wax nga dëgg. maa la wax lii de moo moo taxit laa wax ku ma jox de joxuma la dara dara benn xool joxuma la ko de. maa la wax lii de na Ndakaaru Njaay gii de maa ne la dama ci nekk di di di fortaat di ci fortaat di doxoon di. ah di génnantu di génnantu nii rek boo de heure takk soxna jëlee na nga dem xool ko doog ci ku nekk si toog si boo jëndee wala nga dem sa village ba. waaw dem xool ko fa takk kon. ok d' accord ah, kon daal. kon daal kon daal gis nga gis nga gis nga yéen ñi jógee dëkk ba da ngeen xam seen dafa am leen dëkk ba ñu leen di xaar. gone yi yi muy sax la gi ne leen gone yi yi leen dara de. Hmm. asalaamaaleykum waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi jëloo ziar. jaajëf waay. alhamdulilah Ndoye. Mhm. man de xam yi maa ngi fuuti maa ngi déglu rek ma ree. Ah, déet waay. waa mu wóor yàlla. Mhm. am naa damaa créé Dakar problème bu rëy ma ñëw dem Fouta dem Tabaski. kan moo créé problème. man nii. loo def. bàyyi fa son benn taay rek benn xale bu jigéen. da ngaa. tailleur tailleur bi ak xale bu jigéen bi laa bàyyi foofu. ah. <laughs> noo leen fa bàyyee noo noo leen fa bàyyee. waaye dama dama kaa yóbbu ci tailleur bi jël mesure bi jasinaire bi tailleur bi yëpp. yaa jënd jasinaire bi. waaw non sama sama jabar laa ko jëndaloon. ma war ko yóbbu Fuuta. waaw. waaw gel bi gis ko ne waaw lii moom ma ne ko yow yaa ko moom de tabaski bii ngay jël mu ne bàyyi li nga ma ne ko waaw waaw. waaw ma ko ma na dal yi ak saag xaaral ba lënd rek. waaw. waaw barke dem ma yóbbu ko ci tailleur bi natt ko naes ni say teeru matte ma jël oto dem fekk sa soxna daa tolloog moom waaw waaw léegi mu jël mesure bi après su dem nga récupérer sa tissu yóbbu waaw yow ma yóbbu tissu bi ay tissu rek tailleur bi woo muy ma ne ko ne ko maa ngi yoon fuus <laughs> keneen ki keneen ki woo mu ne yow foo nekk ma ne ko je suis en voyage ah. parce que elle se croit plus intelligente quoi c'est ça en réalité quoi ah waaw da ngay jógee Fouta wala nga jógee Kaolack wala nga jógee quelque part nga ñëw Dakar jaay sa bourse jaay sa doole. ñu jaay voilà ñu ñëw wala ñu ñëw ne la ko voilà man je t'aime dugul fii génne ne fii wala ñu dem ci ma peine ne de la bëgg ñu dem ci ma dem de la bëgg. Mm. on peut pas tromper tout le monde ya ndey baal. waaw waaw ah moy xale ju gën waxon sax mu ne ki jox ma 50000 mille keneen gi jox ma 50000 mille keneen jox ma cinquante et puis ku ne di ci am dara c'est pas vrai. ah lool loolu ndoy mënoon na kay tamit. lool kay jaaxal na ma de. ah nous sommes au sixième siècle yow du doyen tamit vraiment vraiment ah. ah mais ah. nag maintenant il faut ñoom desuñu def attention. Mhm. nga xam ne vraiment léegi góor yi yowtu ils sont mhm. parce que yow xam nga rien ne se donne comme ça hasardement la mënul nekk yow xam nga Sénégal bi mu dëkk bi nu mu méttee xaalis yow nit jox la cinquante mille mu dem nii dans la ah doy na xanaa kooku xanaa kooku maama moo ko nampal léegi kenn nampatul loolu doy. cinquante mille mu de waaw loo loolu la mami d'accordul mami <laughs> moom d'accordul ci yooyu. nee na <laughs> jigéen jigéen sooy ànd ak moom. war nga mën a def ci mm-hmm. moom lu ëpp cinquante mille. Mm-hmm. ah nee na. su ko jëree. waaw est-ce que mu jigéen sooy ànd ak moom da nga ko war a defal. su fekkee su fekkee da nga am benn projet de mariage alors consort d'accord. waaw mais c'est comme ça voilà voilà de bon tu passes je passe rek loolu je pense pas on pense pas man de personnellement dama ko def voilà dama ko. tu passes je passe affaire yooyu loolu. loolu moom doxul waaw ah nous sommes nous sommes xanaa dégg nga nous sommes dans le monde donner et recevoir da ngay donner ma donner tu donnes pas je donne pas. xam nga xam nga. pël bi pël bi waaye sama pat instant bi xar tabaski moo gën a jafe sax xale jigéen yi. waay nga ni ah, ah, ah, moo gën a jafe jigéen yi. dëgg la parce que parce que tey xar Dakar soo deful cent mille wala cent cinquante trois cent mille doo xam xar. Mm-hmm. mais jigéen yi cinq mille dix nga am mais donc eh, tey xar tabaski ñoo gën a ñor gën a valeur. <laughs> <laughs> ok doy vraiment vraiment vraiment vous êtes sans vous de midi. Mhm. c'est intéressant. Hein. merci beaucoup vraiment vraiment yéen vous vraiment beaucoup de choses Moi, vraiment gars yi war leen jàppale ah a ça la réalité parce que lii mooy Sénégal quoi. vraiment on a besoin des gens comme vous ñu xam ne ils sont pour sont des sauveurs quoi voilà des policiers de la République. on vous appelle des de la République. vraiment jaajëf ndey kontaan na ci yow bu baax a baax mosuma woo rajo nag. ma première fois bii sama jabar sax moom mu porté à bi. ok jaajëf merci voilà c'est intéressant kontaan na ci mais nag xale Dakar nag bon on va revenir on va continuer le combat. Mmh, d'accord waaw <laughs> mais soo ñibbisee loo koy wax. dem na na eh, ñuy nuyu Khady Mbaye benn mbaraankat la bu dëkk fële ca Tëngéej Khady Mbaye Khady Mbaye Khady mbay Khady mbaraankat bu mag la moom moom yu njëkk yi la moom yu njëkk yaa njëkk njëkk Binta Mbaye laa waaw Binta Binta eh, gis nga gis nga gis nga ma mami bi ma ne ma yàgg naa ko fa expliquer bi ma bi ma nekkee gardien di fay ko trente mille cinq cent Moussa Ndaw moo tax waaji naan doy baan gardien la woon man xanaa du la déglu <laughs> dégg nga bi ma bi ma bi ma bi ma kiyee am ndaw yàgg na booboo xam nga tabaski jub si rek ndaw si ni ma jox joxum ma léttu ji man ko ñaata ngay fay ko ci léttu yi mun ma quinze mille te trente mille ngay fay te man trente mille laay fay ko mami mami c'est que yéen loolu tamit dafa doy waar. non taxaw leen yéen bu leen kii sama sama wax. waa léegi déglu leen waa léegi ñëpp yow la ñuy déglu. waa déglu leen ma nag attentivement. mais nag il faut ñu lay poser question. waa mais gis nga ci poser question yooyu. waaw si laay cangee nag bàyyi li ma doon wax tontu fii mu kii xam nga benn pour muy clair man benn duma duma moromu mbaraan duma moromu non faut pas personnaliser non, le non, débat personnal... dañuy wax dañuy wax ouais. voilà te pourtant fofu la jëm duma duma du fofu la jëm mais il faut que tu me ma ça veut dire ah. de bo len bàyyi woon rek sama wax eggoon ouais. kon ah, ok demal kon li yëpp du ci xam nga mbaraan duma ko favoriser parce que mbaraan nee naa leen mhm. prostitution déguisée bi ki wax sànq mhm. loolu mooy mbaraan mhm. lolou nit ku baax du ko du ko def du ko favoriser nit ku baax du ànd ci loolu. Mm-hmm. c'est pas possible. loolu ñu koy kii loolu waruñu sax ñun toog fii ci rajo àdduna yëpp di ñu déglu ñun ñuy favoriser loolu. Mm-hmm. non non. Mm-hmm. parce que bu ñu toogee fii yaakaar naa wax luy. kii nit ñi lu war a jariñ nit ñi léegi. waaw léegi. baara ngi génn ak nogoy jongo man ko ma kuy jongo sax léegi baara bëgg na Nogoy Jong Nogoy Jong nee na bëgg na Baara est-ce que force la weer wu dee wala événement bu xew Baara daa war a jëndal Nogoy Jong ay dàll ak yére ki greffage. Ndoye xanaa déggoo sànq li ma la wax laaj la rek. waa xanaa déggoo sànq li ma la wax. la du force. waaw du force. du force mais su ko deful. tam euh, taxawal ma wax la sax bi gën a dee. Mhm. man benn. Mhm. damaa contre sax jigéen buy ñaan góor. Mhm. mën nga ko bañ a ñaan. man nga am na ñoo xam ñu ñaan mais nit ñi dañ jàpp ni yoon la parce que am na xale bu jigéen mu wax ni ma 20 ans la am ay parents dañ ni ko dégager nañ say responsabilité yow magum jëm nga gérer sa bopp salaamun xaw ba tax na ndaw xale bu jigéen bi day wër di mbaraan lépp da ko mbaraan te papa ak yaayam ñëpp ñoo ko ci pousse ci loolu léegi nag tay jii baara su defulun mu nogoy jong lim ko wara defal ci ci ci ci ci ci tabaski gi nogoy jong day daal di bàyyi baara dem ci ndoy baan pour mën a kal 31 décembre Ndoye Bane war ko mën a defal. xam nga loolu yëpp lan la. lu tax mu se Ndaw wax na ko sànq gis nga loolu yëpp lan la. Mhm. ñooñu dunduñu mbëggeel. Mhm. lu ñuy dund noonu. non non dunduñu mbëggeel Ndoye boo nee kii laa bëgg. Mhm. ki nga bëgg. yow lu mu la defal. bëgg nga ko. lu mu la defalul bëgg nga ko. bëgg nga ko ba pare bëgg amour moo nekk loo xamante ne kenn mënu ko expliquer. nit ki boo ko bëggee mu defal la mu bañ la defal au contraire yow mën nga am sax moom mu nekk ci difficulté mu nekk ci situation yow nga tane ko nga réglé ko ça ne veut pas dire que ni danga ñàkk fayda wala dara. Hmm. mais yéen ñaar yéen a ko séq séq ngeen ko. Hmm. mën na nekk ci situation mën naa nekk ci situation nga réglé ma ko nga nekk ci situation ma réglé la. voilà léegi yow su may ànd ak yow xam nga ni maa ngi liggéey yor naa ko. mën naa ko. waaw tabaski jot defaluma la dara. korite jot defaluma la dara. 31 jot defaluma la dara. événement yi ñëw jot ba sonn un événement yi xew yëpp defuñu ma la dara te nga xam ni mën mën naa ko nooy def. dinaa la jaaxal nag ndoy dinaa la bett. non non waa taxawal question la rek waa question la dama lay tontu. xam mm. naa ci réponse bi dinaa la tontu. Mm. su fekkente ne xam naa ne ndooy mii bëgg na ma. Mm-hmm. bëgg na ma dëggantaan bëgg na ma. Mm-hmm. foweewu ma bëgg na ma. Mm-hmm. bu ma ko defalul. juma ak moom ñooy nekk feet boobu yëpp. Mm, eh, eh, mën ngeen a bañ a nekk di. no bu fekkente ne ñooy nekk ak bu ñu nekkul yëpp bu ñu nekkul ça veut dire que ne dafa am soxna. moo tax mais am na mbëggeel ci man mbëggeel boo xam ne boo amoon possibilité ñu nekk ñun ñaax dañuy nekk. Mhm. waaw mais bu fekkee nekkuñu rek sa parce que munuñu nekk dafa am soxna. munuñu mhm. nekk. Mhm. mais amul problème bu ñu. mais su fekkee célibataire la amul euh, amul soxna. kaay nag xoola bu ñu naxante nag. dëgg bu jotee dañ koy wax. boo ne ma na ñëpp a loolu mais dëgg bu jotee dañ koy wax bu fekkente ne célibataire nga. Mhm. nga ni bëgg nga ma. Mhm. mën nga ko te mhm. nga ni bëgg nga ko. maak yow ñu bëgg nga ko. bëgg nga ma looy soo amee. dag may defal. waaw pour la yow sa ni nga koy waxee dafa mel ni fors la. non non mais ndooy ndooy taxawal ndooy dañuy waxtaan waxtaan dëgg. léegi nag tey jii. tey jii yow yaa fii dara du fi force. de ah, tey jii baara mi célibataire la mi ngi fayee ko am na salaire feet jot. daf la war a defal. Ndoy. Ndoy may ma may ma may ma may ma may ma may baara su ma defalul. waaw moom moom problème am la. bu mu teree keneen defal la. non non non non bu fekkente ne baara laa bëgg. waaw non yow li ma lay tontu nii dina parce que man xam nga mbaraanu ma. ki ma bëgg bu ma defalul. du tax ndax man li ma li. du li may defal damay damay. bu ma waxee man dafay da xam nga ni ma posé question. da nga koy généraliser mhm. bu fekkente ni nit ki da ko bëgg. nga ni da ko bëgg parce que on sait jamais dans vie am na ñoo xamante ne dañ koy am mën ko fuuf yéene la ko. Mhm. mais dañ koy téye di xool yow ban genre nit nga xam nga. Mhm. te fekk liñ la yéene. moo fuuf yow boo leen doon ñaan tey liñ leen di ñaan. baaral kii li mu bëgg expliquer mooy. su fekkee da ngay ànd ak moom. Mm-hmm. yow baara mu leer la ne ni ma mami mii. Mm-hmm. fidèle na ci yaw mm-hmm. soo ñëwee këram fekk ko fa. mosoo ko dégg kenn. mosoo ko soupçonné ci dara. yow wóor na la ni mami mii ci yow la yor yem. soo dee liggéey di liggéey ngay génn ak moom nga bëgg ko soxna. su feet jotee war nga ko mën a jàppale ci feet bi. mais dara du ci force. du xam nga pour mu nekk force. voilà. day fekk nga takk ko. voilà mais soo ko takkul. Mhm. parce que tamit. voilà su fekkee fidèle na la daal. même bu fidèlee même bu fidèlee. Mhm. day rafet rek nga defal ko. Mhm. nga nga nga jàppale ko. bu fekkee ne euh, tamit gis nga ne yow waruloo ko mën a wala xool nga ne yow mii man bugguma def loolu mais doo ko def. parce que tamit mooy euh, yéen a ngi ànd kii fidèle na ci man gis naa ne mi ngi may defal lu ne kon ma it war naa ko mën a laaj boppam. parce que fidèle na man, man mi di gor fidèle na ci mom loolu du raison xaaral ma ñew rek maa ñew ñëw <laughs> ñew rek bu fekke na kay bu fekke euh, euh, euh num tudati fidèle na ci man ah euh, lu mu soxla ma defal ko ko te xamna na fidel na ci man mom mu xam nga Fidel fidèle naa ci mom mm-hmm. ba tax lu mu soxla man ma defal ko ko wa man bis est ce que duma ma soxla dara mu defal mako non du raison Mm. xaaral c'est que c'est que maa ngi ñëw maa ngi ñëw c'est dafa am benn benn benn benn affaire bu mag boo xam ne daa am ci diaspora bi xam naa ne di nga ci jot temps yi mm-hmm. euh, dafa am ku ñu rapatrier biñ ko rapatrier États-Unis la nekkoon yàgg na fa mm-hmm. biñ ko rapatrier moom bi mu demee quatre-vingt-six la dem yóbbu jabaram deux mille mm-hmm. ñu rapatrier ko bu yàggul jabar ji des fa hmm? am ku ko ne da koy ñaanal ne ko jabar ji ne ko waa ne dag may fasé 3 mois ci biir fasé gi boo ma fasé 3 mois ci biir loolu mooy tax ñaan gi mën a jàpp pour nga dellu si xam koo xam 86 la nekkoon États-Unis boo ko waxee loolu moom gisul dul dellu mu may jabar ji baat ci ñoom ñaar seen diggante la yam 3 mois yi dafa mat tey ci suba ga waa ji xam nga 3 mois. ka ko doon ñaanal <laughs> waaw. <laughs> Hah? waaw trois mois yi ya, dafa mat tey xam nga mooy idda bi est ce que deal du deal bu ndaw deal la deal la parce que idda la trois mois mooy trois mois idda yi trois mois yi mat na tey ci suba nga waaju takk ko mais nag dama bëgg ñëw ci fi nga doon wax fi nga doon wax léegi laa bëgg ñëw non bu fekkee ko ah, la woon la ah, xoolal non xam nga ah. xam moo ko may baat la dañ koo léegi nag su fekkee nag moom moo ko ne tasal fexel sa jëkkër fase la ma takk la moom sëy du fa du fa mën a ne <laughs> est ce que waa nga ko doon doxaan avant mu naan ko tasal sax gis nga léegi nag yooyu lool loolu lépp xeetu mbaraan la parce que amoon na jëkkër mais est ce que dul woon doon woon mbaraan waa est ce que jigéen ñi mbaraan te duñ joxe seen bopp bari nañ man laa wax man mhm. sama conviction man gëwuma ko parce que nag man dama ne ci milieu bi dama seen ne ci biir milieu bi. ci milieu mbaraan mi nga ne. non dama ne ci biir milieu bi xaaral ma wax la rek dama ne ci milieu boo xam ne. ay jigéen ñoo ko entouré. Ah. te façon yu mel noon da cee bari. man mhm. styliste la. waaw moo ma yóbbu partout dans le monde fu ma dem yëpp stylisme moo ma fa yóbbu. waaw may fréquenté ak ñoom xam leen dégg seen i langage dégg seeni waxtaan. Ah. xam ci lu bare bari. kon daal gis góor ñi ñuy ommat di leen ootal nan lañ leen di ootale gis xale yu jigéen yu ndaw ndawaan yi li leen ci dugal ak ni ñu leen ciy dugalee. Uh-huh. comprendre nga luxe bi ci nekk moo bari. kon daal kuy mbaraan. c'est que gis nga mbaraaneur yi. Mhm. dañoo am ay entraîneur. <laughs> ay entraîneur dafa am ay mbaraaneur tamit. mbaraaneur yi góor yi la. dañoo am ay entraîneur. Mhm. am ay formateur waaw ñoo xam ne ñoo leen yore. ok d'accord bien encadré nag. Mhm. da ngay gis ay nit yi. ay gars di <coughs> euh, euh, laajal ma ko ndaw si. est-ce que nit mën na mbaraan. ba am ci xaas bari gis naa ñu ciy ami oto gis naa ñu ciy yóbbuwaate màkka gis naa ñu ciy ñu ciy jënd jënd ay xaru tabaski gis naa ñu ciy mbaraan mi ñu ciy fayal seen i doom ñu ñu ñu ñu ñuy jàng gis naa ñu ci ñu ci ñu ci ñu ci doom nga xam ne dañ ciy dem sax ba ubbi ci ay magasin ubbi ci ay professionnel lañ ah ay ay ay pro yu mag a mag a mag waaw waaw waaw di ci fayal weer wu dee nga jot xaalis boo xam ni góor gu nekkul sa jëkkër moo la ko jox nga fayal say doom jàng gis ci ñoo xam ni xaalis boo xam ni pendant des années yaa ngi dëkk ci benn appartement góor di la ko fayal dama koy faral di wax da ngay gis xale bu jigéen bu dil appartement di fay deux cent mille appartement ba dix góor a koy fay ku ci nekk di nga joxe euh, di nga joxe deux cent mille wala deux cent cinquante mille yow am na heure boo fay ñëw nga gis ni ba nga jëlee appartement ba joxe nga xaalis ñu jënd tele tele ba dix góor a ko jënd mm-hmm. frigo ba dix góor ko jënd lal bi la fa ne yep yono so ñewé tok da nga yaakaar appartement bi sa appartement la fekk ya gaayé bok appartement bi mais xamoo ci dara mais ku jigen koku non mais nak la mëna encaisser ñoom ñëpp te te te du te, te du tëdd pen bi nak mami ndoy mbaran nga wax mbaran kay jeex na mbaran mooy prostitution déguisée kon jeex na mbaraan jeex na man mbaran mom ku léeg da mi ngi mbaran mom mi ngi ci mais am na ñoo xamante ne dañuy wo bokkeewule ki nga xamante ne dafa am copain am copain baax bëgg ko mu bëgg ko mu yéene ko yëkkati kayitu kër man sànq li may wax dangeen ngeen ko dégluwul moo tax nit may na fi nit kayitu kër te sequl ak moom dara mais ñii mbaraan non chéri tax ñii mbaraan dañuy mbaraan mbaraan moom mooy mbaraan mbaraan mooy dangay ngay jaay sa bopp pour ñu jox la xaalis mbaraan mooy tey ji loolu nag ngay wax yow waa tey ji soo fekkee da nga xale bu jigéen boo xam dafa yem ci benn góor muy Abdou ànd ak Abdou Lahat Ndiaye mooy laxa Abdou Lahat Abdou Lahat Ndiaye. mu jëlee la appartement Mariste moom dong. waaw waaw fële fële fële fële Ouest Foire. waaw wala noor foir wala Liberté 6. mu jëlal la foofu. yow yow nga dëkk fa. yow dong yaa fa nekk. mais Abdou Lahat li fi ne ci lépp kër gi moo koy fay moo lay defal lépp am na jabar ak yëpp waaye lépp moo la koy defal. tout moo la koy defal. moo lay fayal courant moo lay fayal ndox mooy fay appartement bi li meublé la affaire bi nga dëkk fa yow kese waaye Abdou Lahat a ngeeg jabaram. loolu la. non. par euh, mbaraan la wala ab ñaareel bu bu bu valabulul la wala. lan la non xam nga jooy mooy li ma doon. waaw mooy li ma doon ñaareel bu ñaaneelu ñaaneegul. yow nga am li jabar di am lépp. am na ci gaa yoo xam ni dañoo jël benn jigéen teg ko fenn li jabar di am lépp. waa ji di leen ko defal. mais jàkka jàkka ja rek a des. su fekkee bëgg na ko waaw su fekkee ndooy bëgg na ko. Mhm. bu fekkee ñoom ñaar dañuy génn a amour moo ci am. Ah? waaw ku jigéen ke amul fu mu dëkk. waaw amuñu ñoom kër. peut-être ñoom ñëpp dañuy loué. ci këru luwaas la nekk. ku góor ki bëgg na ko te am na intention sey ak moom parce que sey bi yàlla moo dafa jotagul. Mhm. mais am nañ intention sëy. Mhm. ndooy mën na ko gérer loolu yëpp ci dara. ci dara mooy lan non dañu bëgg dañu dañu bëggante te dañoo envisager un jour ñu marié lëx du am dara du am mën na nekk nu mën a nekk loo ma sii ndooy mën na ne. góor defal la loolu lépp. te mën na yéen yéen fekk nag yéen yéen yéen ndooy. tabe wu doo lekk dara mën na nekk ndooy tabewu leen. Ah. ndooy tabewu leen ndooy nit may na. parce que kii nee na. bon jigéen mën na ko may kayitu kër sax. Mm. te nit ka du xam lu mu wóor may ko xaalis mu dem commerce waaw man loolu la bëgg gis loolu man man na nek man d'accord na loolu am na du ben du ñaar kon ne xanaa da ngeen dem ci peul ba ci ties ko ñu ci ben peul xam nga lan xam nga lan la non loolu fi dafa nekk waxu rajo rek ñu wax ni mais deugenta des fois di nga ah. gis goor ah. mu gis jigen bëgg ko te yalla rek tax mm. am ci mom intention yu bax waaw yaa ngi dégg mais ndaw si dof la koy jappé du ko jappé dof bu nekkee xel la du ko jàppee dof. mais yéen xaaj yëpp bu nekkee borom xel la laa wax. du ko jàppee dof. waaw mm. ah, mérité ko mais am na ci jigéen ñoo xamante ne nii. Mm. danga leen di yor di leen defal lépp. Mm-hmm. ñu ne sama dof baa ngi ne. Mm-hmm. fekk yow intention yu baax nga am ci ñoom. Mm-hmm. wala ngay yërëm leen. mais loolu rek tey ji tey ji fukki sa wuy ma su ko fukki góor dee def. Mm. neuf yëpp monsieur Ndaw jigéen ñi dof lañ leen jàppe. te gis nga maman yooyu monsieur Ndaw. monsieur Ndaw man la Abdoulaye Khat Ndiaye mi jël appartement bi mm-hmm. yor jabaram fële mm-hmm. jël benn appartement wu deux cent mille mm-hmm. meublé ko ba mu rafet def ci valeur u cinq millions di ko di gérer lépp jël ndaw sa dugal fa Abdoulaye Khat su yaak takkul ndaw si de su yaakee ne yaakaaree ni lal boo mujjënd wala saal ba wala foofu moom doo nga fay naan kafe nax na boppam Abdoulaye Khat heure bu ñëwee bu def ba dem ah Abdou ñëw toog <laughs> naan ko xuux lu leer naa ñi laay wax. gars yi léegi euh, léegi nooy góor ñi jël appartement dugal fa jigéen ñëpp. yow gëmoo ne loolu mën na am de. mais am na mais am na yeneen. dama ne dama ne mënul bokk parfait. dama ne dama ne loolu noonu mën na am. mais am na ñeneen ñu fay ñëw di fa tëdd si. kudu kudu Abdoulahat déedéet déedéet ndooyu loolu mën na nekk lii nii mën na nekk lee mën na nekk lee am na lii am na non non bu leen ne rek benn kii bi rek moo am non ah, non ñun wax nañ ñun wax nañ ñi baax wax nañ ñi baax xam nga ñun jëluñu ñëpp waaw xam nga xam nga moom ki muy wax mbaraanu ndooyu dafa ne loolu mënul am dama bëggoon rek dama bëggoon intervenir ci benn minute ah mm-hmm. euh, macha allah macha allah liñ fi liñ fi dégg ci intervention dafa riche. Mhm. moo tax lu ci bëri da ngay calme di déglu. Mhm. parce que <laughs> solo si nga xam ne moom la kiy toog di déglu. Mhm. bëgg a dégg. su jubee rek yow da nga naan tekk di déglu. parce que yow sa objectif ñun ñëpp mooy lan. mooy que auditeur bi ñuy déglu tey. tirer ci leçon. auditeur bi bàyyi lalam. di déglu émission bi thème de la semaine. bu inspecteur Ndoye Bane. déglu ko pour ree. déglu ko pour kaf. Mm. déglu ko pour dégg ay déconné def ko déglu pour tirer ci ay leçons. Mm. et que yooyu tey mooy génn mu nekk mm. ay leçons de morale. Mm-hmm. et c'est important que tout un nga tey tey jëlee ci leçons yi am solo yoo xam ne da nga ah man de la ma doon def ndek baaxul ba ma dégloo émission démb bii. dinaa ko baax. <laughs> keneen ki ne man nag la ma nekkoon moo gën émission bi ma déglu. dinaa kon continuer sama ji kii quoi jikko moo tax li ngeen di wax. boobu ba léegi. am solo dafa normal. Mhm. nekk lu tegu. Mhm. ba suñu xol day sedd. Mhm. waaye dañu bëgg ñu xam lan mooy thème bi. xam nga thème bi lan la. mooy ki nga xam ne mam mami li ngay wax tax koo jóg. xam nga mami yow da da nga sérieuse macha allah. foofu laa a da ngay défendre. Uh-huh. ku sérieuse bi toog. li ko tax a jóg lan la. muy góor bu ko bëgg mu bëgg ko. nga yem ci moom xooloo ma sàmba xooloo ma Demba Baara rek nga bëgg. baax yalla def loxom jot na ginaawam hmm. waye nak defal la du obligation. nangu nga ko. Hmm. macha allah nee nga hmm. du force. comme xam nga ne du force rek. Alhamdulillah. baax dina am xel que mami mi kat bayina ñep yem ci man ko amna astut as ko ci ñamal yenn say ba wer bu de mais ñamal say ko mene du deug ha ah. xoolal bara dan amin. ba pare it. waaw bare de su waxee amin moom war na ko waaw maa ngi maa ngi jégal nag soxna si bu baax. Euh, ba pare nag baara aussi am objectif bu clair. Euh. muy que ne suba. Euh bëgg naa takk mami mii. muy hmm? sama soxna. mami am objectif bu clair. que hmm. ne man suba beneen góor bugguma ko budul baara. a su boobaa diggante boobu. Hmm. la ca xew ci defalante teranga jaadu na ndax dañ koo teg fu leer. waajur ya xam ko mbokk ya xam ko dëkkandoo ya xam ko xarit ya xam ko dañuy xaar rek bés bu rafet ñëw. waaye loolu nag loolu nag loolu nag du solo tem bi. xam nga tem bi tey lan mooy solo yi. mooy. classe kumba kumba bi nga xam ne. wala dëggeen bi nga xam ne daa toog ci biir këram. Uh-huh. ne lépp lu jigéen ju baax am dinaa ko am. Uh-huh. te fukki góor yu baax ko fi indi te du ma ci bëgg kenn. Mm-hmm. du ma ci nopp kenn. dina am appartement bu ñu meublé. Mm-hmm. lal ba nga xam ne un million lañ koy jaayee fukki góor a koy jënd muy dix millions. Mm-hmm. benn million lay jënd. neuf neuf yaa ngi ca compte ba tege. moo tax mu mën a génn oto defi teraanga. te nag li nga wax dëgg la de. gis nga benn nit boobu noonu. saa yu ñëwee bi. su si mee gas naram day wékk ca kaw ndax foog na ne moo ko moom mhm. te fukk ko moom te tey te ndaw si muus na muus goo xam ne fukk yi mhm. kenn du fa daje duñ fa daje mi diini léegi nag xëy na bés dina ñëw kenn ki espirem daw mu waroon ñëw jeudi ñëw mercredi non comme daan sama mhm. appartement la waaw mais nag su fa ñëwee mercredi xam ne lépp dëgg la uh-huh. ndax su ma fekkee uh-huh. mercredi mu toog te moom jeudi la waaye soo di ñëw na mercredi uh-huh. day jëlaat xaftaanam dem du fa indi scandale ndax police boo ko fay jëlee amul luñ bind ci kayit na moo ko moom. Ah, daa sànni woon xaalisam. Mhm. bàyyi na jégam ca këram. maa mu teg tànk fu mu ko war teg ba janmatt ko. te liy gën a metti mooy du mën a ba. day génn dem yoonam su bawul perte na. mais du mën a bàyyi laa wax ndaw si day kon ne di ñëw xam nga lu tax muy baax. Uh-huh. ndaw si xam na ne jàpp na ko. te jigéen su xamee ne pexeem jàpp nga ko rek mu bala. ndaw say ba mais waa ji da koy topp. waaw mais mais jigéen su la bàyyee nga ba ko. Uh-huh. jigéen. Uh-huh. su la bàyyee nga ba ko ndax borom pexe la. jàng nga ko xam nga bu baax li ma lay wax. Uh-huh. jigéen ku mu ba nga ba ko. ndax ndax moom borom pexe la soo ko mu dugal la ci musiba. ñaari tàcc yu jigéen xajul ci góor. moo dal suñu waa ji toogoon fii. <laughs> moo dal suñu waa ji toogoon fii. ndaw sa da koo ba te yëgul na bana ko xoolal. xoolal ki ñu la net léegi pexe mi rek. léegi pexe mu taf taf. léegi su suñu waa ji toogoon fii. ba di ngi naan dafa ñàkk fayda. ñàkkul fayda de xam nga la moo ko dal ndaw sa da koo batte yëgul na ba na ko mhm. foog na ne góor a nangu jabaram fekk na jabaram moo nangu ji góor mhm. Mhm. noonu la demee donc su ko defee ki ñuy waxal mooy ki nga xam ne mi ngi ci këram dagale ay góor ñu bëgg koo xamal na ko loolu amul solo suñu jarbaat bi wax lu am solo sa yaay yàgg dafay ñëw mais li nga wax moo ëpp solo fop uh-huh. waaw sa yaay ñu ngi koy nuyu mais li nga wax mooy solo stem bi uh-huh. ndax nee nga xale bu jigéen boobu nekkoo ci dëgg. li nga nekk du dara. Mm-hmm. soo defoon li nga war a def. Mm-hmm. mel li nga war a mel. Mm-hmm. ku góor gi du def nangam ak nangam. mais jigéen joo xam ne waa gi daf koo wax léegi yaay waaye yow yow noo ñëwee ci néegu góor. ne moom nga bëgg. ñaan ko cinquante mille xëy na mu lay waaj jox cinquante mille. sa téléphone ne kar sonné muy baara. waaw pare monsieur Ndaw sonné. paré ndoy Ndoye sonné. mu jëlat 50000 dugol ci biir daal di gëné 2000 mille dama ko ah, joxee deux mille baara joxe deux mille. pourtant 50000 gëné yi nako pour jox lako waye waaye sonné yam sonné. kenn ku ne nga nako sama yaay ma yoni xam nga lan mooy yaay ngi goor yaay góor goor di wax safar sama yaay ma yoni mu ne nañ cotiser. xam nga défé moom it mu jël 50000 dugol ci souf daal cee gëné 2000 mu des mu des ben ben ben 40000 gaay dañuy cotiser de gaay dañuy cotiser. fofu lañu waxé donc débat bi dañu wax rek. Ah. pour jëm ko. non mbaran ñu xam ne débat bi du jigéen ju baax ji toog ci këram kooku généralisé wuñ kooku fu ñu waxee ne dañoo bon rek hmm. kooku moom dañ ko fekk na 90 ba. kooku dañ koy tàccu waaw kay monsieur lii laa àndal mais ne carrément. mbooloo nag mënul nekk boobu d'accord non waaw lépp mën a waaw kañ boobu laa d'accord lu bon su bëree lu baax day réer. Mm-hmm. yéyal gerte rek benn bu bon na ci biir. gis nga lu bon. <laughs> ceeb da ngooy tiim di ko lekk mu neex lool. jékki na taj. waaw nga jóg ba ngi donc. Eh. lu bon fu mu nekk rek. Eh. lu baax dafay néew. lu baax it fu mu bëri rek. Mm-hmm. lu bon dafay néew. waaw donc foofu la ñuy waxee. c'est que dëkk bi. <laughs> benn benn affaire dafa am. Mm-hmm. Euh, mooy peut-être euh, dañu dem ba benn moment peut-être amour. Mm-hmm. valeur am dafa wàññeeku. parce que naxante bi dafa bëri ba nga xamante ne. ku nekk danaan. peut-être ku góor ki mën na am yéene defal ko jigéen ki. c'est que amour bi léegi ci matériel lañ ko indi léegi. voilà du ko wóolu. <laughs> danaan est-ce que su ma ko joxee est-ce que nekkul keneen. Mhm. est-ce que est que est que est-ce mhm. te mën nga def le tout sax ba ki nga nekkal am ci yow confiance. Mhm. mais tout le temps xelam du dal. ndax yi muy gis. comme li nga wax léegi nii rek nee na mën nga lekk ceeb mais bu amee xeer nga suur. comme noonu la rek peut-être ñi baax ñi ngi baax ba tey. mais tey léegi góor ñi sax doxaantuñ nag. jigéen ñi ñoo leen di doxaan. nan la ñuy doxaanee ñoom jigéen ñi. jigéen ñi ñoom mën nañ gis ne tey ñu gis ah tonton ndaw mii mi ngi insub de moom nangam ak nangam chemise bi mu sol rafet na de lii bi mu sol nangam nangam kii daal xaaral dinañ jéem a def tout tout tout ba dugg la sa numéro la ñuy lijjanti. ni damaa juum juum ah, juum juum ah wala ñu def la tout xoolal. di jaabani tout le temps di la jéem a fréquenté ñooxu la ah parce que jigéen am na benn benn kii boo xamante ne benn benn pouvoir boo xamante ne pour mu dugg góor. du ko du ko metti torop. Mhm. léegi nag mën nañ la jaaree noonu. ñëw di la jaay innocente waa dama laa bëgg machin chin chin. Mhm. la jàppee dootoo ko defati. Mhm. léegi nag loolu noonu peut-être ki nga nekkal mën na fekk sax da nga sérieuse ak moom mais yeneen proposition yi muy am si biti ak ni muy demee mën na mën na jaxase xelam ci yow sa crédit mën na yàq sa crédibilité peut-être valeur amour moo amatul ba nga xamante ne. nit ñi dañuy focaliser aussi matériel matériel biñ ci toujours bi ñuy dugg si nit ñi ngi xalaat kii lan la yor kenn mënatul sax óolu nit ndax loolu kii est ce que mën na ma defal li parce que tamit sama mbokk jigéen yi sama morom yi lay waxal sax parce que peut être sama morom yi ay jeune lañu instant bi mhm. ñi ngi si buntu aduna moins de 25 ans. moins de 25 ans instant bi ni mën lañ mëna baxé comme mën lañ mëna bonné mhm. c'est vrai que sama rak yi am na si ñoo xamante ne mooy loolu mais. Euh, bu yow xam nga sa xam am sa mm. yow instant bi nga a tracer sa vie. Mm. nga responsable mm. a parce que mais xale 22 ans. 23 ans. Mhm. di def yenn yu bon yi. parents yi lan mooy seen rôle ci loolu. loolu mooy manque manque présent peut-être am si par exemple parents ku nekk xam na ne présence su say parents yi la jur ni mën ci yow kenn mënu ko ci yow dina am tuuti négligence peut-être mais loolu pour man présence su yaay ak papa dafa def ci am importance surtout yaay parce que yow ci li ngay gis moom ngay copier. bu fekkee ne dangaa dëkk koo xamante ne yow xam nga ne doxul ci dara lu ñàkk fayda wala la dara lu ñàkk fayda yow mënoo ñàkk fayda boo ñàkkee fayda nga ko fori mais bu fekkee ne yow li ngay gis yaa ngi nekk ak sa yaay par exemple gisoo ci moom dara lu ñàkk fayda yow mënoo ñàkk fayda te yaay ak doom dafa jegewoo de telle sorte que bu fekkee ne tamit pour man c'est la faute aux parents parce que bu fekkee da nga nekk ak sa doom nekk ak moom gendarme di ka napp ba du ñemee am benn ouverture bi ak yow man man damay wax ci aspect matériel aspect matériel comme ça tey nga jékki-jékki yor benn estat edge mhm. binda may leer ka ne gëndalu la estat edge bii di jar trois cent cinquante mille mhm. ba pare bàyyi la ak moom nga nekk ak moom deux mois kon ne mu ray ma <laughs> mhm. c'est que yéen ni dëkk bi tasee dëggantaan sax ba tey xamu ko dëkk bi dëggantaan ta njaay xale yaa ngi def loo xamante ni ci dëkk bii mais xam nga lan laa lan laa bëgg wax foofu mooy que mhm. euh, moment bii nii dañoo war a yeewu man personnellement bëgguma dépendante bëgg naa tey amal sama yëfu bopp parce que c'est vrai que di nga toll un moment boo xamante ne tu vas devoir quitter sa kër pour dem kër keneen ki nga nekkal peut-être dina di ngeen nekk c'est vrai que yu bari moom moo la ko war defal mais yow tu as une vie mise à part ce vie ak ce ce vie de couple en fait hmm. tu as ta famille tu as tes soeurs tu as tes frères hmm. donc waro dépendre de trop ci ki nga nekkal hmm. euh, si côté bobu la bëgg a que xalé jigéen ni ñoo war a xam sen bop peut-être jigéen nga di nga gis proposition bu nekk mën na nekk mais da ngay yamalé say bëgg-bëgg loolu tamit ci yar bi la. c'est important. da nga yamale say bëgg-bëgg bu fekkee ne tay sa xarit boo àndal mu teg cheveux nga ne di ko teg mm. sa yaram bi dina ci tàng de nan lay tàngee mais parce que yow bu fekkee say parents amuñu moyen yow xam nga ne yow amoo leen moyen waaw nga bëgg teg sa bët fu sori waaw bëgg ko am si xale góor yi mm. xale góor duñ joxe si gratuite surtout bu ñu xamee da nga ma xamal la ma xamal la benn affaire bu la ma xamal ma gis ngeen comme li kiy wax rek je te donne tu me donne <laughs> eh? affaire bi moom du gratuite xanaa nga am chance nekk nit koo xamante ne peut-être bëgg na la nga won ko sérieuxité mu nekk ak yow di la defal ta yàlla tax mais ndooy nee na su la góor bëggee gis nga mhm. ndaw da nga naan sama dof baa ngi nii gis nga ndaw mais loolu ñàkk xel la peut-être gis nga ndaw ndaw mhm. suñu jarbaat bii nga gis muy wax mhm. man xam naa xam naa xam naa xam naa nu muy dundee ak yaayam et tout waaw binta jàmbaar la d'office la mbag ak mention mi ngi nii te xam naa ci yan condition la jànge très difficilement. moo tax affaire bi du ci am-am. du ci ñàkk affaire bi jom la. ak fulla ak fayda. Mhm. d'office la am ak mention. Mhm. bac ren. Mhm. xam nga kon kii judduwul xale bu ndaw la. te soo xoolee. tey daf ma daf ma daf ma sax bett parce que xaw ma woon ni. Mhm. Euh, xam nga. Mhm. lii mi ngi ci moom. lii mi ngi ci moom te mhm. soo ko dégloo. dangay xam ni ku ñu yar la. dëgg la soo ko dégloo da ngay xam kuy toog ci ay mag la. soo ko dégloo di nga xam ni ku xam àdduna la. dafa jàng. voilà voilà te affaire bi affaire bi xam nga lii du yëf yi jàng ba ba bag ba taxul mu mel nii de. déedéet bag ba leneen la. ba këyit la. voilà këyit la. mais lii da ngay xam ni kii nii lii c'est par exemple moom. Mhm. xam nga mi ngi xam nga 97. 98 mhm. xam naa moo côté yooyu nga war a judd. 97 la 97. Mhm. xam nga tey jii ku juddoo 97 di waxee nii. loolu mooy éducation de base. camarade bu baax li mu la. il faut nga am loo toogaale. fi nga toog dëgër. fi nga toog su dëgëree lu ndaw su lay puus ngay dem. da nga di nga di nga di nga di nga di nga xanaa nga bëgg a bon sa bonuk bopp. waaw wàllu yaa nii. waaye di nga xam ni yow. peut-être gisoo papa wala gisoo yaay wala kii waaye ka nga gis daal. Mm-hmm. teg na la ci place ba xamal la àdduna. Mm-hmm. moo tax tey ji ñi nga xam ni ay jeunes lañu ay xale lañu. Mm-hmm. wala ñi nga xam ne ay mère de famille lañu. tamit dañoo war di suñu amee genre idée yi mel nii. di ko wax muy dugg ci bët bopp. seen moroom yi. c'est important tey jii su doon télé la mu toog di ko wax. ñu ne kii 97 la judd 97 bërki démb gii. ah mm. man sama taaw 97 la judd. xam nga kii sama doom la. Mhm. mais gis nga idée yi muy wax. Mhm. mag am na 40 ans du ko du ko waxee nii macha mhm. allah. donc lii la ñuy soxla ci. jeunesse bi ci jeunesse bi. moo tax ndooy éducation de base dafa am solo. gis nga yaay boo nekkee yaay. nga. nga am jëkkër nga bañ a am jëkkër seen papa nekk fi mu bañ a bañ fi nekk yow yaay yaay mooy yaay. Mhm. gis nga yaay dafa war a jox doomam un bon exemple. Mhm. Mhm. soo bëggee éduquer sa doom. mu jaax ci yoon bi nga bëgg. yow yaay dafa am noo xamante ne da ko. xanaa xamoon dooy am na parent yoo xamante ne am na femme yoo xamante ne jamais góor dugg seen biir chambre a coucher. parce que xam nga pour lan. te pourtant léegi ay magum jëmmale. mais xam nga lan. dañuy jox seen dañu bëgg a seen doom. Mhm. jox ko un bon exemple. Mhm. parce que xale yi léegi ndooy dañoo jàng. Mhm. xale yi ñoo gën a jàng léegi seen parents dañu éveillé. dañu muus. boo ko ci ko ko am noo comporté woo tey. suba nga bëgg koo éduquer nee dala naan hey maman. bu la tontuwulee rek dalaa rus. te am na nooy forcé sax mu tontu la. sa doom. am na noo xamante ne yow boo ko mhm. comporté woo mhm. mën nga ko sax bañ a yedd mhm. te gis nga surtout doom bu jigéen dafa doy waar del toog ak moom di waxtaan ak moom ba pare nga koy jox un bon exemple bul tàmma yow guddee tëdd même boo guddee tëdd yéen ñëpp nekk leen seen biir saal ngeen seetaan seen télé mën ngeen tëdd nii moo ñu tëdd nii sa wet ngeen di euh, séqoo faala du lii ba nelaw góor bu lay loolu yëpp ci éducation la góor bu lay seet bu 22 heures jotee xalaatul ñëw waroo xalaat Gour dugg ni yow lay seet. Mm. say doom nekk fa. Mm. dafa am lu bari lu parents yi def lu ma xaw a ragal. Mm. Euh, góor ne ne dalay nga ne sa doom génn. non dama ko parce que xale xale la. lu intelligent intelligent xale te xam nga tale beeg yooyu yëpp dafay yàq mm-hmm. te ñoom dañuy toog di waxtaan ak ak net bi mm. xam nga léegi boo leen wéetee yéen ñaar ci biir mm. nga ne sa doom génnal sa doom mën na xalaat lu ne ne mm-hmm. sama maman te gis nga sama sa maman boobu mm. yow sa sa référence la war a doon yow yaa war a nekk exemple pour ça ma ma laaj la benn question ndoy yàlla rek mooy dogal jéeg bi sëy ba am ca doom yu toll noonu yàlla dogalee sa jëkkër faatuwul ana lan ngay tas mm-hmm. soo demee ba jur fa koo xam ne ni tey soo sol soo simmee dàll mu sol ko mu jot ko dañuy waxtaan. Mhm. jéeg boobu est-ce que warta muñ. Mhm. ak nu jëkkëram wala mën a mel. mais muñ nag daa am fa mu yem de. waaw ma maa ngi ñëw maa ngi ñëw foofu laa jëm. Mhm. parce que xam nga dans l'impossible. nul n'est tenu. dañuy wax d'une manière générale. ma góor su ne may naan may naan sa baat loo ci mën. góor su ne bëggatuma laa dundal loo ci mën. Mm-hmm. ndax li nga xam ne moo tënk sëy bi su ko góor defatul sëy amatu fa. Mm-hmm. kon waxewu ma foofu. Mm-hmm. waxuma lu dem ba mënutul nekk lu mënutul nekk kenn du fa toog. mënatul nekk tabaski soo ko mënul doo jënd xar. moo tax muy ñetti fan. saa yoo ko mënee def ko ci ñetti fan yooyu soo ko mënul wàcc na la ba déwén. kon kay li nga xam ne sëy moo ko tax a jóg tënk ko su fekkee nekkatu fa sëy amatu fa. waaye am na ñoo xam ne dañuy ay jeeg jur ko am fukki at ak juróom ñaar fukki at ak juróom ba pare topp di imposer sa jëkkër ba sa sëy tas. day day waar. xam nga nga mm. ñàkk fayda ba ay góor di la seet si te nga yor doom yoo xam ne tey góor ñooñu di la seet si war nañ leen mën a takk si loolu dañuy wax ak suñu mbokk jigéen ñi ñun ñëpp jigéen moo ñu jur te on a un grand respect pour les femmes mais jigéen soo sëyatee ba am fa ku ku toll noonu muñal te nga sëy mais am na ci jégg ju bëri seen sëy ñoo koy tas. Mm-hmm. tas ko cinq ans après. Mm. ñuy rëccu. day doy waar Ndaw am na boo benn euh, enregistrement bu nekk fii par WhatsApp. Mm. kii laa ko musoon defal mais mujjul sax ki dama ci supplier jigéen ñi ni leen ngir yàlla ak yonanta bi mhm. sëy dafa metti ñëpp xam nañu dafa metti luñ naan laan muñal mhm. bu neexoon duñ la ni muñal jaajëf ah. mais nag tas gu bari mais tas gu bari gi ci réew mi mën yokk na mbaraan mën mën tas gu bari gi ci réew mi yokk na mbaraan gi Moussa Ndaw wax na dëgg parce que tey ji tey ji xam nga li gën a yokk mbaraan jigéen a ngi mbaraan su ma daanee rek damay ñëw ci reportage bi jigéen a ngi mbaraana ah, pour dimbali yaayam sa bàyyi fase sa yaay bàyyi laak juróomi doom ñett ne doon yi jigéen doon ay taaw sa yaay nekk mag di jaay jën ak jaay caaf pour jàppale leen mu affaire yi metti lool nga am ay jànq façon góor bu ne di leen bëgg suñu gisee weer wi dee ñu coupé seen courant seen courant yaay coupé seen ndoxu yaay ñu leen di bëgg a génne location am na ci jigéen ñoo xam ne sunu la amul éducation de base dëgg dañuy dem jaayi seen bopp yàgg naa def reportage ci prostitution bi ci dëkk bi femmes yi nekk ci tali bi koo ci dajel souvent su la waxee li tax muy jaay boppam même su fekkee du raison ci góor la jóge parce que seen góor moo abandonné seen yaay góor moo jur ay doom yi bari ak benn jeeg ba mu neex ko mënu ko yalax sànni ko fële donc góoru Sénégal Sénégal Sénégal ci boppam su ma demoon assemblée gars yi dañoo am sens <laughs> su ma nekkoon député fii nii. Euh. barke yalla nafa dugg projet de loi bo xam fassé hmm. bala nga fassé jabar hmm. fassé mom bala ñu ko hmm. yokku gor ki hmm. dinañ la tegi daan hmm. parce que gor euh bu la nexé fassé wala bo heure bu la nexé tak wala bo fassé te jigen né jigéen may ma baat nga bañ wala so fassé tamit parce que tamit parce que so fassé tamit di nga hmm. dundal par force ak say do voilà xam nga xam nga xam nga li li nga wax né mo yok mbaran mi de mbaran mi li ci gën a garaaw -hmm. kii tas. Hmm. xam nga kee am na doom yu mag yu mën a mbaraani indil ko. Hmm. mais bi ci gën a dangereux mooy nga yor cinq doom yoo xam kenn màggagu ci. Hmm. seenum njàng demagul fenn. seen njàng demagul fenn.

léegi xaw ma nag kan moo ci gañe sa morom moo tax il faut nga xam ni ngay def sa tànk soit ngay def benn góor par benn nga ba ba ngay gis sa vie parce que tamit kenn xamul fi nga jëm ku xamoon fi nga jëm foofu ngay jubali. suñu génération bi ñu nekk. Mm. góor yi dañuy naxaate jigéen ñi dañuy naxaate loolu tax dëkk bi dafa dëng kenn wóolootul kenn parce que yow da ànd ak nit nga xaw am benn kii ci moom alors moom loolu nekkul ci moom boo demee ba gis leneen ci moom yow da ngay obligé dootoo gëm kenn da ngay wër di dajal dajal dajale jigéen ñi aussi di dajale dajale góor ñi aussi di dajale su ko defee góor ñi dañuy naxaate jigéen ñi ñëpp ñu àndandoo di naxaate rek di dem waa caga xam nga benn benn métier la caga métier la loolu da koy def nëbboo ko kenn nëbboo ko sa yaay nëbboo ko sa papa mais am na ñi nga xamante ne bu ñuy mbaral xam nga seen ay parents duñ ko xam d' accord mais xam nga yow booy mbaral xam nga da nga koy nëbb sa ay parents doon ko wan parce que sa kër benn nit kese moo fay ñëw nekkul ñëpp ñoo fay ñëw mhm. am na ñoo xam ne di nga ànd ak ñoom ba ba ngay bàyyi ak ñoom du xam fan la sa kër fan mooy sa kër mhm. man loolu mu sama dal mhm. am na ñoo mës àndal xamuñu fu ma dëkk xamuñu sax sama tur parce que des fois beneen tur laa ne la boobu laa tur boobu nga may woowee ba ba ñuy bàyyi na mm-hmm. doo xam sama tur am nga déjà waaw mais loolu lu ko wuutal nag ak càgg bi ci tali bi amul différence am na différence parce que xam nga sax ma ne la am na différence mm-hmm. am na différence parce que xam nga sax ma ne am na différence caga day dem moom day dem rek pour xam nga. yow amul amul amul différence. non déglu ma déglu ma xool sax caga bi est plus honnête. parce que moom jël na des responsabilités jël na des responsabilités di marchander mais une fille bi nga xamantani ne dafay jël un jour comme ko accepté nit bi nek copain nga seeti ko sa kër xam nga. mu nga dem. tu n'as pas marchandé le prix mais tacitement tu as marchandé le prix bien vrai que waxo len que suma ñëw nak may jox li wala lay démé mais am na kële booy sax bi mo gëna honnête man je me dis qu'une fille nga accepté dem rencontrer une personne nga sekk ak mom lan sur la base que ni c'est pas en tout cas on est dans une on est libéré on est moderne j'aime bien le dire mais tamit. woon am na nañu ñuy lu ñu dese ba léegi mooy <clears throat> on a notre culture à ah, nous loolu il faut que buñ ko bàyyi am na foo xamante ne doo leen fa yegg waaw na foo xamante ne doo leen fa yegg mais lu ci mu lay jox xaalisam ngay lekk am na foo xamante ne doo leen am na ñi nga xamante ne waaw du góor nekkul ñëpp loolu moom je n'en disconviens pas nekkul góor yëpp am na góor yi nga xamante ne da ànd ak ñoom ñu lay defal lool ak lool te duñ am ci yow dara am na ñi nga xamante ne nag ñoom bul sonn munoo lekk seen cent franc te duñ am ci yow. waaw ah, ñooñu mosoo cee daje kenn. mosuma cee daje kenn te yàlla bu ma cee daje kenn man kay dama yàlla di baaxee may daje. naxa naxa yi non non. non loolu loolu c'est impossible. mën naa la wax daal ke gi. daf ñu bëgg daf ñu bëgg gëmloo que ni mosu ci daje kenn. non mën naa ne sax mës naa si daje ak kenn li tax ma ne mosuma si daje ak kenn c'est-à-dire moom li mu bëggoon man defaluma ko ko man li mu bëgg defaluma ko ko parce que musuma am jëkkër célibataire laa mais moom su ma tasee ak genre yooyu noonu li nga bëgg man duma la ko defal parce que man du ma ñëw jox la sama parce parce que du ma ñëw jox la sama bopp nii sans yaw yow xam nga man aw ma benn affaire boo xamante ne man sentir naa ko parce que aussi boo demee ba di def benn affaire na nekk li nga xamante ne da nga koy yëg wala soo dee ba jël décision def ko na ko def ak ki nga xamante ne yow da nga ko bëgg xam nga mais ñëw ne di ko def ak n'importe qui loolu non non kon xam nga loolu mën naa ne que loolu ak caga c'est pas la même chose parce que caga moom day ñëw rek mooy loolu ñëw na waxante ngeen kii nga sambaraan yooyu ni ñuy bari bari bari yëpp kenn musu cee bégee daal kenn musu da ngay lekk sa ñaq bootaay waaw loolu fii lañ ko fekk te fii lañ koy bàyyi comprendre nga ni ma la mais tamit nag di ci abusé wu trop moo ci baaxul. parce que da ngay foog man si abusé wu man ba tey waxumaa ak yow. man waxuma ak yow dama ne li nga ànd naa ci ñaq boo taay neex na nga di ko lekk waaye parfois nag di nga foog ne yaa ngi lekk si ñaq boo taay fekk ko ginoo teg benn coup boo xamante ne parce que euh, yow neewoon nga ma benn jour que am nga benn góor bu la doon jéem a forcer tu l'aimais pas. xoj la ba nga bëgg a sedd waaw loolu dafa am benn nit bu ma xamante lool keneen sax moo ma ko man si keneen laa ko xamee sama xarit boo xamante ne kooku am naa si moom confiance parce que wan na ma li nga xamante ne kooku góor la sama xarit la am naa si moom confiance pour man xam nga képp ku ma présenté rek kooku dafa wax mel ma parce que nee nañ dis-moi na ami je te dirai qui tu es mhm. pour man ñoom ñaar am nañ benn kii lool moo tax xam nga man aussi ma ma accepté relation ba parce que gaan bi aussi au début wanoon na ma li nga xamante ne man xam nga jàppoon naa ne que kii dinaa mën nekk ak moom nekk te du loolu ñuy ànd di ànd di ànd parce benn jour mu ne ma naa ko seet si këram ma aussi comme que am na nit ki tam bu lay seet ci affaire yooyu da ko wara a waaw légui ma ne naa légui mako léegi bi ma ñu dem commencement bi dama dugg si si perron bi lañ tok si couloir bi fa lañ tok mu tek chaise ñaari chaise ñu tok mom kessé mo dëkk këram parce que gaan bi sa new fi Italie la nek day bi mu ñu tok këram man ak mom ñuy waxtaan ci couloir bi après ba siya mu ne ma xam nga mu ne ma kay nga visiter kër gi xam nga ma won la sama appartement affaire yi may visiter ñuy visité visité bis néegam nag la mujjee yeneen yëpp lañ visité ba des néegam après mu ne ma waa fii mooy sama chambre affaire yooyu nag di xam xam nga kay toog mets toi à xam nga affaire yooyu comme aussi man waroon na ma lenn li nga xamante ne man sincèrement ma ko woon foofu man aussi ma toog ñu toog di waxtaan xam nga di waxtaan nii ba benn instant xam nga mu ne ma naa ko fóon ma ne ko nag xam nga man ma la xam tey ñëw nii rek xam nga commencé di fonante ak yow yooyu noonu sincèrement dama bëggoon xam nga ñu dem ba si digg bi ba ma gën la xam parce que instant boobu man mën naa ne que sentiruma woon lu bëri si moom mën naa ne que sentiruma woon amul carrément si moom loolu moo tax après xam nga mu nekk di wax di wax di wax di wax di wax noonu après xam nga finalement xam nga. ma fóon ko ñu nekk di du question la daf ma baab parce que dama ko def parce que daf ma neex man nit mënu ma def loo xamante ne neexu ma mhm. waaw. xam nga ma def ko parce que dem naa ba gis ne que xam peut-être fóonante si relation xam nga c'est le minimum. ma fóon ko amagul woon relation parce que. yaa ngi boobu relation am na gis jour boobu rek. non non non boobu gisante ak gisante nañ avant. Mhm. gisante nañ avant jour boobu laa koy soog a seeti laa wax. waaw <clears throat> xam nga jour boobu laa koy def say soog a dem këram seeti ko. Mhm. après xam nga ma accepté ñu nekk noonu di fóonante ba ci kanam moom mu bëgg a yegg ci leneen. ngeen flirté. ñu fëlërte. mais fóonante égal léegi yegg ci leneen. mu bëgg a yegg ci leneen. waaw maa xamal ko nag ne ko nag affaire bi nag du loolu. parce que loolu nekkul dangay ñëw nii rek xamante ak yow même bu ñu defoon cent ans du yow laa koy jox. mu ne ma waaw xam nga rek loolu dafa war a am si diggante xam nga yooyu noonu rek xale góor di def di la jéem a baab xam nga ma bañ. mu xam ne carrément que ka ma dama bañ mu forcé ma xoj ma ba sama baat bi deretal. xoj xoj ma. après bi mu bi ma xojee ma xamal ka ne ko lii parce que bi may dem ko dafa mel ni que dama ko santiroon xam nga dama sol dama jiital cuissard sol du jiin bu danga dang takk sama ceinture xam nga ma sëgg ma def nii sëgg banque plié wu muy kii après ma ne ko léegi xaaral bàyyi ma man ma def ko xam nga kii daal ma def ko man si li nga xamante man loolu laa bëgg mu gëm ne que man dinaa ko def mu bàyyi ma ma ne ko man su ma ko bëggul doo ma ko def parce que sama ceinture ni ma sëggee nii munoo ko tekki te neexu ma xam nga mu ne noonu du question dama la forcer ma ne ko sii da nekk di forcer. noonu noonu ñu nekkoon après ça ma ne ko damay ñibbi mu ne ma nag doo parce que fii xam nga doo ñëw ba fii te xam nga duñ bëggee ma ne ko nag nekkul ne que dama la xam rek dañuy génn rek dañ war a bëggee ma ne ko man su may bëggee ak yow dama ko war a sentir du yow yaa ma ko war sax wax ma ne ko mënoon nañ ànd ba man ma dem ba santiir ko def ko te yow doo ma ko wax. kon yow nekul ni da nga ñëw ni rek xam nga wax ma ko ni waaw kañ bege parce que dama ko sentir affaire na ma def ko non non duma ko def mu wax jëm kaw jëm suuf ma dëgër fi ma taxaw mu force de xëcc ki ki ki ba xamante ne kafuma xam nga rek après ma commencé nak andi côté sentimental di kay ne ay dang ma bett genre yoy parce que si nit bi mal xamé man yaakaaruma won ne que yow genre bi nga parce que si si ci ki mala xamé la mhm. après nak mom si la wacc bi may ne non non bu ko gisé non xam nga bul mer affaire yoy commencé di di ki man ko ok ma ngi ñibi mu gungé ma nga bappo waaw est ce que di te ya rek ngeen yam ci lañ yam wallahi ci lañ yam bagage ndaw yek yoy eggul fele mais doon na dem ci bagage ndaw yi ah waaw mën naa ni sax ma ne ma ne waaw mën naa ni sax yegg na si bagage mais yegg si bagage ndaw ça va pas dire que yow da nga a yegg si goroloo bi ah mhm. waaw yegg na ci bagage ndaw yëpp daal non pas yëpp parce que ci souf moo wàcc fa waaw moom foofu mooy bagage bu mag waaw ci kaw rek la yam mhm. yow na foo yam ci man non man nag moom ça dépend yow yaa ko yëngal du man yëngalu ma ko foo parce que man si kaw rek laa laal moom moo doon jël sama loxo des fois di ko wàcce mais man bu wàcce woon sax damay man damay xëccaat sama loxo sérieusement su xëccoon sama loxo wàcce ko man damay koy bàyyi ba mu wàcce ba teg ko man damay damay damay xëccaat sama ba may ne sax xamal loo may dawee danga may daw bëgg a dem kan appui xam nga loolu ndax mënul nag après xam nga ma dem ñibbi depuis boobu nag laa ko gëj a dégg mu toog deux semaines après si la may soog a woo di may ne dama voyagé woon xawma lan xawma lan affaire yooyu noonu léegi dama bëggoon xawma lan su ma ñëwee di ma ne ko yaw maa la ko ñaan moo woote mais du bëggee fi nga xamante ne sentiruma ko damay bëggee fi nga xamante ne kooku man maa ko bëggal sama bopp man maa ko bëgg ma xam ne moom bëgg na ma même su fekkee xaw ma sax ne ma mais moom wan na ma li nga xamante ne man yaa xam naa ne que moom bëgg na ma man foofu laay bëggee. doy na la doy na doy na ma man foofu laay bëggee. mais mbaraan yi duñ bëgg xalaatuñ ko sax fuun sax doo ko am ci man te dinaa lekk sa xaalis. boo dee ba bëgg a bëggee ma xam ne da nga bëgg a bëggee dama lay daaw. dootuma la nangoo mais en général célibataire yi moo leen. célibataire ak marié non non moom nax le moom du yomb. am nax marié moo gën yomb nax célibataire parce que marié mën nga ko ndax parce que du génn guddi xam nga marié du nangoo génn guddi xam nga mën nga leen teg ay dil ay dama am lii ay dama mais bu dee célibataire damaa war a am fu ma war a dem day dem ànd ak yow mais marié xam nga du dem ndax ndax dafa am jabar te marié boko ko bay boko menacer dalay bay bu la bu la bëggee def dara boko menacer menacé du ko def mais célibataire amut lu muy ragal bu muy neub des fois danaan la wax bay tak da ngay xol xalé bo xam vraiment xam nga ma di ngeen mëna and construire quelque chose pour toute une vie lo xamni ni xaalis du ko lal ngoro koy lal et ces choses là lu waji demee bu bëgg tak jabar xam bi retourner nako ko non li ma doon defal lepp man bind naa ko da nga fay ak yoy dina la yobu justice ces choses là bon ce sont des cas xam ne du fi jeex te fii loolu dafa gën a simple quoi ut xale jeeg bu baax boo xam ni da lay jox moonin li nga bëgg ma ngi ca nga koy bëggee c'est plus tranquille moo gën a noppale quoi te loolu nekkul lu jafe parce que nit ku nekk da ngay dox mais am nga sa animé animé journal la xaw nu ñu koy waxee comment dirais-je ku nekk am nga ku la bëgg koo xam ne peut être yow mi lay wér da nga dajeegul ak moom mais si c'est le cas dafay nekk loo xam ne lu positif la quoi pratiquement. ñi dañ ko jàpp ñi góor ñi léegi góor ñi ñoo gën a matérialiste ñi moom dañoo matérialiste carrément. waaw loolu boo ko gisee àdduna moom mooy dox. Mm-hmm. parce que Sénégal léegi dafa am benn émancipation bu fi am bu fi amul woon. Mm-hmm. jigéenu sénégalaise moo mës a jàpp ci boppam ne dafa war a toog góor ñëw di ko defal mm-hmm. liggéey ak yooyu yëpp intéressé ko woon mais àdduna bi dafa wëlbatiku ba jigéen ñi léegi dañuy dem di uti mais bu fekkee yàlla dogal na na nga nekk jigéen ut ba am am problème koo nekkal mais du la jaral dara doo ci bañ dara kanam bu la wóoree ne kii nga ko. te li nga yor muy xaalis mën na ko attiré mais écoutez dañ ciy dem tranquillement foofu la Sénégal toll léegi quoi sama gis-gis. parce que il fut de temps boo toogee ñu ne ku jigéen kii mooy defal ku góor kii dañ naan la may ay loolu mënul nekk. parce que góor d'habitude moom la ñu xamee muy jóg dem di doxaani di pasar pasare di jaay jàmma ñaaw et ces choses là. et puis mbaraan bi tamit li ci li ko gën a accentuer mooy les maires diriyanke yi nga xam ni. maire yi dem ay Dubaay ak yeneen affaire di ñëw parce que 90 vingt dix pour cent yi kenn saytu ci dañu tas nga baal ma nag ci terme bi quoi. dañu tas bëgg ay xale yu frais mais il faut nga leen di nga nga yor leen di leen jox moo si sinon doo jot ci xale yi. kon diriyànke yooyu daal diriyànke yooyu ñoom ñooy wuti xale yi. waa li ci ëpp nag si parce que xale yi di leen mbaraan. li ci ëpp si diriyànke yi moom mooy cas bi nga xam ne moom moo ci ëpp mais nag mosul ay jeunes filles yoo xam ne dañuy gis góor am filingam def tout les moyens mënuñu ko jot mais l'argent ouvre toutes les portes. Mhm. amul bu góor wala bu jigéen parce que xaalis amul couleur quoi. du xaalisu góor wala xaalisu jigéen l'argent c'est l'argent quand même foofu bu leen wóoree ne mën nañ fa jaar pour aboutir à quelque chose dañ fay jaar. kii lan moo gën a bari ci xaalis boo ci mbaraan mi lan kan moo la ci gën a toppatoo daal euh, est-ce que am na ci koo xam ne moom xëpp na loolu baree baree bari. waaw loolu mën naa ne day am mais xam nga lu bëri ça dépend ci nan nga koy identifier parce que lu bëri mën naa nekk junni. Mhm. mën naa nekk ñaari junni mën naa nekk un million mën naa nekk une villa mën naa nekk quelque chose comme ça mais li ma la mën a wax mooy c'est quelque chose de matériel. boo xam ni peut-être bon ce sont des ay cadeaux yu ñu lay jox yoo xam ni c'est pour t'attirer quoi si daal pour nga pour xëcc la des nga ñëw déconner xam nga ñu xool nan la ñu mën a def pour récupérer la waat mais sur le plan matériel toujours. boo demee ba ne mbaraan rek mbëggeel amatu fa quand c'est parce que y a un intérêt qui se présente. intérêt boobu nag moom ngay jéem a sufrutaare di ko développer. ba fu intérêt ba yem rek mu yem fa parce que des fois c'est de l'amour sincère. c'est nga xam ne dañuy mbaraan femmes yooyu. a war a blâmer non je ne pense pas ñu blâmer leen parce que li ñu war a blâmer mooy mbaraan mais du ko góor ci wala ku jigéen ki parce que dafa am benn affaire bu ci lalu boo xam ni ça n'a rien de sincère bu fekkee dañuy waxtaan ci dëgg mais da ngay gis sax koo xam ni pratiquement daf koy def par manque de moyen ay xale bu ndaw dem fii géej alteeru ba jàpp ñëw benn jeeg ñëw ko yor ko di muy lekk xaalis peut-être euh, besoin société bi moo leen contrainte yooyu moo leen jàpp ba ci ñi gëli na ne ñu ñoom ni ñu mbaraane yéen noonu ngeen di mbaraane waaw yow est-ce que mos ko dund lool. kii man mos naa dund loolu ndax man mosoon naa nekk ak benn jël boo xamante ni xam na moom ma dugaloon si moom ah? ah. xaalis booy bi am na xaalis. Ah. te loolu sëy mais dafa dem ba divorce. mais xam booy jël yi am na jël am xaalis yoo xamante ni na nga am caaj quoi na nga entraîné yor tuuti estrom ah. xam nga mën leen service normal. léegi nag service normal boobu nag mooy waral ngeen di lekk si ngay lekk ñoom xaalis. moo moo gis doxaan na. moo ñëw fekk ma fa may liggéey la may liggéey moom loolu neex ko mu ñëw jënd ko toog. sans comprendre daal li may tooñ ñi quoi ni ma waaye doo gaaw a affaire yambar yi nag donc pourtant yambar bi loolu nga gis nii ah. mais au fond yambar amu fa. waaw sans comprendre moom da ngay sóob. ma ne ko non pourtant xool li ma lay wax nii du ay sóob moom ma bu dee dëgg la man naa xam ndax dëgg la xam mun ma jox ma sa numéro bu ma bëggatee dinaa la woo. ndax ma toog samay grand yi yàgg a joow ñu expliqué ma loolu quoi ñu ne ma kii boo ko toppee sa carrière lay fay ndax yi gis nañ ñu ko dund ndax nga duñ mujjee sa après may daw di daw di daw di daw di daw ba mo xamni car carrément man sootuma ci après xam rek mo mudi les go quoi mais ba tay tay sama bëggoon dégg na dégg ji wax ah. gën ñu dak maral ni da facilité lañ bëgg jaay sa doole do ma ñi loolu lañ soxla moy facilité ndax su ne gor gor gi ku gor ki day mbaraan rek euh, ku ko mag la andal wa la plupart lolo parce que dëkk bi mo metti lay ba amu lay liggéey amoo xëy amoo dara ah. so gisee loolu da ngay daw bu faq comme gor ñi dañuy jóg pour wuti jigéen bu am bien sûr amna amna ci nga xamne ñoo rek la dundé loolu rek la ñuy wër. kese loolu la wër. meer bu tooy. meer bu. meer bu tooy. la ñuy wër. waaw ah, fu naan da maanaam jigéen bu naan daal. la ñuy wër loolu la wax jigéen bu naan. moom la ñuy wër. góor ñi ñoo leen ñi jigéen ñoo leen di wër. waaw ah, parce que jigéen xam nga daram lu ko yàq dafa yomb. ay góor ñaa ngi fii da gis góor bu yor oto. yor appartement am kenn xam kenn xamul lu muy liggéey. kenn mësulaa ne lii liggéey kenn mësula ne fii lay xëy dañ koy muy dem ak a ñëw dem ak a ñëw suba ba ngoon jot kenn xamul lu muy liggéey boobu ma ngay demal di di jaay dooleem di ñëw fii jamono biñ ne nii li li jigéen di def suba ba ngoon góor ñaa ngi koy def ndax pour lan bëgg seen poche duuf donc caga bu góor góor ñi am nañu góor ñi dañoo sudaante daal am na loo xamante ni man yor naa ko sama morom yoru ko am na sama sa morom ñu yor man yoruma ko ñu nak lool mooy waral mbaran gi daal kon dal nak d'accord la ni mbaran la mbaraanati la bien sûr mën ta ñak ah. mais nit warul la jël convaincre la ndax xaalis ngay def lo xamni si ni neexul yalla dal jigéen soko mën ta reggal do ko mëna reggé duma wéddi ne musuma ko def xam à l'époque daan na ko def te duma ko daan ça veut pas dire que ni moma ci intéressé xam nga peut-être que dama daan and ak kenn xam nga dem ay instant yoo xam ne ma gis keneen xam nga ñu génn mais ça ne veut pas dire ni affaire de matérialiste wala affaire de bëgg bon moo taxoon ma ko doon def. ça ne va pas daal xam nga. waaw si ban côté. waa ji dala doon daawul defal wala. non non du question la defal yooyu mais demoon na ba nga xamante ne affaire bi commencé woon na ñagas. Hmm. xam nga ma gis keneen. xam nga may ànd ak moom. daal may ànd ak moom mais du question que ni affaire de xaalis moo taxoon may ma dugg ci sérieusement. mooy sama coof bi kii laa bëgg kii laay mbaraan mbaraan mooy lan fii kenn joxatul sa xaalis ci Mali Port. Uh-huh. Uh-huh. waaw loo bëgg gii nag. sa eh, compagnie gii. Uh-huh. waaw sa compagnie gii kenn na joxewu ci xaalisam ci noonu ku lay mbaraan xam nga ko. Eh, waaw nga loo bëgg a sama compagnie gi suñ joxee xaalis après. ah déet bu ma dugal da ca des kañ naka la koy mottali man kañ bu ma dugal ah, ah, ay ko. waaw li ma xam ci mbaraan mooy baaxul te jigéen ju koy def it baaxuloo ndax yi jël ñaari far ñetti far ñeenti fan ñeenti far loolu moo ñu naan mbaraan boo yemee nag ci benn góor koku taxul ñuy wax mbaraan kuko mën nak bayyi tamit nga bàyyi ko waaw dal da nga contre mbaraan waaw man contre na ko mom est ce que musu nga def man musuma ko def nak wax dëgg yalla mbaraan bi dal bari na trop ci dekk bi te liko waral moy ñak gi dal. xale jigéen ni dañu seen kër yi vraiment elles se sentent pas à l'aise ba pare dañu matérialiste liñ bëgg yëpp duñ ko am ci seen parents yi motax tax na dañuy ci biti di accumuler ay far pour ses besoin yi gën a complet daal. Uh-huh. noonu laa gisee mbaraan. est-ce que lolo du dem ba niroog jaay sa bop? ah vraiment mais yeen sayna mën nga marante do joxe sa bop hein. Ah. Uh-huh. waaw. est-ce que mos mos nga loolu mos na la da? Mën nga jël ay mais bo tasee ak ben genre bawol bawol yoy, xam nga mën nga ko nax te do joxe sa bopp. Uh-huh. Ah, waaw est-ce que yow mus loolu mus nga ko def amna na ñoo xam ne yéen ngi yaa ngi leen nax te do joxe sa bok en général les 80% vingt pour cent mhm. waaw comme dal amuñu benn far daal. amuñu benn far ndax benn far dañ ko xeewil. dafa xeewil da c'est pas à la mode. Mhm. waaw euh, mais est-ce que mbaraan. day cool parce que yenn saa yi yenn saa yi def kenn ñew ñëw tase fa ak keneen nga am problème ñu nekk fa di xulo affaire yoy ba kenn ki sax mën na la bay mhm. waaw nga ñak ci kenn wala affaire yoy daal. gars est ce que mbaraan mi yaakaaroon ne gars yi dañ ko def liggéey fi mu liggéey même moi loolu laa xalaat parce que mbaraan boo ko continuer di mbaraan di mbaraan en général xam nga di nga ñëw ba léegi di nga nekk euh, genre kii yooyu parce que boo nekkee bëgg benn personne nga bëgg génn plusieurs góor à la fin dañ dañ nan kii vraiment put la. su ñu amee ñetti gel dañuy seet ka lañ ca gën a mën a jox cadeau ka lañ ca gën a mën a jox xaalis ñu ànd ak moom. waaw. kon daal mbaraan mi mu nekk wor kon dal mbaran la ci bi bor ak ci be bor ci ñaari côté ci góor ak ci jigen mais nak li dit góor jigub jigen jigen dafa wara yam ci benn góor waaw ñuy and sen and bay li ci bu fekke yalla dogal na ci sey ñu sey su ci dogal sen ku nekk dox sa dox mo gën mbaran mbaran dara jaru ko fi yàq sa der waaw lu wóotee mbal jigen bi mbaran ak ak caga bi ben la daal caga bi mom mo am sañ-sañu génn di cagatu wante kii nekk ci biir këram di am ñetti far ba ñaari far mm-hmm. ah kooku tamit cagado luxe lañ ko mën a tuddee. Eh, am na ñu mu arrangé comme am na ñu mu arrangé wul mbalaan bi am na ci ñu mu dox comme on dit comme am na ci ñu mu doxul quoi. Mm-hmm. ah je dirais pas non je dirais pas si ça dépend ku nekk sa point de vue nan nga jàppee mbaraan lan mooy mbaraan ci yow. Mm-hmm. waaw pour yow lan mooy mbaraan. ah yaa pour man lan mooy mbaraan mbaraan mooy par exemple ngay génn ak avec plusieurs personnes à la fois mën na nek euh, seulement physiquement mu nek euh, sexuellement pour le dire mën na nek tamit matériellement financièrement waaw voilà léegi ça dépend ci nan nga ko jappé nit mën na génn ak ñaari góor ñu ne mi ngi mbaxaan parce que elle est pas elle est pas fidèle mën na nek nit tamit pour xaalis ñu ne mi ngi mbaxaan parce que voilà et avec la personne pour l'argent mais la plupart ah pour l'argent là. Hein. merci beaucoup Je euh, si yow nga c'est de la prostitution. Parce que des fois, tu, tu te dis que tu de Madame Baran, euh, tu commences par là, tu commences par un homme. Il euh, y aura des trucs, des tripotements. Des fois, vous passez à l'acte. il te donne un petit 50 000, 100 000 francs. Tu te dis, je vais aller voir un autre. Ça va se passer pareil alors c'est de la prostitution. Mm -hmm. ouais. Non, c'est pas joli, joli. Euh, de métier, mais c'est pas quelque chose de bien. <laughs> Parce que moi j'ai toujours été fidèle. C'est sûr, ça Sûr, oui, certain même. Alors, nous avons parfois mutual. Akam naka lay ciolé mbaran mu ciol ah, man Moi, sincèrement xawma ban forme mbaran nga bëgg wax pour nga dire mbaran mu financièrement financièrement ah xale góor léegi dañ fi nekk euh, euh, comme on dit mbaaraan leen yombatul du moment que y a des gens dañ lay wax euh, dañ lay wax loo xam ne nekkul ci ñoom walla ñu wan la loo xamante ne ils ne sont pas financièrement yow nga gis ci wax nga cee mën a lekk alors que voilà doo ci lekk dara soit xale bu góor bi dafa yow doo ci lekk dara soit xale bu góor bi naar rien par rapport à lim la ci lekk dara kooku col d'après moi c'est ce que je pense. waaw euh, si je comprends bien gars yi léegi dañuy yeewu ci mbaraan bi góor ah bien sûr personne n'est fou ah nee on est au 21e siècle kenn Dafatoul quand même ah ils ont intérêt à yeewu sinon voilà. kon daal ku ñu mbaraan yaa ko tey. man de d'après moi ku ñu mbaraan yaa ko tey am na ñoo xam ne ndax xale comme on dit mbaraan leen dagan na du moment que dañuy doxaane seen khalis ils mettent au devant Bala, boo gisee jigéen Bala nga naan ko par exemple noo tudd da nga mangi naan maa diw man maay doomu diw mangi ngi dëkk Almadi pour voilà influencer la fille d'abord kooku buñ la mbaraanee tu l'as cherché ah la fille pour man n'est fautive en rien dans cette dans cette relation. léegi bi ma mayee portable bi mosuma ko wo. ma ci woo yeneen mbaraan yi jour mu xëy rek takal may pot taxaw sama buntu liggéeyukaay ñëw nag daan ni ma tey moom damay ñew pour nangu sama portable. ma ne ko duma la ko jox wax ji bari bari yow doo ma woo maa la sagal jox la portable boo jógee di woo saf yeneen mbaraan yi te man doo woo lu tax loolu léegi nag mun nag histoire bi ñu dem ci ba police ba ma dem porter ko ci plainte léegi nag mu ñëw xas ma amul lu ma waxul wax na ma ba ne cagalaa sax te war na yàlla du ma caga xam nga rek mbaraan moom baaxul bir nee ñu mbaraan ñi mbaraan ak caga yi ñoo yom est ce deug eh lool mom amul mbaraan ak caga différent na bokk ñu sax yoon. waaw waaji lutax nga nga doon lek xaalisam jël portable am te bëggoo ko. waaje ma bëgg moma top sonal ma may ma ko te ñaanu ma ko. Mhm. te jigen ken amul njëgam nit do ko may ba paré diko nangu. Mhm. waaw. wa léegi waaji est ce que lam daan daan ko ko fóon. musuma ko fóon. musuma mhm. ànd ak moom feet sax bu jotee. damay dem ànd ak keneen bàyyi ko. Mhm. waaw léegi nag nit ku la bëgg du la def loolu. waaw léegi moom loolu la mer. loolu nag moo ko merloo. Mhm. ba pag yi rek a ci mujj bi nu pagee ba pare la ñëw nag. Mhm. naan ma bi ñu pagee ba pare la ñëw mu ne ma yow di maa ngi loo xaar ñëwoo ci la histoire bi na commencé parce que xam naa ci la retrouver que ne man bëgguma ko keneen laa bëgg. mais wax naa ko ba sonn mu bañ. sa yeneen mbaraan yi nag noo noo daan doxalee ñoom. sama yeneen mbaraan yi ku ne la rek. maanaam boo gis rek ak système la. Mhm. ak nanga koy defee. Mhm. ci heure ci temps. kon daal yéen ñi leen di ñi ngeen di maraan ay dox ngeen leen jàppee. ñoom ñoo def seen bopp dof. moo tax ñu jàppe leen dof mhm. waaw. nit booy liggéey jëriña sa ndey ak sa baay mais jo soo jëriñuwul sa ak sa baay jigéen ñi lekkal la ko jigéen ñi moom loolu rek lañu ci nekk mbaraan rek. waaw soxna si yow est-ce que mbaraan moom. waaw lu tax ngay mbaraan. ah léegi jamono bee tas. Mhm. nguur gi metti kenn mayatul foog mbaraan mi dox. Mhm. waaw. waaw yow naka ngay mbaraane. Ah, sama waay fa ñuy mbaraan daal ndax il nga am fii benn am fii ñaar am koo bëgg rek teg ko ci el bi xam naa dinga nga mbaraan waaye dinañ la du wàññi dara. waaw yow yéen mbaraan mi yow naka ngeen koy doxalee parce que est-ce que yenn saa yi du tool parce que gaa yi nee nañu góor goo fi mbaraan mu mbaraan. waaw loolu moom am na waaye nag euh, fa ndox daan taa boo demee fekk fa tëpp tëpp mu nga mbaraan te dara du la ci fekk yow yaay xam ni ngay defee say mbir rek. Mhm. waaw. célibataire ngay mbaraan wala. man du ma moroomu célibataire romb naa célibataire yi. Ah. dañoo yoru lu bari. bëgg laa fa toog toogaay bu yàgg te loolu laay bëgg. Mhm. waaw marié yi nag nuñ koy defee. waaw marié yi moom seen numéro yomb na. Mhm. waaye célibataire daaw maa ngi ñu ma feer. waaw waaw yow mosoo mbaraan mu cuul amul benn jour boo xam ne da nga euh, cullee carrément. waaw loolu moom mënul ñàkk. waaye nag moo ko àdduna ànd moom mbaraat mi ànd. Mhm. waaw yëpp rek ci rythme bi la. ci rythme bi la waaw. jigéen ñi dañoo mbaraan ba sonn amuñu ko far boo xam ne danañ leen jox dangay nekk di mbaraan ak ñoom jigéen ñi dañuy mbaraan góor ñi dañuy mbaraan. yéen naka ngay mbaraan yow. ah mbaraan bu fekkee da nga am ku baax nga dem ba si jékki-jékki mu changé dangay dem seeti keneen koo xam ne rek mën na laa yor waaw. te yéen il faut ngeen ànd ak koo xam ne mën na leen a yor. waaw parce que dëkk bi dafa métti de mhm. waaw. foo booy ànd moom da ngay ànd koo xam ne ne saa waay mun na laa régler yenn problème yoo xam ne dana la ko teggi mbaraan da mooy eh, nga am fii kenn am fii kenn boole ñaar ñaari góor loolu de mooy mbaraan waa nga xool si koo xam ne sa intérêt ci la nekk rek nga dem fa parce que ñu dañ si nekk rek di xool rek koo xam ne ne moo ñu mun a yor xale jigéen lu ñuy mba lu ñu tax ñuy mbaraan mm-hmm. peut-être parce que la manque de moyens moo leen ci gën a dugal duñu liggéey lu ñu léegi lu ñu soxla rek ko ci góor yi ñu fajal leen ko. la majeure loolu moo leen ci dugal. dañuy am benn far di ko mbaraan ou bien mbaraan mooy am far yu bari. mbaraan mooy am far yu bari. am benn far muy génn ak yow mu di la defal lool du mbaraan am ñaar ba ñett mooy mbaraan. Mhm. waaw. waaw ah, day am kenn koo xam ne moom lañu bëgg. waa dinañ am ku ñu bëgg mais la majeure partie ku ñuy bëgg du leen mënal dara soo ko defee nag ni complé ñi koy complété ak yeneen góor. Mm-hmm. waaw yeneen góor yooyu est-ce que euh, ñoom kan moo ciy gagné. kan moo ci ciy uh-huh. ñoo ñu ñi joxe seen xaalis dañuy perte. d'habitude ñi joxe seen xaalis duñu perte jigéen ngay perte. ñi joxe seen xaalis. duñu perte jigéen bi mooy perte. waaw ndax ku koo lekk xaalisam dina am neneen nu mu demee. Mm-hmm. waaw. wa colle bi naka lay demé ah colle bi nu muy demee. Ah. mooy nga wara dem ci kenn mu war la jox dara. bala la jox dara jox il faut mo ngeen def dara pour mu jox la dina la def lim lay def ba paré té dula jox dara. ah su boba coll na. su boba coll. kon yalla ni yalla musal ci mbara ci mbara na xari quoi. oui en quelque sorte. mbaraan mi moom moom moom intéressé wu ma moom rek laa ah. a -hmm. nga ni nit ko mané maran bi mi ko nit koo bëggul dang koy baye ak alalam mu dem mhm. waye do wut fi safarte ko fi dali bi moy sama kan xeeñ mom la bëgg dali teg fële sa ben daline bi moy sama maran fo tourner rek moy jënd diwlin yeeg tamaate kër gi ak joxe ndé kër gi ndoxaanu légui sax moma sof man ndaxte jigen bo ci doxal légui ya yor kem yor añam yor yaram pour lan seni nday ak seen bay lu ñuy jëri ko ci ko dundal nga arrêté ko mala damay mbara wa ndaka ngay la xawa am na maire yoo xam lo ñooñ mbaaraan loo seeni doom ndax ñoo ko wax doom yaa ni ñàkk botay gona dem ñàkk botay wa xala yo sa meen dafa tour sa lolu yow mano am dar mano nangam bo defé xale bi na ah, sama yaay mo dox ni ko na dem outil di indi boko ko ci mbalaan mu ko ngut ben far ñaar far ñett far ku ne di ko jox loolu dina yam wa mais eh, su su ko ku ne dee jox mbaadu mom du jox ku ne ah am na ci góor legi de mom fu mu ne ñu jox duñ la jox ci neen suñu xam dañ la jox waaye fon du len doy dañ dem dañ dem ba jeex dem ba jeex wala ndu lu ne ah, dem ba jeex be tas rew mi mo moo rew mi ndax bu ne dañu yemu ci dañu yemu ci ci ci leena yàlla wërsëgale ndax ba amé ko la bëgg yam ci mom boo fa xasaloo sa mu boo biiree mu daal di wa ju fekk yemoo ci mom ñaar ñett dugg ñeent dugg su su su su ëmbé mu daal na ah ñett ak dugg du man rek ndax yamul ci man né wayama yemee ci kenn boo bu la ëmbalee daal la tak par exemple man nga man jigéen mën na la set mu nekk koo jox confiance nga gunge ko mu tëddi hmm? yow nga génn am benn affaire boo dem réglé ji sax ñoo fekk mu nekk ak keneen uh-huh. waaw man man dal na sama benn copain uh-huh. sama benn copain euh, mës na am benn euh, gel boo xam def nañu cinq ans ñoom ñaar dañu yàgg nag waaw mais bon ñun nii daan nañ ko wax sa gel bi bon bu am confiance yi moom parce que nii la demee nee la demee xam nga yooyu neexul gëm quoi boo bëggee doo gëm ben jour mu ñew xalé bi sétu ba ay 10 h mu nek kërëm ay 22 h quoi mu gunge ko mu ñibi sama copain am lu mu faté won euh ci ben auto genn di jël taxi ah gel bi romb ko and ak benen gaayen ci ben auto te gel bi tag daf ko tàgg pour tëddi xam nga déjà koku mënul am confiance. beneen bi ko nek ci benen auto nek ci benen auto ak benen gaayen. dem yonam si benen nekkin nak nekkin bo xamantam neexul ci xol. waaw comprendre nga léegi xam nga yooyu itam doo am confiance si nit. dañ ko war a njëkk xool fan la sosoo ba pare quoi balaa ñuy wax ci mbaraan bi. fu mu sosoo. mais man mbaraan bi dama ne ci parents yi la sosoo ko ci maire yi. Mm-hmm. par exemple da ngay gis maire bi nga xam ne day gis benn doomam ñëw par exemple toog ba toll ci âge sëy am ko góor ko ñëw di ko seet si dem ba ci biir gis ne doomam bëgg na ko quoi mu laaj ko ne ko yow kii lan lay liggéey yaa ngi gis. mu nekk ah yaay kii day jàng wala instant yi liggéeyam taxul quoi day nekk li foraatu affaire yooyu nga dégg mu ne ko bàyyil ma kii wutal ma ku nga xam ne am na xaalis mais sa doom boo nekk wutal ma ku nga xam ne am na xaalis mooy neel sa doom dama cagatu quoi léegi dafa fekk ko kooku après daan ah sama yaay lu mu wax tamit dëgg la parce que day gis ne yaayam da ko wax luy yoon dafa fekk ko alors ko yaay da koy sukkat léegi day ñëw tey par exemple bu ñëwee ànd ak yow gis na yow may nga ko 5000 suba mu romb keneen dox nii waa ji ñëw yore otoom par exemple gaare ne ko fan ngay dem mu ne ko bërëb sàngam laay dem mu ne ko kaay ma yóbbaale yóbbu ko ba ci yoon bi gaare daan ne ko am 10 000 yi nga paas mu ne borom 5000 bi yoratu ko mais bàyyi mu boole ko ak borom 10 000. bon trois la am ah, kan nga ci gën a bëgg. waaw ah, ki ma fi gën a bëgg moom new fi. waaw new Sénégal. ñeneen ñi ci des ay xanaa dañu am xaalis. waaw gaa am nañ xaalis. yaa ngi leen di seeti. ah maa ngi di seeti kay. waaw naka lay day demee parce que gars neen ku leen mbaraan ñu mbaraan la. non non kenn du ma mbaraan maa leen di mbaraan. c'est sûr est-ce que di nga leen foon. naa leen foon kay. kon kay ñu. fa dëkk bi jigéen ñi ñi ëpp dañuy ndax nga am sa benn far bu bëgg a fee dem si keneen koo xam ne bëggoo ko nga génn ak moom loolu la ñuy oowee mbaraan ba pare ànd ak moom te bëggoo ko di séntu si moom leneen loolu la ñuy oowee mbaraan. kon lan lan lan lan lay séntu si moom. di séntu lu benn xaalis wala intérêt wala leneen ak leneen. waa ji moom lu mu lu mu bëgg rek moom na ko am moom moom góor moom bu ñu ko naxee si loo xam ne bëgg na ko loolu du nax ñu jigéen ñi ñoo naan damay nax ku góor ki mais loolu du nax. ko jigéen ku góor ki bëgg ñu nax ko si loo xam ne moom bëgg na ko loolu naxuñu ko ku jigéen ki mooy nax boppam. man damay mbaraan waaw noo koy doxale ah xanaa far nga am instant bi man cinq waa léegi eh, safari ay yan genre far la ay commerce ñu am xaalis wala ah waaw ñëpp am xaalis ndax xaalis a tax ñuy maraan mais am kenn koo xam ne nga bëgg waaw am na koo xam ne bëgg xanaa loxo jëndul ginnaaw ah non du question loolu sax mais mbaraan ci boppam jigéen ñi ci ci ah, lan bi ak kat bi ak bi. Hmm? du benn parce que mën nga boole ñetti far ñeenti far di leen maraan te bokkul ak caga caga moom day def liggéeyam ñu xam ne caga la nëbbatuwul làqatuwul caga la mu te mën ngaa mbaraan te doo yegg fi caga di yegg. moo de gars yi nee nañu mbaraankat bi caga de luxe la caga bi ci kër gi ak bi ci mbedd mi. xëy na loolu ñoom seen gis-gis la bay mën nga maran ta do yegg fi caga yi yegg. Nah, yow ba dul lambaran yow maran kat. hmm yow ba dul lambaran bal bala ñu ma def ma def len ko. noo noo ngay defé parce que yow est ce que ki ngay maran ding ko fon ah ça ah, dépend. lan moy maran maran lu ko defé moy jël gor jël gor di rek xaalisam te nangoo xam ne jigéen kon boog sama gars yi tey xam nga temps yi moom tey dañuy gunge waale ak gars yi jaaykatu xar yeeg yooyu dégg naa gars yi dañuy dem ba ca daral ba sax di mbaraan jaaykatu xar ya ba xar mu war a dar deux cent mille nga mbaraan ba ñu jaay la ko cinquante mille waaye day gars yi de jaaykatu xar yi de sonn leen sonn goo xam ni. leen mbaraan tailleur am na ci ñaw boo xam ne nañ ko fukki fukki nit fay nañ gis nga yéen lu tax waxu leen yéen ci mbaraanu góor ñi mbaraanu góor ñi ci leen ñi nu ñuy mbaraane ñu ngi ci ci bi ñoom Alay Mbaye góor góor ñu nu ñuy mbaraane. léegi góor dañuy mbaraan. góor ñi nag ñoo dàq mbaraan jigéen ñi. ci naka noonu. góor ñi. Mm-hmm. ñoo dàq mbaraan jigéen ñi. Mm-hmm. ci naka lañ koy doxale a ah, ñoom su leen leeree ne yow mii da leen ne ci ñoom nga yem. Mhm. te ña yemoo ci ñoom. Mhm. ñu ñëw sa kër fekk fa keneen. Mhm. wala nga dem seeti leen sa téléphone sonné muy nekk mu nekk keneen. mën nañ cee bañ a boole wax. ñoom tam dem seeti leneen. gëm loolu la ne kese yaa fi nekk fekk yow kese nekkoo fa. góor ñi da mbaraan jigéen yow mos nañ seen mbaraan xam nga la. mos nañ laa mbaraan. man mos nañ maa mbaraan kay. <laughs> ci noonu la la mbaraanee woon. xanaa ni ñuy mbaraanee ñeneen ñi bàyyi na ci biir rek bàyyi ma ci biir. déedéet baan góor du wax dëgg. Ah. nga ci ñi ma ko sañ a wax. déedéet góor c'est sérieux góor moo gën a garaaw. nu mu lu góor def. non góor du wax dëgg gis nga man euh, loolu ah. li ma gën a dimbali nag ci sama àdduna. kon maag Baara ak monsieur Ndao nii du. non c'est sérieux li ma gën a dimbali sama àdduna ma loolu ci la bokk gis nga. góor war nga cee ruus a si ñi ma ko sañ a wax. Hmm. sañ nga ko wax monsieur Ndao non non Moussa eh Moussa Ndaw moom. man nag sañ nga ma ko wax Ndaw moom dafa sérieux. man boole ah yow kilifa gu toll déedéet ah, baan loolu moom ñeme ñu. baara moom wax non moom macha allah moom. mais dalul lool sax ku ne góor baax na sa baaya tax. waaw lu tax nga wax lool. parce que góor ñi ñoo dàqa mbaraan jigéen ñi. ah ñoo dàqa mbaraan jigéen ñi te nu jigéen mel góor a ko ko mel loo. Ah, lu jigéen def góor moo ko ko def loo. ba may ne ni góor ñi ni mbaraane yow mami ni góor ñi mbaraane. Euh, non xam nga par exemple gis nga góor. Hmm. da ngeen naan jigéen moom mooy euh, jigéen du bëgg góor mooy bëgg. Hmm. mais non non man dama gis ne jigéen moom ku a mën a bëgg góor. Hmm. xam nga ñun ñii buñ dee mbaraan sax dañ dañuy gaaw a jàpp en général tem ñu jàpp ñu mais góor moo mën a mbaraan normalement ba mu neex. góor nu muy mbaraane góor muy mbaraane ci côté yu bari. am na góor ñoo xamante ne ñoom euh, kii lañuy la ñuy mbaraan. diriyànke yi. les grandes dames. Mhm. am na ci ñoo xamante ne sax dañoo marié ba pare dañoo am jëkkër. Mhm. ah mais dañuy bëgg yenn jeunes yi te en général góor ñi mbaraan ñëpp ci ñi ma ko sañ a wax ngeen baal ma nag ci terme bi ñu ñàkk jom tamit lañu. Mhm. sawaruñu ci liggéey. amuñu jom duñu góorgóorlu amuñu xëy. dara bëgg teg lépp ci jigéen ñi dañuy dañuy entraîné ba jàpp se ba jàpp. Hmm? mooy gigolo yi. waa gigolo yi ah? am na ci tamit góor ñoo xamante ne am na ñuy liggéey ñoo xam ne dañuy mbaraan am na góor ñoo xamante ne tam aussi nitu intere lañ non am na góor xam nga dafa weex bët góor dafa doy góor yaakaar na ne lu oddu rek moom la oddu góor dafa weex bët dafa weex bët dafa da am sa xale boo bëgg fële hmm, hmm. nga gis keneen peut-être forme <laughs> lu odd ñun la odd nga gis jigéen ñi lu góor ñi la odd nga gis keneen nga gis Eh, nga ne i xale bi baax na mhm. kii de moom xale bi nga ñëw wax ko waxa waxa wax te fekk dara gëmuloo dara ci li ngay wax loolu mooy xemmeem dañ lay xemmeem mhm. gëmuloo dara ci li nga eh, ci li nga koy wax yaa ngi fexe loo am ci moom boo demee nag ba xam ne lii mu kii munoo am ci moom dara après da ngay bàyyi parce que bugguloo ko woon pour mbaraane ji ko moom nga mhm. am ñoo xamante ne dañuy mbaraan pour xaalis amuy koppar waaw waaw pour xaalis am ñoo xamante ne dañuy mbaraan parce que bugguñu kenn góor ñi bugguñ. waaw bugguñu kenn. bugguñu kenn waaw nañu. comme ñun ni ñu mën a toogee nii reste tranquille mhm. ñoom mënuñu ko. Mhm. góoxu ka si cadre yu bari bari lay mën mais daal xam naa ne ñi ci ñi ci ëpp moom mooy góor ñu ñàkk jom ñi ngeen baal ma ci teex ma bi mhm. góor ñu ñàkk jom ñi ñu liggéey sawaruñu liggéey war mbaraan voilà voilà ci góor ci góor surtout même ci jigéen ci ah. góor sax te gis nga jigéen ñi ni ñu amee système mbaraan góor ñi noonu lañ ko amee amati ñoo xamante ne nii ci góor. Mhm. bu ñuy mbaraan ñaari numéro la am ba ñett. <laughs> maa la wax lii ñaar ba ñett. Mhm. gis nga boobu. Mhm. du dem ca kër ga. ca bureau ba lañ koy baax. sëb cëb ma ne la. cëb mi ngi noonu fa lañ koy ba mu fanaan fa. bi nga xamante ne nii nag joxuñu ko gel moom moom la ñuy yóbbu ca kër ga bu ñu wàccee teg ko. madame bu jëlee xool du gis dara. war a xool. la lay xool war a xool kii trouve man nangu ma xool. war a xool rek moo tax ñuy xool gis. mais am na ci ñoo xamante ne dama ne la bu ñuy mbaraan. Hmm. ñaar ba ñetti numéro la ñuy am. góor ñi ngay wax de. góor ñi góor ñi waaw. benn numéro bi. Hmm. ca bureau ba lañ koy bàyyi du dem kër ga. atelier ba day wax atelier ba. kon bokk. Hmm. <laughs> mais mais mais góor waaw mais lan mooy intérêt góor guy mbaraan la moom lan lay wut góor gi su dee mbaraan lan lay wut. Euh, euh, ndooy wax naa ko sax même jigéen rek. moo tax mu koy mbaraan. doo kooku mbaraanul. plaisir plaisir plaisir xam nga mbaraan. Ah. Eh, mbaraan pour am dara. Euh, ak plaisir xam nga yéen da ngeen di mbaraan pour xaalis. ak plaisir moom tam day mbaraan pour am dara. nañu dégluwante xam nga mbaraan. Mhm. dafa am taxawaalu am. waaw. Mhm. Mhm. mbaraan jikko la. taxawaalu désir la. damay dégg ngeen di wax xaw jigéen ji jaay boppam nu ñu koy woyee fii ni Sénégal. day jaay boppam. jaga jaga jaga waaw jaga waaw kay gàccaa waaw waaw kay waaw kay noonu la gàccaare noonu la waaw xëy na wala soo demee Europe wala xiis mbàcc rek waaw maa nga dem dans les pays développés xam nga lu ñu leen di wooyee des femmes de luxe xanaa xamoon ne jigéen ju jaay boppam Afrique Afrique rek la ñàkki valeur mhm. jigéen juy jaay boppam Afrique kese la ñàkkee valeur am mhm. soo demee Europe. Hmm? dañ leen di woowee des femmes de luxe xam nga ñun ñoo leen di jël. Hmm. ñi nekk ci fonction yi gën a mag. te ñooñu titre lañ koy def ñu dégg leen ne ñoom ak jigéen bi dañoo nekk. Hmm. jigéen bi gën a ñàkk fayda Europe di jaay boobam. bala ngaa seq ak moom dara di nga ko fay cinquante euros trente deux mille cinq cent. fii day deux mille cinq cent mille ak cent dix. xam nga Sénégal lu fi nekk. waaw. secteur bi nga xam ne c'est que fii nag sooy dee def loo xam ne ñun loolu du suñu cosaan du suñu aada xamuñu ko. Eh. moo tax lañ cay am du bari. moo tax luñ ci am jël xam nga moo tax yàlla nañu yàlla. gën a diine. Mhm. Sénégal day dëkku diine suñ na diine rek bàyyiwuñu benn diine te xam nañ ne inna diine na lislaam lool moom dañ ko gëm te loolu. loo fiy def te yàlla àndu ci rek du barkeel. gis nga dëkk diine yi nañu sant yàlla. Mhm. surtout lislaam l'islam dafa am lu muy kikodon, ki ko doon ba ci loolu nga wax jigéen boobu di jaay boobam jigéenu jullit dëgg da ko jombu. du ko def mhm. da ko jomb xam nga rusu ko daf ko jomb mhm. waaye danoo bàyyi loolu di ko def ci biir kër yi d'une manière clandestine mhm. waaye waajur yi ñoo ci gis nga waajur bu am fulla xam nga man sama wax ci débat bi dama koy centré ci biir parents yi parent bu am ful am li ngay bëgg li ngay bañ mhm. doo bàyyi sa doom muy dugal fukki góor ak juróom sa biir kër mhm. mais damay jékki-jékki ma ne ma ne ma ne est-ce que paa yi juma ji ñuy dem kurus gi maire yi seen muraay gu rafet gi seen doom ci ci kër gi fukki góor di ko seet si ñu muy dugg ko génn lan la lu mu doon lan la ak di ñëw heure bu ne ak di ñëw heure bu ne sa doom di génn heure bu nekk mais qu'est-ce qui se passe mais nag day laa la xamal ci jaay sa bopp gi fii góor ñi ñu ci bari dañuy ay ay ay ay ay gàccaa lañ de. foofu nag li ko góor guy jaay boppam gis nga euh, euh, euh, dafa bari de. waaw gis nga góor guy jaay boppam. waaw bari na de. est-ce que xam nga li ñuy wax xaju ndoxaan. Mm-hmm. groupe xaj boo gis benn si nekk. Mm-hmm. jigéen. Mm-hmm. fukk yëpp góor lañu. te xëy na kenn ku ne bala ngaa tëdd la la war di ko def. am déet góor suy jënd te gisul kuy jaay day tëddi. am xam nga la moom gën a métti ci réew mi. Mhm. waaw. xam nga non xam nga la moom gën a métti noonu nit dina jaay euh, nit dina bëgg a jënd te borom jaayul mu jóg ñibbi. Mhm. nit dina bëgg a jënd. te gisul kuy gisoo loo jënd. nit yor na xaalis ba tàyyi te li bëgg am ko jaay te ah. gisuñu ko jënd duñu. jigéen yi Sénégal jigéen ñi ñoo bëgg lu yomb yomb gi mooy lan. Mhm. mooy que ne góor la yomb waaye lépp lu fi jigéen def rek. góor ko ko def loo. su la góor def loolu bon doo bañ. Ah, mais nañu bàyyi wax yooyu. Mhm. ay jigéen lu mu dugg suba ba ngoon rek. góor a ko ci dugal. da koo nee non Moussa Ndao non Moussa Ndao non taxaw non non non non damay yeggali lool. non dañuy leeral rek nga def dañuy soo ma trahiré soo ma defee ma métti. yow non fi nga ko teg tamit fi nga ko teg tamit du foo dafay yomb. bon d'accord mais su ma paree jox xam nga la moo tax ma ne jigéen ñi dañu war a bàyyi lool mooy que ne quelle que soit histoire boo mën a dund góor. Euh. lu lu la mën a def ci sa àdduna mm. leçon la. tiire mhm. ko ci nga avancé. waaw sa mais l'ensemble des erreurs dans la vie moy constituer expérience. Mhm. expérience mënoo ko am ci ay classe mhm. mënoo ko am ci ben bureau rek mënoo ko am ci ben école rek. expérience moy lañ la jangal sa kër ga muy éducation de base. la nga jang ci école bi ak li nga dund. loolu mo nek expérience de vie soo dee nit. waaw nit la waxal ñun. ñun nit ñi la ñuy waxal. xam nga waaw légui mu melni kon jigen bi faible. les mhm. femmes sénégalaises. Mhm. les femmes africaines d'une manière générale. Mhm. elles se sentent trop faibles devant les hommes. ok mais ñu trahir nous jëkkëram peut-être loxoom jotul ginnaawam. Euh, yëre xale yi xar ma bagage yooyu def ko problème pour def problème ndaw si. mu ni xaaral ma seeti sama càmmañ yi càmmañ yi mooy ancien faram yi. ancien far. ñaa nga daan baraan nga bëgg a dem yow yaa ngi ci buum nga ni xaaral ma dem seeti leen pour ñu jàppale ma. kenn ku ci nekk xam nga fa appartement am nekk wala fa nga koy fekk. nga woo ko téléphone nga woo leen téléphone di dem ci ñoom. ñu lay jox te gars fii nii. segam eh, bàyyiwu ñu jabaru jàmbur bàyyiwu ñu kenn. Mm. mais loolu noonu lañ ko gisee. tour de table. gis nga <coughs> euh, ñooñu ngay gis noonu. ci sama càmmeñ sama càmmeñ yi la ñuy dem. Mm-hmm. Matar Seck Mboro doon na wax ne. soo bokkee teg amoo loo tege dangay ngay tegoob sëb sëb sër daal di teg boo fekkee sa càmmeñ mu teg la soog laa jox loo tege. <laughs> mu ne mu ne lan nga ni. da ne soo soo bokkeeb teg amoo loo tege. Hmm. dangay tegoo sëb sër daal di teg seeti sa càmmeñ mu teg la jox la loo tege. xam nga. Euh, boo demee lu lay teg. Ah, euh, xam nga da dégg ñu ne la. sama fas bi tegu na. <laughs> sama fas bi teg nañ ko tegu na. léegi nag yooyu noonu sama càmmeñ yooyu. Hmm. sama góor yooyu. Hmm. ngay dem di seeti. te nag. amna lu gars yi yàgg wax de ñaar ñu minante pour ñu bayante problème la. ba ci sey bari na ci xel mu ñu yarul dafa doy bu ñu yaron sa xel do seeti ben chamagn da nga nan aw ma ko dama koy muñ. ra joxal micro bi jeyna mhm. ba ara merci joxal micro bi jeyna wala li baara wax ni deug la. Mhm. xamala moo mhm. base bi ñi nekk ci nga doylu man gëmuma nga am jëkkeur naan sama càmmiñ. wala tëbaski jot wala korite nga dem naan sama càmmiñ nit dangay ngay doylu. ah dañuy dem ñoom Xadi Mbay ñoom Xadi Mbay am. Xadi Mbay ma nekk ca Xadi Mbay tëngëj la ne. da ngay boole ñàkk ak am <laughs> mais tabaski ñëw na. Mhm. nga ne xam dem sama càmmiñ bee. Mhm. jóge fa dem fee. Mhm. bu yàggee nga am ay far. dangay am jëkkër am far. ñooñ ay faram lañu woon. ay mu ngi noonu nag. waaye xanaa ne ko càmmañam mu mu mu mu. càmmañu la am soxna ñoom ñoom la. bokkul am jëkkër ba nekk ci. néegu sëy càmmañ daal ña nga bokkal ndey ak baay nga bokkal baay la. soo ko amul comme li tonton Baara wax. am ngay jigéen yow mii nag. yow yow yow yow Moussa Ndaw yow Moussa Ndaw. càmmañ daal amul ci néegu sëy waaw amul ci néewu sëy yow gis nga gis nga su fekkee càmmañ la boo xam ne tey jii tey jii euh, tey jii euh, euh, nu mu tuddati mami mii wala wala wala kii nii war na mën a ñëw nii ci sama càmmañ seq nañu émission bi seq nañu jàmm non non non non xoola man je suis contre man ah. su ma amul sax jëkkër peut-être dinaa xaw mën naa la acceptel càmmiñ mhm. mais pour man boo amee jëkkër te loolu loolu sagaloo sa bopp sagaloo sa jëkkër mhm. Mhm. parce que loolu di nga xaawi sa sutura jëkkër mhm. te man iñaane naa man mhm. man de iñaane naa nit dafa war a iñaane mhm. yow nga sëy nga sëy ak sa jëkkër di dem say ex sa copain ñu lay xamal yow si sa biir ménage loo am ak loo amul nit taxawal taxawal sa ex la woon man ma gis nga nit moo war gis nga yow monsieur Ndaw sois yow un peu plus sérieux s'il vous plaît xoolal jigéen buy sëy moo warul accepter. xaritoo ko ak góor di càmmiñoo keneen. sama jëkkër mooy sama xarit mooy sama confident ah mooy sama jëkkër mooy sama frère mooy sama lépp ru da nga war a sax ruus yow nga am soxla nga am benn soxla bi dem si sa propre frère wax ko ko. bu fekk masak nag ancien. parce que bu fekkee da nga cee déggoo ak sa jëkkër nag. non loolu doo ci wax kaak sa jëkkër nga xool yow boo ci déggoo ak sa jëkkër sax sa jëkkër bu moom bu amee matadi. Hmm. gu toll ne moom mu lii yow nga am mat gu toll ne. Hmm. parce que jëkk jabax dafay complété góor. jabar dafa war a mottali jëkkëram jëkkër dafa war a mottali góor loolu je ne pas d' accord xale yu jigéen yi loolu bu leen ko dégg bu leen dara jaral loolu ci àdduna. Eh gis nga fii ah garab day sëmba ko ruus. Hmm, garab sax day sëmba ko ruus masak nit. mais nag loo fa xaarul bis bu ker ga ñëwee du la fa fekk. Mm. cham sama càmmañ. aywa dem sa ancien far nga def leen càmmañ. Mm. ah lool mom je pense que sama tata bi li mo waron wax sax wax nako à ma place. Mm-hmm. parce que déjà euh, ci li ma jot a dégg ci ci mariage normalement dafa war a am sutura sutura. Mm-hmm. donc bu fekkee ne day metti ngay dem di wëri ji bu neexee mooy loolu. Mm-hmm. te du moment que yow bay quitté nga leen pour dem nekk kooku. Mm. donc tu te dois nga suturaal ko. Mhm. même bu fekkee ne yow mën nga ko mën nga ko lijjanti pour man d'une autre manière que ngay dem di di di di confier wu. Mhm. ci ñeneen ñoo xamante ne nekkuñu sa jëkkër. ok d' accord euh, euh, euh, question bi day waraat ci table ji mu ma commencé waat ko ci ci yow jigéen gi nga xam ne dafa tàmm mbaraan parce que am jëkkër am far gi dafa bari ci dëkk bi mhm. est ce que ki tàmm mbaraan su demee ba ba am jëkkër dina dina ba mbaraan bi est ce que jëkkër ndaw si nga xam dafa tàmm mbaraan di mbaran mbaraan bo xamni fo mu dem joxe fa bopam hmm. am juromi far jurom ben far ku ko jox 50000 am lu mu séq ak yow kookee su demee ba am jëkkër. Hmm. est-ce que jëkkëram dina ko satisfaire sexuellement parce que ñi ñëw ci thème naan sama jëkkër duma satisfaire dañu bari. Hmm. est-ce que jëkkëram dina ko satisfaire financièrement jigen bu daan jot presque 500000 par mois. par mois par exemple. dama ko tuutal noonu am na ñuy jot deux million par mois am na ñuy jot trois million par mois am na jot tout cent cinquante mille par mois jigéen bi nga xam dafa tàmm xaalis te xaalis boobu muy jot yëpp fukki góor a ko koy jox jigéen gi nga xam dañ ko jëlal appartement ata appartement ba luxe la fa comme soo fa duggee ne naan la fii kër milliardaire la doo ko doo ko weddi nekkate ay fukki góor ñoo ñoo ñoo ñoo koy jox kenn ku ci nekk deux cent mille fukki góor yooyu kenn ku ci nekk yaakaar ni moo jël appartement bi moo jënd télé bi moo jënd fauteuil yi moo jënd laal ba moo ñu fekk ku ci nekk jàppar moom la góor jigéen googu su defee loolu pendant dix ans quinze ans vingt ans muy dundee noonu hmm. su demee ba am jëkkër financièrement est-ce que jëkkëram jooj dina ko satisfaire taxawal sexuellement est-ce que dina ko dina ko dina ko satisfaire hmm. ndaxte dama am jëkkër am far gi dafa bari ci dëkk bi hmm. feebar yi bari nan bari nañ ci ci ci ci ci ci ci dëkk bi hmm. est-ce que ku góor jigéen kook su demee ba nga xam ne dafa am jëkkër joo xam ni hmm. euh, maanaam du am ci jëkkër ja cent mille francs par weer hmm. du am ci jëkkër ja cinquante mille francs par weer ku daan jot cinq cent mille francs par weer ku dëkkoon ci appartement de luxe ku dëkk koo xam ne xamuloon woon facture courant ñaata la nga am jëkkër joo xam ni nag peut-être bi nga koy am situation am baaxoon na par exemple soo xoolee ay avant 2012 dëgg am ay nit ñu fi nekkoon ñoo xam ne ñoom ñëpp a takkoon yi ñaareel bi 2012 daanoo gis nga ñaareel yi bari dañoo tas gis nga baax li ma la. maanaam am na foo nekkoon. à part bi changé. est-ce que di nga toog ci sëy ba. tàmm nga xaalis. tàmm nga luxe. tàmm nga nekk ak ay góor yu bari. moo xam dañuy séq ak yow euh, relation euh, sexuelle wala duñ ko séq ak yow mais tàmm nga ay góor yu bari ci ci bi nga nekkee célibataire kooku su demee ba am jëkkër. yooyee yëpp est dina ko mën a muñ. ndooy nag loolu moo ma tiital. li nga wax nii. Mhm. xamuloo ko sax loolu si côté sexuellement. Mhm. xaw ma te aussi. parce que daal yëpp tolloo waaw waaw waaw foofu la may ma foofu laa jël. am na 43 am na 32 am na 12 xam mën na am. soo taam xam nga nit lan moo ko jaaxal xam nga nit. lan daal la wax. nit lan moo ko lan moo koy jaaxal lan la dul xam. loo xamante ne yow dunduloo ko. Mhm. mais bu fekkente ne da nga taama loolu comme ni nga ko waxee couche ak kii couche ak kii couche ak kii. xam nga peut-être di nga ci tasante koo xamante ne bis boo amee jëkkër kooku moo mën sa jëkkër. xam nga léegi bu ko defee nag da nga naan man mais yow sama jëkkër bi kii du dara kii kii kii mënul affaire xam nga boobu moo ci boobu dafa graaw. parce que doo sa jëkkër dootu la satis du la satisfaire parce que gisoon tase woon nga ci yooñu ku ko gën a aay léegi bu ko satis bu ko satisfairul te gëmul yàlla du trop ragalul yàlla torop dafay wàññeeku di def leneen. Hmm. ci côté xaalis bi aussi. loo bari le bari le romb loo moom. damay bañ a wax mais. Hmm? loolu dafa dafa ma tiital torop. parce que mbaraan mi dafa am ñu naan dafa neex li muy métti métti mbaraan lu métti la mais am na ñoo xam ne dañ ne dafa neex léegi comme ni nga ko waxee ngay am benn somme bi léegi nga am jëkkër mënutu la jox loolu mais ñu bari dugg nañ ci ci sëy léegi nii yàggul dara ñu divorcé ndax loolu. waaw ñu bari tas nañ ci loolu. te dama ci tiit loolu loolu dafa garaaw gis nga mbaraan baaxul dafay jur lu bari bari bari bari bari après conséquences yi dafa bari mm, mm, mm. vas-y waaw waaw mais xam nga euh, sànq nii rek euh, ñu ngi ci ñu ngi ci doon wax tuuti tuuti ci lu mel noonu gisal nit mënuloo ne chaque jour nga lekk fii ceebu jën lekk fee yaasa bu guddee nga reere ganaar léegi nga ñëw bëgg yem ci fonde chaque jour wala nga ñëw bëgg yem gis nga lépp day dellu soit ci li may wax naan xel bu ñu ko yarute hmm. gis nga nit plesir hmm. da nga war a xam ne lu mu neex neex neex ay minutes la hmm. te plaisir donc mooy yóbbu pousser nit ci defi leneen te pourtant loolu nga ne peut-être sa jëkkër du fa egg yow bu fekkee ne yow jigéen dëgg nga mën nga ko compléter du jar nga koy wuti feneen yaa koy complété sa kaw lal yaag sa jëkkër. Uh-huh. parce que jëkkër yaa koy jàppale. Uh-huh. comprendre nga. Hmm. parce que. loo koy jàppale. non mais <laughs> mais mais mais mais mais rapport sexuel ñaara koy def benn nit munu koo def. Uh-huh. comprendre nga. ñaara koy def benn nit du ko def. xam nga. Hmm. bul foog ne euh, am na koo xam ne ba ba ba jëkkëram euh, néewee kàttan yàgg na. te temps ba léegi mu ngi fa toog. te bis bu bëggee sentir dina ko sentir. gore. Mhm. dafay gore parce que day jàppale jëkkëram. Mhm. comprendre mais gis nga yàlla natoo woon na la ngay mbaraan. taamu laago la de. dimbali na la dimbali na la. Mhm. non mais même tàmm lu mu nekk laago laago nit hmm. tàmm na dara bañ ne munu ko ba mu bako hmm. ndox du bàyyi yoonam comprendre nga. tàmm nga wax de tàmm. waa tàmm laa wax tàmm na ko bañ ne munu koo ba te mu bàyyi ko lépp dafay dépendre yow. mu bàyyee ndi ko wala mu bàyyi ko. mu bakoo bàyyi carrément mën na comprendre yar boppam. yar boppam parce que liñ naan judduwaat moom laa nga naan you have to born again. a again. comprendre nga after gain euh, waaw léeg-léeg da nga gis koo xam danaan la I am born again mooy dama judduwaat changé naa complètement born again yes I am born again <laughs> comprendre nga mm-hmm. léegi nit ki yow ya war a xool sa bopp bon again euh, waaw intérieurement mm-hmm. nga xam ne lii ne mi ngi ci man mm-hmm. te xam nga liñ naan bëri na koo xam boo ko noon ndax bëgg nga sa doom mel ne yow du ko waat te pourtant boo baaxee war ngaa mën a waat bëgg sa doom mel ni yow. Mhm. mais pourquoi buñ la nee waatal ndax bëgg nga sa doom mel ni yow doo ko waat. Mhm. parce que yëg nga ci yow sa bopp loo xam bëggoo sa doom mel ni. Mhm. comprendre nga. te euh, euh, baay bi gën ci baay wala doom ji gën ci doom yi. day tiitaroo mel ni baayam. doom li taxu ñaan doom ji jigéen jàngaaniwul. nday nday jaay royu kaayam. waa mais léegi su fekkee ne yow sa yaay day mbaraan nga koy gis. waa léegi boo mbàggee doo mbaraan. su fekkee yow sa yaay dafa am jëkkër am ni càmmeñ di la yónni ci càmmeñ yooyu di la ci yónni yow sa doom doomam bu jigéen de di la yónni ci càmmeñam yooyu nga koy doxale ay ay ay service nga dem càmmeñ ba di ko wax sa yaay di la wax mais nga juddu ci màgg ci environnement bu mel noonu mais léegi yow soo nit li mu jàng rek lay tari ah. mm. gémmeñ du tax xamtiku lu li mu mos mm-hmm. comprendre nga. Mhm. ñu ci bari ci environnement yi ñu yaroo. Mhm. moo leen indil li ñuy dund tey. ok waaw euh, euh, paasal sa booy booy booy booy benn tàmm laago la de. waaw tàmm laago la tàmm nga ko ci xaalis tàmm nga ko ci leneen. loolu am na. Mhm. parce que jigéen ji mbaraan di mbaraan di mbaraan ba am jëkkër. am am xaalis. nga am jëkkër. xam nga li am ci maraam mi mënoo ko am ci sa jëkkër mhm. mooy waral ngay am jëkkër am far mhm. man gis naa kaa bu mel noonu mhm. koo xamante ni dañoo dëkk daraan am jëkkër daraan am ay far di am xaalis bu bari kum ci sëyal du yàgg mu tas ci biir sëy yi day day am jëkkër day day nekk jëkkëram di am far yaa ngi dégg ba pare tamit comme li tonoo baara wax xale am na foo xam ne bu fa juddoo gis yaayam di ko def Mm-hmm. su màggee loolu lay def. Mm-hmm. parce que imagineel nga toog ñu tey sa téléphone sonné. Mm-hmm. am ku la woo bugguloo wax ak moom nga jël téléphone bi jox ko sa doom. ne ko nee ko génn na. wala nekku fi. mu wax loolu. nga toogaat keneen woo la. jël téléphone bi wuyu. sa doom di dégg loolu. su yàggee yow li nga def loolu lay def. na koy jàngal fan. mi ngi doon mu mu waaw waaw xamul ndox euh, nekk laago. soo xoolee ci vidéo Facebook yi. Mhm. gis vieux. Mhm. de 80 et quelque. Mhm. mi ngi dans le coma. waaye noddukat la la dans le coma yëpp. bu faja jotee. day nodd. day nodd ba médecin yi di pourtant mi dans le coma. su jotee day nodd waxtu bu jot rek day pourtant mi ngi dans le coma dafa tàmm nodd ba li muy nekk dans le comment dans le comment fu nodd jotee day yuuxu di nodd gis nga jigéen yàlla suñu borom subhanahu wa taala su fekkoon dafa dafa nekk ku ñu war a paasante danaan na jigéen ñi am ñeenti jëkkër daganal naa ko waaye li tax mu ne jigéen benn jëkkër la mën a am ba kooku faatu ñu tàggoo mu mën am keneen may góor ci ci ci man diine gi ma bokk lay wax may góor mu mën am ba ñeent mm-hmm. ba su mënee jël jaam goreel sax mu nekk juróomeelam. Mhm. nekkub takku. Mhm. dafa am lu tax. ñu déglu lii. nag moo nekk nag de moo nekk te kiiwu jigéen moom teraanga jigéen sëy moom. jigéen gu taamu mbaraan est soo ko takkee dina fa toog. Ah, parce que damay faral góor ñi xam nga góor ñi rek moom d'accord dañuy xaw a mer mais ni am na ci góor ñi ñoo xam ne nee na ni jigéen ku tàmm mbaraan soo ko takkee soo moytuwul di nga ko bokk tant que jigéen instant boobu moom ma ah. ko mënuma la ci tontu leen. mais di jigéen ku tàmm mbaraan est-ce que benn góor mën na ko satisfaire. lu ma ci xam. xaw ma si dara nag franchement parler ndax dund ma ko xaw ma ko daal. xaw ma loolu. xaw ma ko. Mm. daal li nga dund mooy daal sëy ba tas. ba ba ba dee kay. sëy ba tas metti na de. sëy ba ñu suul la si. mais soo sëyee ba divorcé la wax amatoo jëkkër. day mm. dund ci dëkk bi njëkk ay na waar de. moom kay boo boo àndul kii xel. li nga def loo bëggut a def moom mais boo ànd sa xel franchement di nga dem te yàlla dina la si jàppale ndax dëkk bi moo yàq de un xam nga bu njëkk ba ñun dinañ daan dem baale ah fecc ba sonn ba ñàkk dem ñibbi mais léegi xale yee yàqu dëkk bee tas dañ ko wax franchement man mi nga xam ne damay liggéey euh, li ma xam naa ci dara damay gis façon bu nekk dëkk bee yàqu franchement parler de plus en plus xale yaa ngi yàq. ñu koy dañ ñaan rek suñu njaboot yi rek daal di si mujj. ñii jaay seen bopp. Hmm. ak ñii mbaraan te nekk ci biir kër yi kan moo tax benn la pour man pour man benn la. Ah. benn la. benn la. benn la. loolu tax nga di benn dama xam ne yow kii ma ngay jaay boppam da ko wane carrément mi ngi jaay boppam waaye kay baraan di di nëbbatu. ñi eh, ma ci laaj ñeneen duñ joxe seen bopp. kooku dañuy fan man mi jote gis ñaari nit bëggoon ma ko def dañuy fen maa la wax lii. Ah. waaw. fii daal kon gars yi ko gën du jox sa xaalis ci zéro. man kay loolu moom mënul nekk. xale yu jigéen ñi ngi jiin góor ñi nii dañuy góor ñi dañuy mbaraan yow naka nga gisee. ah mais bien sûr oui mais bien gel euh, yi dañuy mbaraan góor ñi dañuy mbaraan. góor ñi ni ñuy mbaraane. bon góor ñi góor ñi ni ñuy mbaraanee mooy yor xaalis ah ah mooy yor xaalis ah waaw jigéen buñ tëddee la bàyyi la waaw. dosal dox lépp si gelle la si gelle la waaw te lu tax nga ne si gelle waaw parce que xam nga léegi mode de vie bi léegi moo changé waaw léegi Dakar dafa changé lépp dara yombul lépp a changé waaw xam nga da ngay jógee kaaw ñëw yor sa taraanga xama yoo xama jëli ñëw xama bëgg la ko siif xama nga jox leen ko xama fosen kaw xama jox jàllale man lu ma gis rek loolu laa soxla man lu ma gis man loolu laa soxla su ma ci paree pare pare daaj mën naa see ñaa benn cinq cent léegi léegi léegi pare ci bu jeex waaw dë ma wàññi dara waaw yow daal di yow pelanti bi daal la la intéressé. waaw kay waaw kay mën naa dóor pelanti bi bare ci dox sama dox waaw. ah mais mais est loolu jàppee nal jàppale na euh, ji sunu sœurs yi jàppale na jigéen ñi yow. non mais mais ñoom doon def noonu. parce que léegi non non mais parce que situation wu dëkk bi léegi ah ah moo garaaw. ñun dañuy tox ba suba teel. waaw tali bi yëpp ay jigéen la yëpp ay jigéen la yëpp ñoom xamuñu jigéen xamul ku ko bëgg. jigéen ku koy toroxal la xam. ah bon waaw. dañ cee dund kaa bu mel noonu yow. waaw waaw bien sûr. ci naka noonu. parce que bëgg nit. yàgg ak moom nekk ak moom ah, nit jógee fële fële ca àll xaxaj ba ñëw ñu ne ko kii moo ko yor parce que yow yooyu yoroo dëkk bi léegi noonu lay doxee léegi. léegi daal ku yorul moom. moom ku yorul bokkoo waaw soo yoree nag. absurde dem France ñëwaat toog fi nga toog. waaw mus nga toog mus nañ la mbaraan loolu laa bëgg nga toog. Ah, bien sûr bien sûr amul kunjul mbaraan ah amul kunjul mbaraan parce que tant yaa ngi soxla penalty bi rek ah di nga génnee xaalis. Mhm. waaw kon daal léegi dañ koy jaay. dañ koy jaay. waaw waaw mais eh, mais mii. du ay waxu rek nag. mais dañ koy jaay jaay nee na ñi koy jaay ñu ngi ci tali bi. mais mais ñi koy jaay sax ñi gën a bon mooy ñi ci kër gi ñi ñi ci biir kër yi toog. di yeewu di nekk seen papa di nekk ak seen yaay gur guddi gi paa bi tëdd mère bi mère bi tëdd gaa yi yokk bëte non bëte bi moo gën a bon téléphone moo yàq lépp léegi da nga naan xoolal jëlee ci ñëw waaw mu ñëw nga yàq waaw jox ko benn vingt mille paas njur daanu su xëyee su suba dem Sandaga jëlee benn jiinu vingt mille xam benn eau douze mille. mais dëgg bee tas moom lu muy gagné yow doo ko gagné góor pertul mais yow yaay perte yow mi jigéen mais góor pertul góor du perte. mbaraan bon dañ ko jëlee ñi ci jigéen ñi la mais booy seet góor ñi moo ëpp parce que góor ñi ñoo yàqu jigéen ñi ñooy yore seen i teraanga di ko sëggalee jigéen ñi xam nga noonu lay demee quoi moo tax à chaque fois ñu bëgg ko jënd jigéen ñi mais des fois aussi gel yi du ñu nekk mbaraan góor ñooy nekk mbaraankat yi parce que da ngay gis fii benn gel bu jugee kaaw yore passeport xam nga kaay langal ko ko mu yaakaar ne moo ci nekk fekk dañ ko bëgg nax ci biir nax bi xam nga nan lay demee mooy kat yi nañ ko mbaraan mu takk ko après mu yóbbu ko kaaw mu jàllale ko bu demee mu dox doxam xam mais Sénégal parlement ni tubaab yi lañ koy def. non dañ koy def même Sénégal yi parce que faatu faat yi jógee ci kaw di ñëw dem liggéey sonn xam nga ñëw fii peut-être dañuy am ay problème jëkkër wala soit nga jël sa jabar yóbbu ko ba kaaw dem mu divorcé wu ak yow continuer di wut daan doole bu dikkee xam na lay def jëlal kaa demal États-Unis gars yi dañuy dem ak visa léegi dem seen yoon ñëw xam nga toog fa yàgg fa loolu dikk ñu ñëwee ñoom ñooy wut jëkkër. kon donc mbaraan bi ci góor ñi la nekk aussi ci jigéen ñi parce que jigéen ñi man ni ma gisee situation Sénégal ñu bëri ñu ngi koy jiiñ gel yi ci boppam man pour man du gel yi parce que ci éducation de base lay doon parce que doomu aadama boo amee sa doom nga yar ko ci siraatal mustaqiima ba mu màgg bu màggee foo ko jëmale foofu lay jëm. mais gars yi gars ñu ngi yar yar nañ ko. non parce que di nga gis jigéen. xale bu ndaw muy jàngee ko laa laaj de six ans génne këram sol benn affaire bu gàtt di dem parents yi teg ko ci teg seen bët wala si parents yi jëndal ko man bu boobaa li may wax mooy que ni parents yi ñoom baraanloo seen doom. bien sûr mais ñu ngi koy jaay mais ñu ngi koy jaay parce que doom su yeewoo suba suba teel mais franchement et eh, franchement mais war nga xam kii ah, yan tànk lay dox. mais loolu dëgg daal. waaw mais quelle est la différence entre góor bi jigéen bi mbaraan ak jigéen ñi jaay seen bopp yi. mais jigéen benn non mais c'est pareil. non benn c'est pareil. man booy seet sax ñiy jaay seen bopp ñoo xaw a tane parce que au moins. ñoom dinañ exposé wu. peut-être dinañ dem hôpital. moo tax mais gel yi mbaraan nee nañ ñoom duñ joxe de ñi ma ci waxtaanee ñu bari nee nañ duñ joxe. waaw góor yi seen xaalis. non mais man du ma joxe cinquante mille franc mbaa may joxe vingt mille franc mbaa may joxe quinze mille franc te dama mos damay mos ma mun a génnee sama xaalis mais mun maa ma ma mos ma yor waaw kay seet ku ma ma la ko may la mos dëkk loolu la xew dëkk nga léegi Ndakaaru léegi kenn doxaanatul ah, kenn doxaanatul dëkk bi léegi kenn doxaanatul mën naa jënd jiinu vingt mille ah mën naa jënd jiinu vingt mille ah te xam nga jënd hamburger ah. xaw xaw mais dëgg bi léegi kenn mais gis nga xale xale. gis nga xale. ba suñu yow yow noo gisee xale bi. mais tooy xet. tooy bay si waaw bu doon léegi léegi la su léegi la mu yóbbu fexe <laughs> nañ ma xale bi ñëw waaw waaw xale bi xale bu jëm yow jonga ma kaar jonga ma nga kaar masha allah de ah. mm-hmm. yow war nga am problème de war nga sonn ci dëkk bi nii non pas tellement pas tellement non eh, gars yi sonalul la tout rek tout rek mais mais mais gars yi nee nañ góor ñi dañuy mbaraan est ce que vrai je pense pas naka la ñuy mbaraane eh? maanaam sa veut dire ensemble ay gel yu bëri quoi. waaw. dañ koy def. je pense waaw. yow mos nga dund ak koo xam ne day doon def loolu. Euh, forcément. <laughs> forcément. ah mais yow moom ak ni nga mel nii loolu su ku la am lu muy doyee keneen ah doye. jëlee bi ah mbaraanal fii ah <laughs> yow ah. ku la am réellement yow yow yow te lan lay doyee ci wóor a wóor man de mu la amoon dama julli rek cinq heures mu julli juróom ñaari rek tëdd na moom waaw mais yow tey jarajab baax na yow yow yow mus nga mbaraan day fekk amu ko mu bëgg mais parfois yéen nee neen da ngeen am leen bëgg denc ko dafa am leen bëgg denc ko ba pare euh, di di di di mbaraan yaa man personnellement du ma def loolu soo ko def wala yéen genre nit ngay dajal parce que yéen jigéen ñu rafet ñi dayuma la quoi mais jigéen ñu rafet ñi trop kaar macha allah góor ñi bari du leen ñeme. est-ce que du bon sa taar taxul góor yu bari ragal la. ay jan jan genre ay say morom ou ay paa. genre yëpp ah yëpp. naka ngay xàmmee ki la bëgg ki nga xam ne daf la ñëw mbara pour mbaraan la ou bien kii xam ne daf la bëgg. Euh, avec le temps di nga ko xam. góor mu yow góor mos na la may som xaalis bu baree bare bare. plusieurs bare par exemple liñ la mos a may ñaata ci ëpp. un million. un million. may la ko nii rek du sa jëkkër du sa dara. waaw mu may la un million. lan moo xewoon noonu ba may la un million. dara niñ doog a xamante rek. mu yëkkati un million may la ko lu ko taxoon a jóg xamoon nga dafa baax. waaw mais un million yooyu gisoo woon mu takk la ci jabar mu takk la moo gënoon. non moom ñëwul fu takk jabar et puis doxaanuma sax. mais lan moo ko taxoon a jóg. je sais pas. gis la rek may la 1 rek wala. 1 million yooyu. amee du man kese bëri naa say maroom. 1 million yooyu loo ci def. defuma si dara lu am solo. yére daal xanaa jox sama yaay. waaw mais góor ñëw yëkkati 1 million jox la ko nii ah. naaj yow moom moom xanaa ci dëkk bi lay liggéey ou bien bitim la nekk. Modou Modou mu ngi ci dëkk bi Modou Modou du may 1 million amuñu nga ni. nga ni. ma ne Modou Modou du ñu may un million. lu tax. Hmm? ah je sais pas man xam nga tàmm ma ànd ak Modou Modou nag vraiment. ah mais pourtant yow sa classe gi sa boppam moo yow Modou Modou Modou sa classe gi la la ñuy wër. Hmm. sa gi la ñuy wër. Hmm. soo amoon benn gaan bu mel ni man tey jii boo xam ne tey jii amul amul sax njëgu njëgu njëgu reer. tey jii ànd di ànd man benn Modou Modou mooy ñëw xëpp lu bare bare nga door ma ci xeer wala waa jooju ñëw may la mu may la un million bi. dëgg la ah? dëgg kon du yow doo génn ko amul ko yorul de. non waxuma loolu nag de. loolu damay laaj di nga génn ko yor. non mais ça dépend rek si mën nga gis nit bu yorul dara nga bëgg ko man nga gis ko yor itam nga bëgg ko. man man leer na ma ki nga bëgg yow yow ki nga bëgg yow ko yor. ah loolu de lu mu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw am na oto am na appartement. non non dama xam loolu. wame kila may 1 million yooyu quoi lan lan lay lan lay liggéey xaw ma lu muy liggéey kooku biñ naa si sax yàgg na dala may 1 million yi rek am ñi ci des ak yeneen somme yi lan la fàttali ko ma ko nag ay 200 mille 500 mille yow mii xamatuma xamatuma yow lan ngay li lan ngay def dans dans ta vie damay liggéey lan ci benn centre d'appel ah benn centre d'appel benn centre d'appel waa waaw mais mais mais que mus nga am faru baax far boo xam ne mat na la papa. waaw. ah. waaw da nga ko nopp ko. nga nopp ko. Mhm. mu nopp la moom it. waaw. waaw ñoom ñoom ñoom ñoom parfois dégg naa yéen suñu leen dee doxaan dañuy làqat. Euh, oh, en kan, am jabar am famille et tout ngay ñu lay ba di dara dama ko jeex na voilà nga ko nabatuma ko ay ay ay ah yow yow cadre lay fréquenté bëgg nit bëgg na ma ko bëgg voilà jëlee problème. tout ak jigéen bi mbaraan jigéen bi xam ne day jaay boppam. ci na ma jaay ma sama bopp ci tali. Ah, da nga koo mbaraan waaye. non mbaraan na ma ko sérieusement. mais nii nii nii nii yomb na de. waaw yomb na mais. million yi tiitoo. <laughs> est que tiit naa. Hmm. Euh, bon. xawma bi ma non naa voilà. léegi laaj nga ko lan moo tax mu may la. non jéem mu ko sax laaj loolu yëpp. avant mu lay may xaalis nga soxla benn somme d'argent laaj ko benn moodu. ma ne ñëwal fii hôtel bi ñu ñëwal fekk ma fii ma jox la xaalis bi. non non mosul am mosul am. mais est-ce que mosul ji góor mosul la may def lu la gën lu ma métti. waaw par exemple ci affaire xaalis ay bëggante ak yooyu noonu. ci affaire xaalis non pas affaire xaalis. par exemple góor may la xaalis ba pare di la chantage ou bien. non non non non loolu ah. waaye góor mosuma chantage xaalis. parce que góor ñi léegi dañuy maraat da gis déjà euh, kenn di génn ak euh, gëlëm et mais da ciy parce que d'habitude jigéen ñi ñoo wax ay envoyé ma crédit et tout mais ñi si boppam ñoo la foofu même euh, du genre envoyé ma fa benn carte wala dara quoi ñu maraat nag maintenant moom seen monde à l'envers moo tax. parce que bëgguma. parce que góor ñi dañuy maraat. parce que seen ko moo ma neexul fii léegi nuñ mel góor léegi fii. yow xanaa loo tax góor léegi fii xanaa nekkoo Sénégal. Eh, instant moom maa Sénégal certes mais bon góor ñi daal mooy loolu daal. foo nekkoon. Paris. Paris ah. oh, ah. jigéen ñi tamit dañuy maraan dégg naa. jigéen ñi dañuy ah, moom mooy loolu. yow da ngay man moom nekk fi ma fi ma nekk maraan ma fa parce que dama fiancé yoon la ñuy def. sa fiancé bi nag maraan. lan la ñuy dox di maraanante. moom <laughs> maraanante yow nga dama amoo fa. ah dama ne la amoo copain fii. Ah, am copain. fi ma mhm. yow fii nii mosoo def ñuy def. non non noo ko daan doxalee. <laughs> ni ma ko doon doxalee moom loolu <laughs> ba wax la ko. ay eh, parce que gars yi nee na kenn du leen mbaraan ci sol ci zéro de. Mm, non non am na parce que. mën nga lekk ba lu fekkee ne bu fekkee ne yow kii woo quoi te pas gourmand et tout mën nga par exemple gis kenn lekk si moom benn cinquante mille xam nga ba cent mille quoi mais lépp léegi tactique la après. tactique bi après nga dee ko tactique bi daal booy. xam nga bu la gisee tàkk da nga xam ne que yow jigéen da nga war xam sa bopp xam sa valeur. Hmm. parce que déjà di nga defee des fois góor ñoo xamante ni dañuy am alal mais. dañuy ñaaw wala dara léegi bu ñu la gisee de ce fait duñ te dañuy bëgg di ànd yow tout temps di wane seen bopp wala dara. Uh-huh. parce que góor ñi léegi moom xam nga loolu leen neex ànd a gel bu doy du xam nga di frimer ànd boo présent seen copain yi di ko wane fépp daal. Uh-huh. léegi dañuy léegi dañuy am envie de la defar aussi de la sol. Uh-huh. léegi bu fekkee ne benn du genre benn personnalité ngay génn bu amoon benn diine de gala américain naan la carrément. dama dama am diine mais dama bëgg nga assister quoi nga ñëw kii mais foofu nag dina la fa jox xaalis dina la dina la jox temps des fois trois cent mille et tout nga dem boutique yu gën a jënd defaru yow mos nga am loolu ah loolu moom moom wax ji moom <laughs> foofu lay yem mos nga am loolu réellement ah mos nga ko am ah waaw day am moom. moom daa am benn patron boo xam ne daf la invité dîner foofu noonu Méridien. Méridien waaw. ñaata la la joxoon ay collègues et tout. ñaata la la joxoon. <laughs> mais lan moo ëpp ci gis nga moo ëpp lu la may. te xaalis. yaa lan moo ëpp. <laughs> mais laajte. bàyyi lii. soo mu la góor mu sa may ñaata la lu ci ëpp. tomb bi ci gën a rëy ñaata la. tomb bi ci gën a rëy mooy li ma joxoon chèque. waaw bi ñaata la woon. un million deux cent mille un million deux cent mille góor a jox ma un million deux cent mille. bi nga ko tiito ma sama ndey ko liggéey. ah waaw mais après ku góor ko foo mu jéem moom. góor ki mu jéem si kilifa kilifa la te dafa jege woon sama waa kër da doon séentu ay jabar et voilà. gaa yi nee nañ ku leen ku ku ku leen may di nga leen fekk ah, ma fi nekk ma fi woon. waaw. Uh-huh. la lay xaaj boobu noo ko def. no problème. ah. ah journaliste nga kon nii. non non non man bi. man dem naa fi Gambie. Uh-huh. naa fi dem naa fi ba Gambie. ñu uh-huh. si benn hôtel. di jënd sama ay yére toog xam nga di dem soirée sénégalaise com sekk di tëgg di ngay dem ma pare jàll Mauritanie seet sama mbokk yi ñibbi Sénégal. kon da ngaa fas fas rey xaalis. merci. dëgg waaw. góor bu ci moytuwul di nga takk caga. Ah. waaw waaw. nga waaw. lu tax foo teg wax jooju yow. ah parce dama non dama ko xam rek. ah waaw dama ko xam rek. parce que man damay dox te doxal naa damay tukki. gis naa lu ne. di nga di nga am cakaru góor jigéen te doo ko xam. waaw nga am jabaru cakaru doo ko xam. waaw parce que léegi xale yi jigéen léegi kenn voyagetul kenn kenn amatu ndaw. ah góor jigéen yi nag waaw. keneen non góor moom ñoo tiim ñëpp. woyof man moom allo salaamaaleykum. waaw waaw naka mu. sant yàlla. dégg nga gone yi li ñu wax. ah dégg naa ko de sama kay laay wax. mbokk yan góor ñi. ah yi ñi nga naan ma góor ñi. ah. man la sama tur ah nag mënu ma ko wax baal. waaw. waaw waxal quelque laa nag ci biir gars yi maa ngi ci jeunesse bi waaw waaw léegi laa bàyyi benn mu dem mais nag affaire bi yee na ma nag quoi léegi nga bàyyi benn xale mu dem waaw waaw léegi mais nag am na lu ma jàng pour tey mais xam nga lu ma jaaxal waaw lan moo tax ñu nangu góor ñi di financer rek ñoom xanaa seen ndey liggéeyul ñoom ah doy na waar lu tax ñu nangu góor ñi di def parce que leen daf ma jaaxal mhm. dañuy góor de jigéen ñi lañuy mbaraan góor ñi lañuy mbaraan waaw waaw euh, la foo tax chaque côté finance mm-hmm. góor di ko def ba mu jeex mm-hmm. mën la nangul lépp mm-hmm. di la ko defal même bu la bëggee te yàlla tax nga jàppe ko ni ku dof quoi nga jàppe ko ni ko amoon yërmande dootu la yërëm dégg nga côté ma waxee ak dégg naa lu baax finance lépp góor la koy def nga ne yow mënoo ci moom dara danga koy dalay may defal lii yow doo ko may dara fii kenn dofatul mhm. li ñu defee nit ñi ne seen ndey liggéeyul quoi ñoom mhm. bu mettee ñu sama liggéey ndey la kon kee ndeyam liggéeyul mhm. soo biiree doone sama barka baay sama ñàkk mbootaay voilà te man lii di wax yàlla rek a tax may wax kër laa jënde xam nga ci naka parce que dama fa ñëw ñu may toroxal samay junni tax na su ma fëggee ñu ubbil ma noo jëndee kër gi samay junni ah maa ngi wax lu mel nii. te den la daan dàq. dama ñaan dàq. waaw. te su ma bëggee léegi ñu ubbil ma. léegi da ngaa yow rek. bu ma ko soxlaa damay gaare sama spécial ci bunt bi ñëw sonné mu génn ne ñu bàyyee ko ko ak man heure bu ma ko déposé mu dem. kër gi ñëpp jeex na fi. kër gi yëpp nga jënd. dégg loolu ma la wax. waaw. kër laa wax jeune la maa yow band am na fu ñu daan daje. waaw. ngay def sa émission yi nii. waaw. dama ne bi ci sa rajo boobu noonu. waaw am na fa ñoo xamante ne maa ñoom am na nu mu demee. Mm-hmm. mais àdduna mooy dox waate afam loo xam ne gor mm-hmm. moomu ko. Mm-hmm. jamono ji tas na tas boo xam ne bu benn jigéen jàpp ne maa gën kenn. gis nga li nga sa bopp. waaw yéene ko ñëpp. benn góor bëggul lu bon. lépp loo xam ne koy def ko nëbbu bu yeboo nga bokk te nga xam ne du lu dëgg. mais lépp looy def te bañoo ku la ca fekk bu yeboo nga sax ci te xam nit ci dëgg nga ne. waaw ah ñu ngi seen kër. Hmm? est ce xam naa fu mu tàggoo. Hmm? la moom la bu jógee fii rek ñibbi seen kër. Hmm. ci yow la jógee léegi. ah waaw. ah gis nga. vingt une heures la ñëwoon. li ko fi taxoon a jóg jëlewu fi lu bëri parce que émission bi yàqal na ko lu bëri après. ah da doon déglu da ngeen doon déglu émission dañ ko déglu ndaw mu daw res. ah parce que après dama see jàng lu bëri. moom lu mu doon wax nag moom. waaw euh, parce que ay nawle a ngi toog foofu mais ŋàññi nañ ko ci benn côté. Uh-huh. parce que li ñuy wax gis na ci boppam. Uh-huh. dem na ba li ñuy wax ni amul moom mooy justifié de mooy wax. nee uh-huh. na lu ñuy wax lu góor lu nekk am na lu tax. te ànd gis intérêt ci ne ko kon maag yow intérêt ci ne. mu nangoo ko nag. kon daal kon yéen a doon émission foofu. Hmm? émission ngeen fa de. boo mu saaf. téléphone ay may booy yal nañ fi yàgg ay may booy waaye <laughs> yow géree nga jaay faay sama waa ji <laughs> waaye émission bi tey bari de mu yàq daay gone yi jigéen ñi dinañ ma mere tey de mami dégg nga li mu wax waaw alhamdulilah rek ndooy lii rek lañ ci buggoon mm-hmm. comme wax nañu am lenn lu ci defaru mhm. am ñu ci defaroo mhm. rek alhamdulilah dégg lu mu wax nee na ndaw si jóge na ci moom wóoru ko ndax dafa ñibbeem déet mais dégg la xam nga loolu moo garaaw baan ci ci mbaraan mhm. loolu moo ci garaaw beneen bi mooy ba kër gi muy dugg dañ ko ko daan tere waaye moom nee na daa jënd kër ga moo tax gaañ bi du leen mës a respecté. kon jeex foofu bu fa sëy amee rek ma xam ne yàlla moo ko tudd. bu fa amee rek yàlla moo ko tudd mais du leen mës a respecté. te considéré wu leen. booy bi du du fa tax gis nga mbaraan euh, sama mbokku jigéen yi. Mm. nañ leen waxtaan. Mm. gis nga mbaraan lu mu la may tey. ëllëg dina la ko yàqal. est-ce gënuñu la koo xam. te ëllëg du añ ju reer. lu mat a mat a sédd la. allo. allo. waaw. salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi sant bu baax. naka émission bi. ça va alhamdulilah. tur bi tur bi Abdoulaye la. wootee. Nord Foire. waaw noonu fu moom amul ay mbaraankan moom. foofu ah am na moom. ah amu fa waaye foofu amu fa. foofu am na fa de fees na fa dell. déet waaye bàyyi li ngay wax yow tam yow <laughs> ah? fees na fa de. ah waaye de mbaa daluñu sa kaw rek. non daluñu sama kaw moom. da nga fente. ok d'accord 88 628 14 14 allo. allo oui. Doy Bane. waaw na ngeen def. waaw maa ngi sant yàlla. fooy wootee. Dakar. Mhm. waaw. waaw noo gisee yëfi. ah affaire bi yéeme de. ah yéeme ne de mbaa mbaa kenn baraanu la rek. non loolu du ma du ah da ngay fente. xam nga moo mbaraan. waaw. Ah lan la nirool. ci animaux yi. lu muy nirool. bam, wow, waaw mbaam. waaw <laughs> ah, ah, waaw. gis nga léegi bu ñu mbaaraanee ba pare. waaw. dañu sol ni mbaam. Mhm. lekk ñamu mbaam. Mhm. def yëfi mbaam. waaw mhm. ah, góor du ko def. waaw. ndeysaan. góor du ko def. amul amul amul parce que yow da jël xaalis boo xam ne. Hmm. pap ñaaw. Hmm. waykat. Hmm. wayoon na ko. mu ni nee na dañuy solu dañuy dañuy fas nag bu ñuul boo xam ne. bu guddee day lekk ci yàpp yaramam. bu bëccëgee mu taaru lool. xam nga lool lan moo koy indi. bu guddee dañuy dox. am alal. waaw am xaalis mbaran fukki nit. bu bëccëgee ñu jënd ci yére yu rafet. muul seen yaram di dox ci mbedd bi. pour hmm? mm-hmm. keneen xoolaat leen mm-hmm. bu ñu solo ni mbaam xool mbaam ni mu jëkkee mm-hmm. hmm? yàpp bi baaxut hmm? léegi bu ñu solo noonu keneen xoolaat leen ci loolu def kay doy na waar doy na waar de de man ne du am doom bu may jël indi alal sama mm. kër li ma Mhm. may lekk wala mu dem jëndi shawarma fële wala leneen leen di ma koy indil. Mhm. toggandoo lekkandoo. Mhm. sama biir kër nangu sax laal xaalis boo xam ne xaalis bu salte yooyu yu baaxul. xale bu yor li nga wax noonu xale bu yor téléphone cinq cent mille. sa ndey feebar mënoo ko faj. kooku delli la. cinq cent mille boobu nan nga ko xamee. fan nga ko jëlee. noo ko lijjantee. ak ñaata ñaata ñaata ñaata nit la ko jëndal. Hmm? day na waar après ngay tiitaru. Mhm. na trop. yéeme na lool kay mhm, mhm. man la sa benn xarit boo xam ne maa la waxoon ne la ku am daara. wala jàkk. wala bu ñuy defar plan yi ma defar ko. waaw ah, plan yi waaw waxoon nga ma ko de. ko kanati la waay. Malick. waaw Malick wax nga dëgg. woo ma hmm. suba. incha allah jaajëf. ñaaw na de. merci beaucoup waay. yow vous fu ñu zone de captage. Ah, effectivement D'accord. merci beaucoup merci beaucoup Seigneur Malik. ñu koy sant gërëm bu de yi moom fii ak émission day am terminaison nag gars yaa ngi Allô. allo Salam. salaamaaleykum. maaleykum salaam. rajo salam. Ba ngi sant bu ngi bu man la Serigne Mbacke Thiam Touba. Mm-hmm. maa ngi leen di siyaare bu baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. chaque jour bu leen di bëggee wax dëgg yàlla di leen déglu lu bëree bëri bëri bëri. jërëjëf waay. ñoo ngi rafetlu bu baax émission yi fi jaar yëpp wax dëgg yàlla am. Mm-hmm. waaw man nag damaa am problème boo xam ne damaa bëggoon ku ma ci dimbalee. problème mu lu mu. damaa am sama benn mag boo xam ne dafa am dafa amee problème mu cancer. waaw da ngay xaar ba leen lënd nga woote. lundi. waaw ci allo. waaw allo waaw. ma ni lundi. allo. dagg na allo. allo. Elwi. oui. oui Mamadou Diouf la de benn tali. Mamadou Diouf ca benn tali. benn tali amul ay mbaraan kat benn tali moom vraiment. vraiment benn tali <laughs> amul ay mbaraan kat ak ñaari tali Grand Dakar foofu moom vraiment. waa Dieynaba wax na ko Dieynaba wax na ko dama koy confirmer ah. oui moom lay confirmer de. waaw Dieynaba moom moom moom na nee na loolu amu fa moom. non non bon euh, dëkkuñ fi la bëgg a wax xam naa dëkkuñ fi la bëgg a wax quoi. <laughs> dëkkuñu fi. <laughs> Oh, non fi dëkkuñ fi dañoo kii rek dañoo paas ñëw. ah waaw dañoo paas ñëw. <laughs> oui hmm. dama bëggoon a euh, participer ci émission bi. Mm-hmm. franchement am na solo bu baax. Mm-hmm. xëy na beneen école la. Mm-hmm. xam nga man euh, sama maam daf ma doon ne ban école moo gën a rëy ci école yi. Mhm. boobu maa def primaire. Mhm. ma ne ko ah dégg naa de université la Cheikh Anta Diop. Mhm. mu ne ma déedéet. àdduna mooy école. pour gën a rëy ci école yi. te li ngeen def nii ay leçon la. léegi nag man li ma ci constaté. c'est une dégradation des mœurs. dégradation de mœurs mooy indi lii. nit ñi perdre seen valeur. valeur. Mhm. dañoo dem ba euh, xëy na jigéen xamatul valeur am. Mhm. góor aussi dem be xam ne kii valeur bu mu amoon comme xamatu ko. Mhm. amatuñu ci ñoom ay yërmande. mais nag lii je pense que ñu appesantir ci cause yi. parce que gis nga cause yi dañu naan xale yi jigéen yi xale yi jigéen yi mais c'est au-delà de là. mooy parents yi. est-ce que xam nga ne daal. parent dina nekk un receleur. parent dina nekk donc un maman gentil. en quelque sorte. da ngay ñëw ne wa waaleykum salaam. Mhm. mu toog fu mu toog ah yow doo ma tàngalal fekk gaz ba jeex na il y a de cela deux semaines. Mhm. c'est une question donc de de euh, de dire à la fille. Mhm. na joxe njëgum gaz. donc ñoom ay question indirecte yooyu dañuy def fuite de responsabilité yooyu la ñuy def dañoo dem ba entraîner say doom ci ay mbaraan. te doom sànq man émission bi depuis une heure du matin maa ngi comment euh, maa ngi insister pour jot. malheureusement kii bi dafa xatoon quoi. Mm-hmm. mais suivre naa de A à Z. Mm-hmm. am na sànq je pense que ndooy la. Mm-hmm. mu ne paa yi yor kurus dem jaka bi maire yi yor seen mël fa mais est-ce que yooyu nuñ koy def te yàlla tax. est-ce que paa bi aussi. parce que nañ ko waxte dee est-ce que maire bi aussi daan woon mbaraan. bu géel bi nekkee xale. parce que maire bi buy mbaraan di entraîner ci benn néeg bi xale bi nekk xale bu ndaw di ko gis. moom bu magee rek dafa yaakaar ne loolu mooy adduna. Mm-hmm. fekk ci moom bu indee moom mm-hmm. du ko laaj foo ko jëlee mm-hmm. mais day encaissé kon maire bi mooy banque bi nañ ubbi compte buñ ko ubbee fii nii ay procession la amul benn différence entre ko ñu dem taxawaalu ji di jaay seen bopp kuy mbaraan ak ñooñu même chose la prostitution mais dafa nekk comme ay copie xam nga copie booy di copier dina ne donc légaliser ko copie légalisée conforme à l'original ñu nekk ci biir kër yi nag ñooy ñoo xam ne kenn légaliser wu te ñooñu ñoo gën a dangereux parce que ñii mën nañ def nañ visite def nañ kii. mais mhm. ñun ñëpp dëkk bi la ñu mhm. lu ci gën a garaaw sama mbokk yi nga xam ne dañoo dëkk euh, dañoo jóge dëkk ba. Mhm. ñëw di laal. loolu laal rek euh, dañuy patauger ci terrain boo xam ne maîtriser wuñ ko. di laal di laal di laal di laal be raw sax ñoo xam ne ñoom ñoo ko doon def. mais parent boobu man man man dinaa bàyyi sama doom mu euh, mu jóge village xam naa ne mënul dara. teguma ci benn loxo. Mm-hmm. mu ñëw xam nga xiif aussi am na yoo xam ne rek xiif. Mm-hmm. saaneex nee na xiif du mbokk te xiif kenn du ko tuddee doom. Mm-hmm. am na loo xam ne boo xiifee rek jaay sa ngor. mais dafa fekk nag instant yi nit ñi goreetuñu. dañoo perdre seen valeur. nañu donc retourner ci éducation de base. parents yi yaru avant ngay yaraate da ngay yaru ba pare. mais boo amee parent ñu mel ni man nga xam ne da ngay criss cross. Mm. fuite de responsabilité benn Samba Surabali dem ëmbal fii. Mm. ñemewu ko wax papam man mm. ma porté wu volontaire dem naan may papam. parce que bu may ñëw jox na ma deux mille francs passe ou bien jox na ma cinq mille francs passe. Mm-hmm, mm-hmm. kon loolu ñun euh, parents yi am nañ ci part de responsabilité ou bien c'est les responsables. Mm-hmm. jigéen yi ay fautif lañu. mais dugal ci marché HLM dañ koy mbuuboo. naan ay commerçant la damay def import export lan ban marchandise ngay yóbbu sa marchandise ngay yóbbu. Mhm. mais du beneen marchandise. Mhm. yor sa appartement di fa fay ay deux cent cinquante mille. kon daal day dinañ dinañ importer waaye exporter bi moom li ñuy yóbbu lu mu. exporter bi exporter bi dañ koy exporter. Hmm. fii dayatu leen. seen bopp la ñuy yóbbu yor. waa dañuy exporter seen bopp. <laughs> di naan lu bees la di naan waaw bi gën a garaaw. lu mu exporter noonu. ci oh, conteneur bi conteneur la ko dugal wala. bagage yi bagage yi lañuy ñuy exporté. ci saak bi la ko dugal. déedéet du waay yow waay déedéet mu ci entre parenthèse bi rek dañ ko def entre parenthèse rek moom lay exporté. ñëw naan am naa benn naan am naa benn cantine marché HLM dama fay jaay ay dàll dama fay jaay ay bëdi yow ay bëdi di dem luy ay. Euh, appartement de cent cinquante mille. waaw sooy tëjal émission bi. loolu amul fenn. tëjal émission bi laax. li li li kolos di wax naan yow xanaa yow doo coupé kolos mooy wax loolu yow doo coupé yow daal tëj nga émission bi nga ni nga ni lu muy importer doon exporter exporter yu nekk ci entre parenthèses entre parenthèses kooku Moussa Ndaw war ko xam parce que billaay sànq dégg naa nga naan am sa jëkkër satisfaire la ah, yow kooku mën nga ko satisfaire ah doy na waar de ah? hmm. koo xam ne avant muy am 15 ans mu nga ca hmm. ñun dang nañ économie familiale dañu ne donc c'est élastique élastique boobu boo ko xëccee ba mu sës mën a cooti dara daa nga ci mënatul. yow mën ngaa couper. Euh, waaw mën naa couper ndoy ba <laughs> boo ma soxlaa woo ma <laughs> nuyul ma jëy na ba. <laughs> bu ñëwee suba xam naa dinañ raak. <laughs> kooku kay di ngeen raak merci beaucoup merci beaucoup sama waa ji kon bokk euh, sama gars yi euh, seen émission thème de la semaine fii la leen di tàggoo euh, daal ba beneen yoon di leen sat di leen gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax di kontaan ci yéen.